asalaamu aleykum asalaamu aleykum jàmm ngeenam ba tey maa xam soj bi la xama korona waaye tane na mu ngi tane te waaye su ma néegi maa toxalaa taabal bi taabal bi fii laa ko indee xaat moo moo tax ngeen di gis ngeen may gis nii you know <laughs> ah, tey maa ñëw Ami Olof channel bi <laughs> channel Ami Olof challenge bi laa ñëwaat tey pour fàttali ko suñ bopp ak wax leen yu xees bu xees buñ dugal Ami Olof challenge bi weer wu nekk fay dugal dara lu xees so tey lu xees laa dugal moom laa leen di wax si du tey I mean weer bii nii what waxaguma ko boobu ba tey weer bi yëpp waxaguma ami xolo challenge bi <laughs> dafa ñëw tombe ma am corona and stuff like this you know but yeah ma nekk di wax yeneen topic yi rek also my bad sorry guys so yeah ñëwaat naa pour waxaat ami xolo challenge bi and stuff like that hallo looy def ni amoo lu may def ni nga jàkkaarloo ngon ci telephone bi na ma lay def ni may nelaw ma tëdd suma digg la ma di nelaw mom lay def ni fi ne nii maa ngi nan ti ak limong ak lem hamud meew hamud dara ti ak limong ak lem fa ba ci soj bismillah mm. so nice mm. so nice corona bi ma xam ne le corona bi soj rek la soj mu xam doole la waaye su la dalee te fekk sa yaram wi wét du la mënal dara sa yaram wi moo tax ma ne la fa war a wét corona or not dee leen lekk-lekk yu baax ci yaram di naan ndox mu bari te sori leen chemical yu bon yi ngeen di def ci seen yaram wi buy chemical gooy diwoo la buy chemical gooy lekk la buy chemical gooy tux la gooy naan maanaam sàngara ak cigarette xeesal yu bon yi yëpp baleen ko fay dugg ci seen biir jëmm ji yàqal leen seen àdduna mhm. su boobaa boo xamee feebar corona or feebar bu ndaw rek man na laa rey ndax sa yaram wi baaxul waaye sa yaram wi su wétee nga def li la yàlla wax ci sa yaram wi fay wét cocc feebar bu la dal fay wét mhm. man corona bi moy ñaar yoon ma diko xam faale huma corona sax xaajuma ko xaja wala waja faale waaw man pengu bi la gëna ragal ci corona bi ci bopam faale huma corona bi ci bopam corona bi saj rek la hello love you too pengu mo nduma jel ko jël duma ko xaja waja jël jarano mo xam corona dan jël pengu bi xalaatu moko sax pengu bi waaye na ci boppam faale ma ko numéro <laughs> why people just a ngay just waxee ne numéro. am ah, defoon ma vidéo <laughs> vidéo bi lan doon nit ki nit ñi wax ne just jox ma sa numéro just like that like what did they even want with the numéro. léegi suma numéro bi ñoom surtout góor ñi soo leen ko joxee ñoom ñu si bëri fañ koy jël di la chase mooy problème bi. you know ñoom ciis rek la ñuy def ñoom ñu ci bëri naan la xaloo soxna si dama laa bëgg wala nag maa neex nangam nangam how I'm just gonna give you my number for that oh my god and ñoom yeneen góor yi you know they just oh it's ridiculous <clears throat> soo buggee dugg si programme bi nga nga dugg why you gonna want number for what number bi dama ko dee joxe bi ko so dama dee jaay bot yeneen góor yi dañ ko dee jël ba duñ jënd di ceese rek moo tax sax léegi dama ko dee tay la joxe ko ñoom fañ koy jël ba pare duñ jënd li ngay jaay di ceese allo soxna si nangam ak ki nangam fii la bëyee xar yi jaar nangam ke nangam dee ngeen ni li dee ni ngelaw li fay lo nga leen loo xam ne numéro blan yow looy defee numéro numéro Sénégal mën ci laajte numéro numéro numéro numéro for wat nada da Halo. Hallo. Ma yang si jam. Jam mereka. Mereka mbok wani pang si jam. Ñun si jam rek. Alhamdulillah. Sana gada. Bokko ki don laajte numéro. Déedéet déedéet. waa ok. <laughs> dama lay suivre si damay faral di suivre si TikTok bi rek. thank you. nga lool rek. faa koy laajte numéro de faa nga góor ñoo xam ne saa bu ma ñëwee ñu naan numéro ba pare. <laughs> it's crazy. kaw ma lu ñuy defee sama numéro bi. Ah, God. <laughs> Ah, good. Uh, Huh? Sa internet ba nanggo? Billahi. So anyway, xaaral ma ñoo explain ami uh, xolof challenge bi si si xolof pour yéen ñi nga xam ne you're interested. Ham na yun yung bugg kam challenge bi si xolof wala lan wala you don't care <laughs> xam nga nit ku ñuul moom ko nu ko dee dimbale challenge bi de dina wecc seen àdduna waaye xam na yéen ñi ko bugg a xam wala lan bind leen ma xam bala maa wees suma énergie di leen ko waxal te du ngeen ko faale challenge bi de very good challenge la de fay wecc sa àdduna boo ko toppee man de mu ngi wecc suma àdduna bës leen vidéo bi te seddoo ko koy tayal a bës de wañu ne jog joggaaraan ñu ay ganaar yuy boof te duñ bës duñ ko def dara <laughs> I don't mean yéen ñëpp ñi may ñi ma tooñ noonu xaw <laughs> ma ku may seetaan la sax war naa xalaat ni may Jadi genjëf di wax <laughs> nit ñi ganaar yu boobu subhanallah eh boleh leen ma faale challenge bi laay ñëw explain ami xolof challenge bi dafa baax su fekkee ne yow nga bëgg sa yaram wi wàññeeku sa yaram yi rafet te nga gudd fan wérgu yaram te nga su fekkee dooy julli dana la jàngal nooy julle su fekkee dooy xalaat positif fu mu yaa ngi négative rek ni ami jóg mu si butu it's not like dama de always negative but you know danga ma dee gis suma vidéo yi may yuuxu rek you daf la dee dimbale su fekkee ne tamit <laughs> like nit ko xam ne nga yow xaalis boo xam rek mu dem doo xam nooy dajale xaalis daf la dee dimbale jàngal la nooy respecté xaalis ñàkk a xaalis moo waral loolu dana la jàngal noo koy respecté jërëgeen jëf kii de xaw nu bind biiral xawma lan xawma lan biiral <gasps> biiral loolu biirali biital la wala lan biitali biital nit laam lan xawma biiral lan vidéo xawma lan he xawma ko duñ bind biital biital de moo ko déggee may ki waaw sam saying so um challenge challenge maanaam challenge maanaam challenge challenge bi dana ko def sa YouTube channel ba inshallah suma su ma lu may wax ci holof ni dana ko dag xaajale ko ak hangale bi def holof bi sa ami holof YouTube channel ba pour su ngeen ko bëggee gis so challenge bi bu ma commencé ay wër la ak léegi te mu ngi wecci suma haduna nekuma diko jël sérieux sax surtout exercise bi wa exercise mo su ma ko doon jël sérieux suma yaram bi gëna wañé ko sax bu yag so yeen ñi nga xamné da ngeen bëgg wañi yaram mun ngeen a jël leen di wax ngeen def ko ngeen di dox wala ngeen di exercise te loolu fa baax ci yaram baax si wér taxaw na ba pare fa ni ak ak ku ñuul la de taxawal ma explain challenge bi li dafa important te soo jugee nga koy yàq taxawal ma explain ko gaaw kuy dugg mu soog a dugg challenge bi ami xolof challenge laa ko tuddee koo xam ne duy julli na commencé di julli julli So koy def dana wàññi lu bëree bëri si yow fay wàññi xalaat fay joxe jàmm fay wàññi yu bëri dafay euh, tax nga gën a yala yàlla gën haduna ñeme fay tax nga gën gëm yàlla gëm fay tax nga Manda daal lu bëri la nek des si man daal duma ko mën wax yeb ba su fekkee dooy julli dal trayal nga julli su fekke tamit so julle tay fukki at do julli an staf nga tray nga baye lo ngay julli wax ci juro ok benen bi moy su fekke nga xam yaram nga ngay xoor so xeye bu lek ngay nan ndox rek mbala nga defar nebe day ak ndox mu tang nan ko nebe day fay wañi yaram fa bax ci yaram mhm nga def ko ak ndox mu tàng naan ko mbala jos nga naan ndox mu tàng kese baxal ndox bam tàng ko si kaas bi comme kuy naan café te fekk ndoxam neen la loolu fay wàññi yaram surtout sa graisse yi biir bi fa koy wàññi soo xëyee nga naan ko bala ngaa lekk dara te soo xëyee bu nekk di lekk ay mburu yeeg ya, ay lekk yu diis na nga lekk fruit maanaam banana wala pom, wala eh, mango wala saras, wala yooyu su fekkee ne soo xëyee ya, doo mën a ñàkk nga lekk loolu <coughs> soo lekkee yooyu nga continuer di naan ndox ba ay benn waxtu ñaar man ni ma dee def mooy su fekkee ne maa bugg a xam maalo te xam naa ne maalo bi dafa diis mooy ceeb te xam naa ne man maa miin palaat ak ceeb bu rëy manuma palaata ak ceeb bu ndaw <laughs> soo nu may def mooy dama dee xëy duma nangoo lekk dara duma nangoo lekk mburu walla dara mën naa lekk benn saraas wala ñaari saraas wala benn banaana tuuti furus daal ma xaar ba ay ñaari waxtu ñett wala ñeent ma lekk suma palaata ceeb bu rëy kulóos du ma lekkati nag sa sa si waxtu palaata ceeb bu rëy boo ko lekkee fay yàgg balaa rees pare mi moo ko lekkee pare ni may def mooy may baxal suma tinkilibaa ak mbor mbor ndax man ténkili baa ak mbor mbor ma koy jaay man <coughs> dafa baax ci yaram boo ko xamuti tii boo xam rek baax na tii baax na soo lekkee pare nga naan tii bu tàng dafa baax si wér gu yaram moo gën nga lekk pare di naan lu sedd léegi man tii bu tàng boobu tenkili laa dee def lu ci bëri du bët bu yàlla sàkk bët bu yàlla lu si bëri moom laa dee def hmm. tenkili ak mbor bi laay jaxase baxal ko def ci wheat grass non def si rosemary ak lemon grass baxal ko waaye boo xamul yooyu baxalal ci tenkilibaa beeg mbor mbor bi ñoom ñaar raxas ko set baxal ko su ñoree nga def ci naana mint ba pare def ci pasti def ci sukar ak kanneex waaye su si bu mu bëri de ñaari kudd yu ndaw laa dee def ci kaas bu mag kaas boo xam ne moo ëpp mhm. waaye boo ci defut sukkur sax moo gën waaye non la dere so ko course bari singa si nga koy wàññi soo am wergu yaram ak yaram bu rafet ak fanu wu hmm, ak xel mu positif mu happy su course bu bari lek yu bon yu bari fay tax sa xel mi fat du positif du happy wa du ne rek yaram lay joxe de ak febar de fay also tax tax do meuna happy <clears throat> leneen li nga wadi def moy ngay naan ndox mu bari doomu Adama Njaay yu bëree bëree bëree bëree hmm? seen àddunaa ngi sonn feebar seen xel maa ngi négatif te lii seen problème mooy du ñuy naan ndox mu bëri ndox mu bëri wér gu yaram yu bëree bëree bëree bëree bëri lay def si nit allo laay ga leen ma vidéo bi te seddoo ko yéen su dee jëriñu leen si it mën naa am keneen koo xam ne na ko déglu na ko jëriñu xam na nit ñoo xam ne dañ dee def lu ma leen dee wax si vidéo yi du ñëpp dee seetaan rek te duñ ko def de kon nag dee leen ko seddoo rek yéen wanoo <coughs> because lu may wax ni yëpp is not bëri wax te dox de bugg suma communauté bi moo tax everyday ma toog fii di leen lu baax lu ma Uh, yes ndox very good ndox boo koy naan sa yaram yi fay rafet te feebar yu ne yu ne ci yow ko koy faj te sa mind bi fay happy feebar yu bëri ak problème yu bari nit ñaa ngi koy xam ak diw gu ne ñu jënd fekk lii seen problème rek mooy du ñuy naan ndox mu bëri buñ ko doon naan te def seen bopp nit lekk-lekk yu baax yii seen yaram dana wét te seen yaram dana rafet sa seen yaram dana wàññeeku suñ bëggee mu wàññeeku everything <clears throat> surtout challenge bi moom ku ko topp sa yaram dana ne coj ak sa wér gu yaram incha allah so challenge bi mooy soo soo fekkee ngay wàññi yaram soo xëyee bul lekk ba bëccëg nga lekk lu xem lu baax si yaram manam ay fruits mango saras banana lo xam rek mhm. nga fekke ne malo ngay rere su fekke ay ciem ngay rere lu dis kon nga xagne lu lu basi yaram reer bi so ko mënee def bala juróom-ñetti waxtu ci ngoon mo gën so mënee reer ay waktu waxtu ñenti waxtu juróomi waxtu juróom ben juróom-ñaar fa des su ngay liggéey xam jot kon nga nga reer ay ay guddii way su fekkee nak yaa ci gi nga teel rere teel la reer dafa baax ci wér-gu-yaram lool loo scientist yi docteur yi wax nañ nga reer yàggu rek nga tëdd surtout nga lekk ay ceeb yu diis baaxut ci wér-gu-yaram sa machine yaram waa ngi wal pareegut ba pare nga fay sa machine yaram wi yëpp ne ko nelewal baaxut soo lekkee fay jël ay waxtu sa machine yaram waa ngi koy wal <coughs> di ko daay digest It's called Ngoyan. So, um, they lekk uh, teel a reer soo ko mënee te so come ne reer bi lu diis lay nekk maanaam I pasta I pid I pizza I malo, chip, you know laax whatever nanga ko a def te kon bu na nga lekk leneen lu baax ci bëccëg lu bu lekk lu diis lekkaat lu diis lekkaat lu diis you know oytu ay biscuit juice ice cream lekk yu su suwit yi nii yu xam sukkur yi oytu ko soo buggee wàññi yaram te soo buggee xam yaram wu leer te rafet nga koy moytu thank you I'm glad you like it jërëgeen jëf like leen vidéo yi please challenge bi dafay change sa life gi nga challenge bi mako commencé légui yagul way yaangi gis different bi challenge bi suma ko jappé lu mat hat da ngeen ne ki du am challenge bi nga koy continuer sa dundu nak challenge bi du lu ñuy def rek ba dé challenge bi boko miné moy nek sa haduna moy nek sa lifestyle non ngay dundé nga koy min biko li ci ne yeb yu bax la lo xamné la nga ko wara def mom nga wara dundé so da ngay pro reprogram sa mind bi channel challenge bi pour mu reprogram sa mind bi la sa mind bi nekk brain bu xees ak jëfin yu xees ak lekk yu lekkin wu xees ak jëfin wu xees waaye loo xam ne dafay defar sa wit gu yaram defar sa yaram defar sa xel mi te loo bugg ci àdduna lu baax nga koy xam ndax challenge bii weer wii liñ ci yokk mooy lu baax loo bugg mooy lan ak nooy def ba xam ko muy lu baax loo bugg nag kenn ku ne li nga bugg fa wute waxuma nga tëb naan fukk yu baax yi laa bëgg déedéet seetal benn wala ñaar rek nga focus si loolu <clears throat> ba nga xam loolu nga soog a focus si leneen léegi challenge bi fa lay jàngal nga bëgg sa bopp challenge bi fa lay nga julli challenge bi daal yu bëree bëree bëri fa lay jàngal soo amee xaalis nga xam noo koy dajalee noo nooy séefee sa xaalis for exemple xaaral ma continuer si li ma la doon wax fii rek number 2 bi number 1 bi moy nga julli number 2 moy nga hor su de ngay wañi yaram so xey man kom na kom sa fa ne ni lekkaguma dara so xey bu lekk ba ay ben waxtu wala ñaar wala fukki waxtu ak ñaar nga lekk lu xoyof lu baax si yaram manam ay fruit so xamé ne malo ngay lekk so xamé ne ciép ngay lekk reer nga lekk fruit then nga lekk ciép bu lekk mburu then lekkaat ciép déedéet nga lekk fruits andeen nga lekk ceeb soo koy def su yàggee sa yaram bi dana wàññeeku te sa yaram bi dana rafet te foo tollu deel naan ndox baax na wax naa leen ko de acca leen ku ko defu danga sonn de challenge bii wàññi yaram ak yaram wu rafet ak yaram wu xam wér yaram yaram lifestyle la war a dox nooy dundee lay dox noo war a dundee sa àdduna yëpp ngay wecci sa lekkin ak sa naan ngay wecci sa xalaat yi nga wecci ko nga positif sooy xalaat positif di happy rek si saa si sa yaram yi fay rafet automatically naturally man lu tax ma gën a xam yaram wu rafet mooy man métiti na duy tax ma nekk di négative 24 hours bu leen ma gis suma vidéo yi sax may yuuxu de suma vidéo yi dama fiil ne mooy suma place moo xam ne dama dee wax suma community bi li ma naqadi yëpp ak li nga xam ne moo koy yàq yëpp loolu laa miin xat yi yëpp ñëw fii wax li ma naqadi ak li yàq community bi mhm. but it's not like man noonu laa mel real life ma tollu négative ku ma xam-xam na ne ma noonu loolu moo may dimbale ni konoon négative bu ëpp ci sa sa yaram wi fay tax nga gaaw a màggat sa yaram wi fay ñaaw te danga xamee feebar yu bëri just very bad fu mu jaar ngay xalaat positif def lu positif seetaan lu positif bul def lu positif lu ne rek nga ne lii is boring lu positif lu ne rek nga ne is boring sa bopp nga koy def lu positif nga ko war a seetaan te bugg ko tam neex la comme ni ngay seetaanee lu bon buug tam neex la waaw ku ko du def doo xam jàmm si aduna mukk sa brain bi su miinee positif 24 hours suba soo positif ba guddi jot allo <clears throat> jërë ngeen luy wàññi mer mooy ngay xalaat positif danaa si wax suma si tolloo mooy méditation bi xam na fii loolu xam na fi méditation and think positive ñaar yooyu yëpp xam na fii su ma si tolloon naa ko wax mooy nekk su ma waxee bi ba pare si boobu laa ñëw so bii soo buggee wàññi yaram suy góor suy jigéen defal li ma la wax nii soo xëyee bu nekk di lekk ay mburoog ay yooyu déedéet soo xëyee na nga lekk fruit di naan ndox bul wax ne su ma lekkut mburu su ma demee liggéey may sonn doo mën a liggéey no that's not true konoon doo mën a xoor di liggéey suba ba jant so sa xel mi moo lay wax loolu yow yaay wax sa bopp loolu rek li nga nit ki loo wax sa bopp rek sa xel mi fay wax ne waa dëgg la kay waa loolu kay dëgg la soo waxee xel mi ne su ma lekkul doo mën sa xel mi ne waa soo lekkul doo mën a liggéey suñ lekkul duñ mën a liggéey waxee sa xel mi ne li ma lekk ni doy na baax na si yaram xam naa kàttan lii fa baax si yaram fay joxe kàttan xaaral man naan ndox te pare sa xel mi ne la waa achat nañ naan ndox te pare sa xel mi loo ko wax rek loolu lay def loolu scientiste yee ko wax du man de mhm. soo gisee yow ngay xoor te dem liggéey ba wàcc te yow nga ne soo xëyut lekk mburoog ay mburoog bër yu bon yile mburoog nen yee café yile baaxut sutu nen yi bitim réew nen yi Afrique sax nen yi baax mooy nen yi ganaar yi kët yi nga xam ne engrais wuñ leen ganaar gi fa ko nenal boppam kenn engrais wu ko yooyu ñoo baax te xam nga yooyu xamatul xanaa nga jënd ganaar yaral ko sa bopp xanaa loolu waaye neni ganaar fi ne yane Afrique sax baaxut bësal leen ma vidéo bi te séddoo ko ngir yàlla xaloo am good thank you bësal leen ma vidéo bi te séddoo ko ngir yàlla you never know ku kuy dégg wax ji koo xam ne dina ko jëriñ soo noon la léegi nen yi nii baaxut léegi waxuma ne bu ko lekk de man dama dee lekk lekk yu baaxut yi yëpp na si léegi kenn mënta daw lekk yu bon waaye bu ko lekk bët bu set ngay toog semaine man may toog ay semaine duma lekk nen ñaari semaine lu ko ëpp nga keroog bi ma defee nen bi fii di leen ko li ko lekk ak salade ba tey lekkuma nen te maa ngi xamee nen all the time <laughs> I know it's not good you know ma jël saraas lekk ak banaana romb ba nen bi <laughs> nit ngay bugg sa yaram wi surtout boo dootul gune soo dee ba am ay fanweeri at jëm kaw sa yaram wi sa machine yaram wi soo ko toppatoowul fay sonn moom mu ngi lay toppatoo rek di la dimbale yow nga di ko jox lu bon rek mu di la dimbale nga di ko jox lu bon rek fay sonn seetaan la te xam ne wéetoo bu sonnee ba seetaan la rek nga dee dañ ci yàlla musal feebar bu ñëw nga dee corona or soo gisee man corona bu ma ko xamee faalewu ma ko suma corona dalee it faalewu ma ko may def suma vidéo mel ni dara daluma it's like a such comme soj rek la because suma suma machine yaram yi mën na koo faj because maa ngi koy dimbali xat yi yëpp di ko jox lekk yu baax loolu mooy dëgg gi yàlla yàlla bay sa tool su fekkoon ne fekkoon ne man xat yi ma dëkk fii yëpp néewuma di jàng lekk yu baax lu def ci yaram maa di lekk lekk yu bon dëkk ci ay ceeb ay mburoog ay lekk yu bon te xamee huma jëkkët man kenn fi ne te man nit ñoo xam ne su ma stressé may lekk ci façon nit ñooñu laa bokk su fekkoon ne bët bu set maa ngi defar ay couscous yu saf yi léeg ganaar yu faraay yu saf yi léeg ceeb yu saf yi le bët bu set may direeku rek ni ko ñuy waaj a suuli man kenn gune yii ni ko noonu suma gune yaa ngi am ni pajaas man sama bopp maa ngi xam ni pajaas <laughs> ba pare konoon jarul may amaat jëkkër bi parce que ma amaatee jëkkër duma ko ko a dara <laughs> jëkkër ji fay ñëw rek ma ne ah <laughs> ne nii sax dama dee xalaat su ma amee jëkkër nu may def bot imagine su fekkoon ne koo xam ne laa maa nekk di lekk lu ma neex at yii yëpp parce que fii lekk yu bon yi seerut coca cola gutt bu xem nii one pound wala two pound suukar yi neen la fay reye moo tax seen yoon néew nit ñu bari fa ñu wax ne ndox fa lewet bugguñ ndox <laughs> ree moo may jàpp nit kuy wax ne ndox fa lewet doomu adama njaay sa yaram wi ndox lañ ko bindee ndox boo koy naanee sa àdduna yëpp dana wecceeku ndox àlloon ndox rek moy sa garab garab yu bari yang koy nan li nga wara def moy tay garab yi di nan ndox mu bëri mm. suba so xeye na nga nan lu mat ñetti litre ndox ci bés bi wala su ko ëppee sax baax su hebo nga dem sebeni loy tayé la jog seben sa wet gu yaram gi mo gën sa yaram bi bu ko minute commencement bi ngay seben minute bu ne parce que sa yaram bi minu xam ndox mu bari su yagge rek fay setu so don worry ñu bari lo tax du ñuy naan ndox su nané ndox tuuti fa ñu wone oh may seben seben sa yaram bi minu ko su yagge fay waaye of course danga seben fa xuutee ku dul naan ndox jóg sebeni na boo ko tayalee <laughs> loolu bay sa bopp la xam nga ne ndox fa baax si yaram <laughs> tayal ngaa seben it <laughs> doo naan doo nga naan may seben may dégg nit ñi di ko wax ree moo may jàpp ndox de dama ko laay waaye su ma ko naanee dama dee seben moo tax duma ko naan ma leen di wax ah duur say nek la ne nek di waxal nit ñi nii naan bu sa bop ak nangam <laughs> parce que yeneen nit ñi ko waxee duñ understand xamuñ suma jikko man nañ maa mere <laughs> foog ne ma leen a yab te fekk man noonu rek laa de waxee is na lay dama la yab ko <laughs> man ku nekk dama day def mel ni ñoo bokk ndey ak baay loolu laa dee fàtte ne nit ñi dañ di deret te sibbutu te ku nekk dama day def mel ni ñoo bokk ndey ak baay di wax ak yow you know like my best friend just wax la anyhow you know te nit ñi fa ñuy wax ne what the hell am yoonum dee waxee nit ñi moo tax yéen yi dama dee wax ne ne ah ah xaw nga dégg kay ndox kay daf la dee def nga seven ma wax loolu rek ne parce que jàpp sama bopp man di la seetaan wallahi te naan suma ndox te seven yi <laughs> but it's like that ñun doomu adama yaay yu bari parewuñoo wu ñoo toppatoo suñu yaram yi pare ñoo def lu baax you know it's not about ndox mi sax just everything else ndox or not <laughs> it's crazy allo jërëjëf so it's like that so um, so challenge bi soo xëyee ngay xoor su fekkee ngaa bëgg a wàññi yaram di naan ndox bu bari mhm. di xoor ba bëccëg nga lekk lu baax ci yaram sa reer si jotee nga teel a reer reer ba sa biir di fees na nga close bu lekkaat nga naan tii tii bi bu dee tii bu baax ci yaram la baax na maanaam mbor mbor ak tinkilibaa nga jaxase ko baxal ko dama ko dee jaay by the so buggee jënd mbor mu ratin ba contact ma ma post la ko mbala mhm. nga jënd ko foko mën munti jëndé dafa baax si yaram mbala mhm. any tea bu baax rek eh. nga naan lool and then mën nga naan benn muy wonjo dama dé defar wonjo dama ko dé jaay tamit dama ko dé defar diko ko uhm dama dé defar wonjo bari def ko ci fridge bi su jéxé ma défarat so mëna gune yëpp kenn ku né ala nga pour xam benn wonjo ci bëss bi def na ci yow nga xam genn wàlli kaas nga ñëwaat xam genn waaye benn kaas nga alaaw si bés bi ok because suukar si tam baaxut waaye ma koy def ba mu ëpp waaye suukar si baaxut te bugguma gune yi miin juus juus juus juus suba ba ngoon so noonu moom dama ko yàgg a yaree suma doom yi ne juus bi aadi dama daan xeex ak moom ci loolu waaye léegi tane na léegi kaam na daaw benn kaas si juus si bés wala ñaari kaas su fekkee gune dem demuñu iskul yenn ñaari kaas si bés waaye benn kaas si bés ak ndox ak mën nga xam benn kaas si ak benn kaasi café muy ñeenti kaas yu am suukar ci bis loolu doy na wala ñett man nga xam benn kaasi tii wala café wala nga xam ñaari yëpp faatu daf dee xam ñaari yëpp yenn yi daf dee xam kofi su su xëyee waaye kofi mu daf bëri du dee du dee fort and then su su mu xam tii and then mu xam tamit juice benn juice ci bis waaw waaye moo dee bugg a xam juice juice ko aadi noonu faalewu tii ak kofi noonu lu bëri waaye yenn yi daf dee xam tii wala coffee de aada bi xam coffee sax bëriwul xanaa tii waaye lu si bëri juus juus daal la dee xam faalewut ay tii ak coffee soo juus bi aada daf dee xam ñaar si bés bi lu si bëri kon duy xam tii ak coffee waaye gune yi sax man ma leen dee ceeb lu ñuy lekk de su ma xamee ne lekk bi baaxul te su ma ko jëndee gune yi di ko xar-xaree mu jeex duma ko jëndati may toog lu yàgg bala ma koo jënd noonu laay neex ak gune yi de moo tax seen yaram yi rafet. te seen yaram yi rëy rëyut noonu ba ëpp maa koy contrôle di ko xool duma nangu ñu dem jël bota ba jël beur mooy bota jël beur ba riib mburu ba mu fees su ma gi nga chocolate spread chocolate yi def ci mburu noonu xam naa ne gune yi fañ ko bugg surtout aadi chocolate yi def ci mburu boo ko jëndee aadi bu ko gisee fa koy def moo tax du ma koy jënd su ma ko jëndee su su koy commencé ma ne ko ah waa bu jeexee dootuma ko jëndati mu ne ma ah, sorry sori moom ko waa aja boo deful sa bopp nit bu jeexee dootuma ko jëndati léegi su fekkee lekk na ko lekk nit def ndànk ma xam ne noonu la waaye su fekkee lekk na ko gaaw ay fan rek pot bi jeex pot bu ndaw boo yënoo dootuma ko jëndati may toog weeru yàlla. ah di njëkkalante juus bi kéréb képpee ko mu jeex ma toog ay fan du ma jëndati juus ne leen ndox mango ku bëggoon ndox yaa koy yëg jàpp sama bopp waaw mbala su ma jënd juus ma jënd benn juus bu ndaw benn paquet. ku nekk xel li mu jeex waaye du may def lémbale lekk yu bon yi yëpp you saa yi ko gune yi jeexalee rek ma lémbale ko noo fay rey dafa seer te baaxul ci yaram so yow ngay baqel li ngay lekk ak gune yi you know that's all gune yi mënoo leen xaay lekk yu bon yeeg minti yeeg yooyu waaye at least yeneen yi ngay indi si néeg bi minti yi sax may oytu duma leen di jox xaalis ñuy jënd ay minti jóor noo aadi moo gën a ñàkk a discipline si minti yi moom soo amee paquet am minti ba koy bugg lekk yëpp paquet bi jeex du bugg a denc wax ma koy nangu paquet bi denc ko su amee paquet yi minti ma jël ko nangu ko denc ko jox ko ci lu mu naa no moom mi ma ne ko no léegi sax mu koy mindi wàññi ko maa koy nangu di ko denc yooyu yëpp nga koy baxeel jàngal gu ne waxal leen ne leen this is nangam nangam yu Faatu moom moo ma ne daf dee riij lekk di risaaj lekk moo tax mu mën a toppatoo boppam si man la jàngee loolu jigéen la xam nga waaye aadi faale aadi su xamoon beneen yaay lu konoon aadi ba pare aadi laa illa football bi muy nekk nii sax du ko mën a de aadi ni mu buggee lekk moo ko mën a xem soo man maa ko dee monitor yow yaay monitor gune yi monitor sa bopp you know soo noonu la ba pare nga jóg soo xëyee nga dem dox waa wàññi sa yaram wi bala nga exercise ci kër gi wala nga dem gym nga def ko ñeenti yoon ci semaine bi boobu mooy ñaareel bi boobu mooy number two bi number one bi mooy nga julli number two bi mooy li ma doon explain nii yëpp ay lekk-lekk yu baax dox xoor naan ndox jos pour nga am wér-gu-yaram mooy number two mhm. lii fay joxe wér-gu-yaram fay tax nga positif nga happy fay tax nga dund fanu gudd mooy number two number three mooy nga think positive jërëgéen jëf waa like leen video bi te séddoo ko allo number two mooy nga think positive haduna si yépp léegi soo gisee nit ñi di rey seen bopp bitim réew léegi xat mu ne ñu ngi lay won nit ñi rey seen bopp xat mu ne nit ñi di gën a rey seen bopp afrique sax xat mu ne nit ñaa ngi gën a dorogu di gën a sàngara seen bopp di gën a di gën def lu bon lu bon ci yaram di gën a sex sexe si yépp léegi ñu ngi koy use because dañ stress nit ñi duñuy sex because dañ la loof nit ñi duñuy sex because nangam nit ñi léegi buñ la takkee sax duñ la sex ñoom ñu si fa ñi dem sex keneen because day stress dafa xam ni ñoo xane léegi dañ addict si sex ngir stress addict si sangara addict si taay addict si cigarette addict si drogue addict si yu bari ngir sex ngir stress sorry stress yu bari la lay addict loo yu baaxut waaye fañ fañ wuute fa xam yoo xam ne ñoo gën a bon oytu ko léegi del think positif daf lay dimbali soo seetaanee lu négatif bësal leen ma vidéo bi te seddoo ko please soo seetaanee lu négatif su fekkee ne yow sa xel mi lu négatif rek lay bugg a seetaan xamal ne ngaa stress sa xel mi su stressé lu négatif rek lay bugg a wax lu négatif rek lay bugg a déglu because dafa stress happy hood su happee lu happy rek lay bugg a wut lu happy rek lay bugg a déglu te lu happy mooy lu positif kon nag su fekkee yow nga miin seetaan news wala seetaan négatif wala déglu négatif wala wax ak sa xarit mbiri négatif xamal ne ngaa stress mhm. nga commencé di forcer di seetaan positif di déglu positif di wax positif su yàggee sa xel mi dana ko miin so ko defut do xam jam because negative kalat, ak negative setan, ak negative deglu, all the time moy lu gëna bon ci dundu dom njaay dan drog ak ak sangara ndax mom mo de waral drog ak sangara mom mo de waral lu bon lu ne ta mom moy tax do gëm sa bop mom moy tax do mëna dugg ci dara mu baax mom moy tax sa yaram wi febar yaram wu dëkkee stress ak xalaat bu négatif fay feebar du happy sa yaram wi suy xalaat happy ak xalaat positif fay xam wér gu yaram si saa si loolu scientist yee ko wax du man sa yaram wi suy xalaat positif ak happy fay xam wér gu yaram fa koy yëg fa koy xam fay commencé di faj feebar bu mu xam commencé di wét si saa si commencé di xam doole di xam kàttan di sawar waaye yow yaa ko du def lu yàgg moo tax nga koy def tuuti rek ba dawaat si négatif bi xeen bi ci négatif ba ngoon jot soo xëyee xëy ci négatif bi fajar nga xëy ci guddi booy tëddit yaa ngi ci négatif di seetaan négatif déglu négatif seetaan négatif déglu négatif wax négatif xalaat négatif non léegi ni ngay def mooy àdduna kenn mënta daw négatif parce que àdduna négatif ak positif moo ànd jërë ngeen jëf seddoo leen ma vidéo bi te like ko gi nga àdduna scientist yi wax nañ ko su fekkee ne nii ngaa jooy jooy naqat loolu fa baax ci yaram ronkoñ yi naqat nga xamee ko forcé pour bul jooy baaxul si yaram ronkoñ naqat su génnee fa baax ci yaram ronkoñ yi naqat poison la warta toog ci biir yaram wi xam nga loolu ñu bari xamuñ ko Afrique ngay dóor gu ne muy jooy nga ne ko bul jooy ronko ñi nakat fa wara genn yalla yàlla lum def mo xam lu tax ndeysaan mo tax nit bu xame nakat di joy ndekete gis nga jang dafa bax haduna jang jëm jëm mi doom adama njaay ni mi doxé lu bax la lu xam solo la te ñu nit ku ñu fañ ko wara def ñu nit ku ñu xamuñ ci jëm mi doom adama njaay lu mi doxé dara gi nga négatif nga xam lu la naqari nga bugg koo wax ci doomu Adama Njaay la bokk ne ngaa dëggu nga xam lu la naqari nga jooy mooy ne ngaa dëggu te mooy ne yaa ngi dund yaa ngi nekk doomu Adama Njaay nekkoo di féeg das guut bu si rus bu ci mer nit ñi nga xam ne fañ feebar te fañ naqat danañ ko use di la naqadal ndax nit ko xam naqat fu mu toll mu ngi wut lu muy use pour naqadal la pour nga mel ni moom sa jàmm ji la lay xañaane so lu ne dana ko use joy on not lu ne dana ko use pour xas la xamal loolu seetaan ko yow nekkal nit rek bul féeg gis nga dundi féeg dafa métti te dafa ànd ak prix yu bëri prix yu seer a seer a seer la mooy dundi féeg pour nga maintain féeg boobu lu seer la doo xam jàmm <clears throat> te doo mën a gëm sa bopp kon nag yow dundal réalité rek soo xamee noonu la naqari loo xam ne fu mu jaar ko na ko wax waaye na nga xam fooy xem bu nekk di xeex aka rey nit aka gaañ nit aka góokirée si jaru ko benn doomu aadama njaay jarul loolu ngay wax sa fulaak fayda rek wax fi nga xem you know li nga feel and stuff you bàyyi ko noonu thank you laygal leen ma vidéo bi te seddoo ko jërëgéen jëf you're welcome I love doing this I love talking about things that lu ñu mën a dimbale I love it man naa cee xendu fanaan si I love it nii laa mel depuis balaa may def vidéo sax <clears throat> ku ma xam-xam na ma so I eh, am what I'm nga nit ki soo fonkee sa bopp te loo dund dund métit wala loo ne loo ne ci community boo xam ne gëmuñ seen bopp yow nga jàng nooy gëmee sa bopp te fonk sa bopp te xalaat positif loolu mooy sa guiding loolu mooy sa sordaar bi lay garde si àdduna man de loolu mooy suma sordaar bi may garde ni konoon néew fii di wax ak yow ni konoon maa ci yeneen yu bona bona bona bon te réer te bon because of nakat, ak because of ma ngi dëkk fii man kenn xat yi yëpp te huma ndey xamewuma baay lu ma nee def maa ngi amee suma këyit ma def kenn ma man la neex ma stop suma bopp di yar suma bopp di stop suma bopp mangsi maa ngi si jàmm gi nga xaduna jafewut de ñun ñoo koy soo léegi noonu la léegi soo nekkee di xalaat positif su fekkee yaa ngi xëy bul xëy bul xëy rek taxal news di déglu ay news wala nga xëy rek di seetaan négatif soo xëyee na nga julli su dee yaa ngi julli su dee mënoo ko julli na nga ñaan ci yàlla rek you know yal yàlla may bés bu baax bés bu am jàmm may ko bépp doomu adama jaay nanga nanga you nga toog méditer surtout bu dee ngaa julli ba pare man julli suba ba pare méditer moom ma dee gënal su fekkee ngeen a bugg def ngeen a bugguma def vidéo won leen lu ñuy méditer ak lan mooy méditation ak lu ngeen koy defee ngeen waxal ma gëj naa ko def vidéo yooyu dinaa leen ko defal won leen ko I love meditation is beautiful meditation ñun ñu bari xamuñ ko waaye fañ ko war a jàng meditation mooy nga toog rek gëmm sa bët yi nii te nga nokki bul xalaat dara loolu rek la nga yëg sa yaram wi nokki toog frenkulaay ci suuf wàccee say mbag yi wàccee sa yaram wi yëpp su fekkee sa xel maa ngi commencé di xalaat sa problème yi walla xalaat ay stof na nga commencé nga attaque ko ak positif xalaat walla nga attaque ko ak turi yàlla nekkal di wax laa ilaaha illallaah sa xel mi walla nga nekk di wax astafurlah wala nga nekk di wax salallahu ala muhammad just anything anything good mbala ngay nekk di wax ne suma àdduna baax na du may sonn si àdduna mboolem lu ma bëgg si àdduna ma koy xam ku xam jàmm la ku xam wërsëg la ku sant yàlla la ku yàlla bëgg la ku àdduna bëgg la ku yar boppam la ku gëm boppam la ku xam wërsëg la mboolem lu ma bëgg si àdduna ma koy xam suma àdduna yëpp baax na lu ma yàlla may si àdduna si sant naa si yàlla soo foogee ne yàlla mayul la yi nga bugg yëpp sax yàlla may na la yi nga bugg yow yaa ko gisul léegi nga koy sant si la may ndax mu mën laa yokkal waaye soo nekkee di wax yàlla ak àdduna si defaluñ la dara yàlla ak àdduna si baaxuñ yow lu nga bëgg xamoo ko duñ la jox dara bi ko yow lu nga xam moo hëpp li ngay wut li nga xam muy sa bakkan bii ngay nokki ba tax nga bugg a xam leneen yow est ce que soo deexontee bañ tàdd la robi la sax yi lekk la konoon danga bugg taax wala jabar wala jëkkat <laughs> loolu boo ko xalaatee sa na yëppay weccee ko yow est ce que tey man tey buñ ma robi woon ba sax yi lekk ma danaa toog fii for example, naan yàlla lu tax joxuma jëkkër ju baax wala nangam su fekkee loolu mooy sama problème you know loolu sama problème la kay ay wan dat ay wan yàlla bu jox ma jëkkër ju baax mm-hmm. jëkkër ju jógee ci suñu askan wi te baax te bugg nit te jëkkër ju xam may nopp te ma nopp ko very good I love it Why? su fekkee loolu noonu for example moom la nekkee di mere yàlla naan yàlla sax you know just haduna very bad why why I don't have this léegi man est-ce que su ma deewoon ba sax yi wann ma ca bàmmeel ya konoon jëkkër ji fee ñëw si bàmmeel yi takk ma <laughs> walla lan <laughs> léegi ba tey man xaw ma jëkkër ji waaye xam naa lu ëpp jëkkër ji te yëguma ko parce que man lu ma xam mooy <laughs> dafa am ne maa ngi dund ba tax ma ma soxla jëkkër surtout boo xamee wér gu yaram ba mën a sangu ba seet ne ñi di wax man su ma xamee wér gu yaram ba mën a xamee corona tey bax ba fi si vidéo naa sant yàlla ñu bari dee ngir corona sangu ba set sol sa këpp ne noññi di vidéo yi bax ba te yaa ngi xamee corona yàlla fa la bugg waaye boo ko seetluwut nga koy xeeb di focus ci ay jëkkët ak yeneen ay ñàkk fayda for exemple you know ne nekku ne jëkkër fa ñàkk fayda but you know what I mean léegi yow defal sa bopp nit te sant yàlla is <laughs> true léegi yow saa woo foogee ne yàlla joxul la li nga bëgg wala àdduna si joxul la li nga bëgg te lii experts yi ñoo ko wax waxee wuñ ko nii comme ni ma ko describe nokki gi boot ñoom it ñeneen lañ koy describe xam nga ni ku ne ni muy xalaatee fa wuute waaye dañ lay won ne la su fekkee ne yaa ngi xeeb àdduna si lim la jox ak yàlla su fekkee ku gëm yàlla nga wala jox sax gëmoo yàlla bu doo sin maata sooy xeeb sa te loolu ñu koy wax gëmuñ yàlla sax ay scientist rek lañ fañ ko tes ba gis ko research ko ba gis ko seetlu ko ci nit ñi tes ko ba gis ko ñu di ko jàngal nit ñi ne dafañ ko war a ba waaye ñun ñi gëm yàlla yàlla wax nañu ne baaxut boo koy def ngay humu ndax yàlla su dee yaa ngi ko xeeb nokki gim la jox xeeb lu ne xeeb yëpp rek ne lu tax xamoo lële léegi ngay xeeb yi yëpp du ko sof lële ñëwul <laughs> soo ko seetloo <laughs> ko seetloo laa calm down <laughs> so ni ngay def mooy ngay sant yàlla si nga xamee nii hi I'm good thank you sant si yàlla likeal leen ma vidéo yu please <laughs> sant sa bopp sant àdduna just sooy meditate fay dindi stress yow ki doon wax ne luy dindi luy dindi mer mer mooy stress mer lu koy dindi xamut de nit ku originali naqadi deret fa juddoo naqadi deret xamut liir bu juddu fay jooy naqadi deret taxu ko di jooy de xaw ma àddina si la xaw ma sedd bi la ndax biir bi fay tàng yu noo xam jos si ngelaw li su ko fuufee wala yooyu tam miinu ko ay doon dafay sonn buy juddu it di puus pour génn balaa muy ndax mu mën a nokki liir bi suy waaj a juddu di nokki diggante bi liir bi poussé di génn noonu nokkim gi fay fatt du mën a nokki moo tax yaay ji fa war a puus génn liir bi génn bu dul loolu fay dee léegi liir bi suy suy puus moom it fay sonn te du xam ngelaw su puusee ba génn surtout liir boo xam ne yaay ji gaawul dimbali ko man xam naa si jur doom dara su ma yaay loolu mooy liggéeyam fay gaaw su génnee fay fay sonn moo tax yenn liir yi fa ñuy sonn ba duñ mën a nokki wala yenn liir yi just jooy or something I but it's not like liir bu joore fa juddoo naqari deret nit ñi fa ñëw naqari deret non gune gu ndaw sax bu naqadee deret seetlu ko fa am lu ko naqadi moo tax mu naqadi deret i da koy duur torop mbala nga di ko xas mbala nga di ko sàgganee mbala nga xamee geneen gune ci kër gi koo xam ne gën a bugg wala nàngam xam na lu ko naqadi gune ga lum ndaw ndaw dee ko seetlu rek jëfinam ak waxinam ak jëfinam danga gis ne lii moo ko naqadi waaye déedéet nga koy woowee gune gu naqadi deret gune gu bon gune gu naqadi deret gune gu lii ba gune ga su magee continuer loola nit ñi ñëpp di ko xas di ko woowee naqadi deret ba mu ne waaw dëgg la maa naqadi deret naqadi wu deret de fa xam lu ko naqadi whatever the hell naqadi deret is doomu Adama Njaay bu ne fay mer dafay fay kontaan that's natural ku ku mer fay fake doomu Adama Njaay boo xam ne doo mës gis meram dafay fake waye mer mu hëpp naqat la fa xamé naqat fa wara fajj faj wi xam ko xam nu muy def ak naqat wi ba paré di xalaat positif di bay mer jangal ma maynam bi mu min euh, mer mu nga xane ne maynam bi min nako fa ko wara jangal bi mu genn ci waye nit ku dut mer fa saw ko ko fay fek ko ma sa gis duy mer fay fek ta fay mer fa la ko dut won nga ko dut gis fa merere. koo xane ne fa gaaw mer torop wala jos yomba mer wala jos mana a mer mer mer yu for yu dëgër yu bon yi ba mën a xeex wala mën a rey nit hmm. na ma bind danaa ko dimbale suma email address baa si kaw ami xolof at gmail dot com du ma la mën a wax li ngay def fii kon fii lay fanaan te te lii ami challenge bi rek la soo duma mën a explain benn wax rek nekk ci ay waxtu loolu vidéo boppam la moo tax waxi boppam la ma ko focus waaye nit kuy génnee meram dafa réyal fa dëggu moo tax mu ñemee génnee meram nit ku du génnee meram dafay féeg moo tax mu ngi dee waaye fay féeg rek naan eh, di féeg loolu lañ wuute bon ñëppay mer soo xamal loolu waaye nit ñi community biñ nekk ñun because community bi dafa bëri métit nit ñi fañ mën a ñaawlante te mën a tooñ nit te mën a ñaawal nit te fuñ toll ñu ngi wut lu ñaawalee nit parce que ñëw seen bopp ñu ngi bugg dee ci métit bi lañ ne léegi ni ñuy def mooy suñ la gisee anything rek fañ lay ñaawal mer or not lu nekk rek ñu ne kii moom nangam rek kii moom lii rek kii moom lekk rek kii moom wax rek kii moom nelaw kii moom noppi rek kii moom mer rek kii moom ree rek kii moom fecc rek kii moom rëy rek ku ne rek ñu xamal ko tur ku ne xam na tur ci communauté bi ku xamul tur xamul xamal lo, mer ko bëgg su ngeen buggee ma def si vidéo ngeen waxal ma dafa xam noo koy ceeñee danga ko dee mën a ceeñ waaye nag def na si yow nga bugg nekk ni koo xam ne ngay féeg soo meree it doo ko wane wala nga bugg nekk ni koo xam ne soo meree nga koy wane waaye nag xëy na nga war a xam fan nga koy wane ak kañ nga koy hmm. man maa ngi gën a man ni koo xam ne dama dee gaaw jooy wala su ma su dara dama ko dee wane waaye maa ngi jàng nu ma koy gën a moytoo xam fan laa koy wane ak kañ you see waaw waaye it's not like nit ko nit kuy mer nangam non nit kuy mer dafa xamee naqat moo ko waral naqat wi moo dee waral ngay gaaw a mer te loolu dara néew si jaru nga di ko daw naqat nit ñu bëri ñoo ko xam ci àdduna si bitim réew sax tubaab yi sax chinese yi sax moo waral nit ñëpp di naan nit ñëpp di tux ni ñëpp di jëw jëw yu soxor nit ñi ñëpp di soxor di hañaan yëpp nakkat fa koy def nit ñi ñëpp di sex nit ñu bari léegi dañuy sex bi ko dañ xamee nakkat it's not because dañ nob nit ki wala nit ki dañ ko takk seen jabar la wala seen jëkkër la léegi ngay xamee jëkkër wala jabar sax doo bugg a sex ak moom ngay dem di sex ak keneen because sex bi léegi nit ñi dañ koy use because dañ xamee nakkat xam nga sex dafa neex comme sangara nu muy neexee wala cigarette wala taay wala drogue nit ñi koy use noonu ay drogue yeeg yooyu di la wax ne la is nice sexe tamit noonu la is nice so léegi nit ñi dañuy use different things because dañ xam stress soo yow sa mer mii du yow kenn yaa xame stress yeneen nit ñi ñëpp a ngi xame stress kenn ku nekk ak stress am lam koy defloo ñeneen ñi seen stress fay tax ñu soxot xañaan mën a jëw-jëw yu soxot mën a xañaan ñeneen ñi seen stress fay tax duñ gëm seen bopp soo léegi fa ñuy forcer di wut dara wala di def dara pour ñu pour ñu gëm seen bopp it's complicated ñeneen ñi seen stress fay tax ñuy tux wala ñuy naan wala ñuy am sex ak ku ñu warta xamal sex different thing la stress di def loolu ñeneen ñi seen stress fay tax ñuy jënd loo xam ne xamuñ njëgam waaye nañ ko jënd rek bàyyi force buñ ko jënd duñ nelaw nga xam ne loolu nga stress parce que li xamoo njëgam su fekkee nga ne bàyyi force nga am ko ba nga dee nga stress te nga war a faj sa stress stress dafa bëri lu muy def loo nit kon yow bul nekk di feel bad naan may gaaw a mer wala nangam nit ñi suñ lay def nga fiil baat bu ko nangu xamal ne nga xam stress moo tax léegi nga seet stress bi lan la seetal li nga dund ci gannaaw di nga gis ne yooyu moo la naqari wala li ngay dund léegi xam ne yu la neexul loolu moo koy waral hmm. mun naa xam nga xam njaboot te njaboot yi nekkuñ di déglu walla nangam nangam it could different things so ku fekkee nga am stress trop bind ma suma email baa si kaw so noonu la nga think positive nga soo jullee ba pare nga so soo julliwul sax del meditate dafay dindi stress think positive mooy enemy stress enemy stress mooy think positive think positive di xalaat positive di sant yàlla di ko gërëm surtout boo doxee jullit yomb na nga jox sante yalla ñi du julli sax ndegam ñoy sante haduna ci dañ dé wax ne sante na haduna ci gërëm ko haduna ci moma jox ndox moma jox li nit ñi du julli gëmu yalla non lañu dé dama leen dégg seen vidéo yi ñi wax ne sante na haduna ci haduna ci moma jox ngalaw li may nokki haduna ci moma jox garab yi may lek jox ma ndox may naan jox mo yaram wi may dundu, sante na haduna ci gërëm ko ree fa may ma leen di wax né ah wax nga dëgg dé ku gëmul yalla nga gëm haduna ci rek xawma ma nag lu ñuy xalaat ne moo defar àdduna si waaye su ma yoon néew ci loolu waaye dama leen di gis daal <laughs> mooy like seen vidéo yi rey jàpp ma ma romb leen di wéy <laughs> duma leen di commental naan ku bind àdduna ak nangam dinaa gis nit ñi di leen wax loolu bot jaru ko ah gannaaw ñu ngi sant dara rek at least moo gën ko santu dara nit ñaa ngi bugg a ñëw waa xaar ma jël leen waa challenge bi de laa bëggoon a wax ba mu jeex ba xaar ma jël leen waaye yéen ñëpp a ñëwandoor yéen ñëpp benn minute yéen ñëpp benn minute bi ngeen ñëwandoor kan laay jël nag koo njëkk a jël morom caméra la xaarlee ma ñëw jël leen te dem defari café xaaral ma jekkali challenge bi li may wax so meditate ak think positive beneen bi mooy sooy xam xaalis lum tuuti tuuti nga jàng noo koy dajalee loolu su ngeen bëggee ma def si vidéo ngeen waxal ma danaa ko def def ko si YouTube channel bi because dafa am benn technique bu may use boo xam ne su ma oon technique bu ma créer laa xat si gannaaw ba ma ko créer ba tey sa laa doxee ba bàyyi ñàkk xaalis atool ma daan toog suma banque account bi bu tuut du ci ne ma yónnee Afrique fay courant fay bill jënd lekk mu jeex nexee naa ko fi ay xat ay yoon yoo ne bu tuut du ma koy xam bi ay yoon yi yoon waaye ba ma jàngee technique bii sa laa commencé di xam bu tuut su bëri wutit da nga xam tuuti bu boo xam ne tey suñ newoon emergency da nga mën a génnee butul boobu waaw su fekkee liggéeyoo sax danga mën a def loolu technique bii danga mën a dajale ba tey xaalis booy xam lu mu tuuti tuuti weer wu ne danga mën a dajale semaine bu ne wala weer wu ne yow yaa war a xam ni ngay def teg ni ngay def technique bi technique bu ma use nii moom laa la war a jàngal rek su ngeen buggee ma def euh, vidéo ci technique bi ngeen wax ku bugguma def ci vidéo na ko bind waaw waaye léegi lu ma leen di wax rek mooy ngeen dajale weer wu ne ngeen dajale tuuti seet li ngeen di am ci weer wi ak li ngeen di génnee ngeen bind ko wala ngeen denc receipt wala ngeen bind ko su ngeen mën ngeen a bind wala ngeen denc ay receipt li ñëw li ngeen di génnee ci weer wi yëpp ngeen xam ko li ngeen di am ci weer wi yëpp ngeen xam ko ngeen seet ñaar yi mun ngeen koo def ci weer wi sax soreegul su weer wi deexee fu nekk ni ku gis vidéo bii na nga commencé di jël li ngay xam ci yëpp nga nga bind ko li ngay génnee yëpp nga bind ko su weer wi deexee nga teg ñaari seet soo ko seetee rek loolu dana la force dana la enforce nga commencé di xam ok man lii dee waruma ko woon a jënd lii dee waruma ko woon a génnee lii dee jarul jënd lii dee jarul def li nga tax kay mënuma am xaalis li kay lii yëpp moom def su ko defee nga commencé di wañi su ko defee benen weer bi rek nga commencé di dajale inshallah non ngay jangé dem ba masta ko ba commencé di dajale. Mhm. technique bi ñu bari ñu ko jàng si man mo dafa wécc seen haduna ak man sa dafa wecci suma haduna so try len ko bo su ngeen bëggee ma def si vidéo explain faada jangal len nu ngeen di def ba respect xaliss ñaka respect xaliss mo waral lool yëpp so ko respecté rek problème bi yëpp ay jeex. so bii mooy last one bi mooy yow loo bugg ci àdduna lan la ak how bad do you want it sa mbugeel nangam bi nga bugg nii sa bugg sa buggee ci moom est-ce que like how much do you want it sa buggeel ci moom li nga bugg nii loo fekkee loo bëgg a xam la Hmm? wala yow no bugg mel la wala loo bugg xam la sa buggee ci mom naka la because soo bu baax trop do ko xam da reality ñu ci si boy si aduna bi dañ dee bugg xam dara wala ñu bugg mel dara waaye bugguñ ko bu baax trop moo tax duñ koy mën a xam te buñ ko xamee du du mën dox duñ ko mën maintain nga ko war a bugg bu baax trop te nga war xam njëriñ yi valeri lool lu tax nga bëgg lool ak loolu valeram njëriñ li ne ci loolu loolu ngay focus dangay si lu tax nga bëgg lool ak njëriñ li ne ci loolu boo ci focusé rek incha danga ko am ku may kaw ni allo what How come may call from Germany? قوم كلا Germany number. Very weird. so um, noonu la so yow li nga bugg loo bugg si àdduna nga koy bind maa ngi ñëw jël leen yéen bugu bëggoon a dugg li nga bugg si àdduna nga koy bind soo ko mënee bind soo mëntee bind nga xam ko par exemple nga ne man sumo àdduna fii laa bëgg mu dem wala man nangam bii de bëgg naa koo xam muy lu nek suy liggey la suy nga bugg a wàññi yaram suy nga bugg a xam wér gu yaram suy nga bugg a euh, mer comme nu ko wax non suy lu ne rek suy nga bugg a suy nga nek euh, nek ci sëy waaye ngaa bugg sey bi gëna neex ta xam jamm suy nga bugg a ci sey suy nga xam xarit ngeen xam jamm lu ne rek lu ne rek nga xalaane ne ok man nangam bi laa bugg léegi nu may def ba xam ko ak nangam bi suma ko xamé luy njëriñ li parce que soo xamul luy njëriñ li dafay tax ba doo ko xam te da nga war a nekk di ko xalaat répétit li nag doo ko xalaat tey rek ba ko nga war a suba su ne nga xalaat ko xalaat luy njëriñ li xalaat nooy def ba xam ko suba su it's a long it's a long it's a long story suma ma ko waree explain yëpp fii naa yàgg bot du looy xalaat nii rek nga ba ko ngay continuer di ko xalaat continuer di di xalaat nooy def ba xam ko continuer di xalaat njëriñ li su yàggee rek da nga commencé di di ko xam su yàggee da nga ko xam te soo ko xamee da nga xam nooy def ba jàpp ko parce que xam nga njëriñ li ñun lu tax luñ xam duñ ko mën a jàpp mooy du ñuy xam njëriñ li luñ xam lan la soo xamul njëriñ li du dox ok léegi xaaral ma jëlee kii dee ngi bind man xamalan man neex Mm, no. lum bind noonu. sorry léegi loolu mooy challenge bi so explain naa ko yëpp léegi vidéo bi naa ko yóbbu si Amie Olof challenge bi so challenge Amie Olof challenge moo pare fu ngeen seetaani ko YouTube fu ngeen ko gis mooy wéy si biti la ne am allo what the hell kii fa xëyoo pare nekk si bitik waa Omar mun ngaa ñëwaat soo buggee man de pare naa léegi mun naa leen jël explain naa challenge bi yëpp because video bi is ma explain ami olof challenge bi so explain naa ko si english dinaa ko transfer si ami youtube channel bi soo paree bu english bi an bu xolof bi dinaa ko transfer si ami xolof challenge bi am channel bi youtube channel so yeah léegi pare naa explain challenge bi su ngeen buggee léegi mu ngeen a dugg ki de mako jël pare mu ku jël ni so non la challenge bi dafa ñëw pour jangal ñu xam wér yaram fan guddu gudd xam jàmm kuy hur halal tam di ko mëna xam ci yoon wu lew inshallah allah jigla mu jig la ku xamul xalalit ba tay da nga mëna jang noy mëne jé gëm sa bop gëm haduna ak halal bi ndaw ji nga xam nga mëne ko think positive ak xam gu yaram mooy ami xolof challenge bi daf dee mun a wecc sa àdduna hallo lu kii bind ni how do you do that we like to each other how do you how to do so that we talk to each other oh you can come to the live video nga bëgguma jël la yónnee naa la invitation su fekkee ngaa bëgg a dugg si vidéo fakna foog naa loolu ngay wax yónnee naa la invitation nga xëyu ko soo ko xëyoo di nga mën a dugg oma su dee da nga bëgg a dugg ba léegi nga ñëw da nga ñëwoon waaye maa ngi explain challenge bi challenge bi duma ko mën a bàyyi lu ma doon waxtaan di jël nit challenge bi daf amal important trop because it's changing my life te dama bëgg nit ñi koy déglu nga understand ko moo taxoon may explain ba pare waa léegi am na keneen ku ñëw xaw fa sedd xaaral ma dem taxal taxal xita te defar café tëj palanteer bi sedd bu bëri mooy ñëw ne nii si ngelaw si si palanteer it's crazy allo Omar allo Ami Diop hi maa def fine thank you su <laughs> loo nekk nag ngi nii di Ami Olof challenge bi noonu hmm, la àdduna challenge rek la mm-hmm. gaañu naan foos. oh waroon naa baa nekk ataaya gëj naa naan. léegi laa dugg si maa ngi toog ataaya nii. that's nice. gëj naa xanaa ataaya trop. dégg naka sa xale yi nag. gars yi ñu ngi fay de. Ah, waaw sant yàlla alhamdulilah. Mm. lan mooy topic bi te topic bi day mooy soo buggee dara mm-hmm. nooy def ba xam ko ak nooy ak njëriñi loolu danga ko war a xam mm-hmm. foog naa ne ñun ñu si dañ dee bugg dara waaye duñu xam njëriñ li moo tax suñ ko xamee duñ ko mën a toppatoo te mooy tax lu si mooy tax ba duñ ko xam bi ko soo xamul njëriñ li doo xam lu la motiver ba tax nga def li nga war a def pour nga xam li nga bugg loo bugg lu mel naka alal ndax jabar lu nekk rek ndax doom lu nekk rek lu nekk rek lu nekk muy wér yaram muy lu ne lu nekk lu ne soo ko buggee te xamoo hmm. njëriñam doo ko mën a xam wala soo ko xamee du toog doo ko toppatoo du baax <laughs> waaw leena mu ngi si bokk njëkka hmm. first of all borom dafa war a nekk koo xam ne da nga da nga jub jub waaw waaw ñaareel nga gom yàlla mm-hmm. ñetteel nga nga gom sa boppa waaw waaw loo nekka di ut nag nga nekka si yoon bi nag après loo gis rek nga xam ne yàlla moo ko dogal mm-hmm. waaw te si plan boo jógee noonu loolu bu dara bum mu la nga dellu si gannaaw waaw bés bu nekk ngaay julli di góorgóorlu loolu moo nekk limaan bi loolu moo nekk a gum yàlla bi. very good li nga wax noonu dëgg la waaw li nga wax noonu am na fayda trop. Mhm. waaw man loolu laa fi gis no mooy challenge bi mooy nu ma nu ko expliqué challenge bi rek noonu nga wax noonu rek. because tey soo gisee tey soo xoolee soo gisee ñu bari ñu ngi si traveling field bi nii. suba bu nekk dañoo suñu Yeewu Africa time bu ñu nekkoon xale dañoo dañoo dem julli ñu nuy seen yaay ñu nuy seen papa ñu nuy seen mag yi after ñu ñu toppa family arbeit liggéey family bi ñu toppa loolu noonu waaye ñu bari suñu ñëwee Europe bii nii dañoo bàyyi loolu yëpp suñu doon def fulla ak fayda bi yëpp dañ koo bàyyi ñu toppa yoon bu fuuy waaw mooy naan ak tux aku lu yàlla gën bañ si àdduna mooy njaalo. waaw. gis nga njaalo nag njaalo dafa dafa bokk loo xam ne lu gën a dangereux la. Mm-hmm. ku ko gom rek yow sa sa time amut no time booy àdduna bi amut amuloo time. maanaam fay rayé daal. <laughs> pak su gena a gena gën nak karama nag karama dem karama xaaral ma dem xaaral ma dem xaaral ma ok waaw maa ngi ñewat dama wara a dem ok maa ngi laa xaar xaastandiko waaw yow léegi continuer fi nga fi ngay wax non because community bi jigen ñi so len waxe ne njaaloo baaxul sorry soo ko waxee jigéen soo koy wax góor ñu bëri fa ñuy ne ñoom nga bëgg pour ñoom buñ njaaloo bi comme yow am jëkkër boo xam ne du njaaloo góor ñi uda uda uda jigéen yi man yëpp laay wax si général waaw ko xam ne mu ngee dégg o mu ngee dégg laaka bu ñoo wax ni mu ngi mu ngi jógee suñu suñu communauté bi suñu site léegi mun naa laa bàyyee lii nga wax ko bala maa dem léegi yow mun ngaa break down lu tax njaaloo baaxul xam nga nit léegole soo koy wax ne lii baaxul da koy break down lu tax baaxul léegi su fekkee da koy wax ne lii moo baax tam da koy waxal njëriñ lu nekk ci loolu maanaam nit ñi bu ñuy njaaloo lu lu tax ba waruñ koo def conséquence bi yi nga xam ne moom la xàndal ba tax waruñ koo def ak bu njaaloo lu baax li nga ne moom moo tax ba waruñoo njaaloo waxal si yow maa ngi ñëw Alô? Olá. Well, hello. What's happening? You're not talking. Yeah, I'm changing my, I'm taking off my things. Right now, I just come inside my house. Huh? I am taking off my things. Right now, I just come in. You're meant to be talking. I <laughs> like that because in the form oh my ok waa léegi xaaral ma start and then soo paree nga ñëw jërë ngeen jëf laygal leen ma vidéo bi te seddoo ko gars yi ñu am really important topic fii tey soo dañuy wax njaaloo maa ngi ñëw ah maa ngi ñëw damaa simeeku léegi laa dugg si ah, no problem waaw defar naa suma café Touba mu ngi nii mhm. ba pare xam naa suma notes gerte laa xam wax naa leen damay xool suma xëyee suma yaram wi lay wàññi so lii fa baax si yaram moo tudd prawns prawns ma am si ñeenti prawns ngi nii lii gerte la mooy gerte tubaab yooyu lu xem la nii rek ñu ko dee xolli di ko lekk an bi wool na naan ataaya waa naan ataaya wool na benn nii so léegi lii laa ñëw lekk si lii mooy nekk suma xañ parce que maanaam bu ma lekkee lii fi ne nii mais nekk ba si kanam ma reer reer bi maalo lay doo su ma ko reeree basaab laa toog togg ki démb basaab booba moom laa ne lekk naa ci démb lekk ci tey jeexut fi ne moom laay lekk sori lekk naa ci ki démb ak démb jeexut basaab booba moom laay tàngal lekk ko su ngoonee su fekkee xiifaan naa ma lekk saraas saraas you know ak xaal sa fridge ba ay fruits waaw close ba subaati buy mën naa am danaa ko lekk buy buy mën naa am danaa ko jaxase def ko ci ndox mu tàng ak lem waaw doo lekk ah pour nit ñi wàññi yaram laay waxal noonu tuuti di ñu ñu mel ni man loolu loolum do looy defar noonu man dama naan ataaya kay yaa ngi noos soo léegi xaaral ma ñëw commencé topic bi su ko defee yow nga continuer soo léegi gars yi ñuy waxtaanee mooy ku nekk xam na ne njaaloo baaxut you know wala jox tëdd ak nit si wàllu xar si wàllu quran baaxut loolu ku ne xam na ko non nekkul si wàllu alxuraan rek de xam nga njaaloo lu moo def dafaa dog fan nit fay gàttal fan dafay gàttal fan ñu bari nag ñoo ko xamut nag ah man loo xamu ko woon sax ku mun a téye boppam jabaram woo xaar jëkkëram kooku moo gën a wér gu yaram moo gën a gudda fan koo gis. Hmm. man tey tey alhamdulilah maa ngi sant yàlla maa ngi forty years waaye ku ma ko wax doo ko xam si tubaab yi fu ma dëkk fii nii jaaman su ma génn gars yi dañu ma ne xanaa twenty eight years nga am xanaa yaa ngi twenty seven man ne déedéet maa ngi forty years maa ngi juddoo nineteen eighty two. ah ngir lan dama dama mun suma yaram dama mun suma boppa waaw oh. si lu ma toppa loolu laa gëm dama ñëw ut si xaalis maay liggéey di faj suma soxla di teral samay waa kër caaxaan def bopp nit nga def sa bopp nit mooy def bopp nit bi suma boppa yaaram kay <laughs> su ma amul soxla su si biti maa suma kër mm-hmm. waaye mu bëgg ñu waxtaanee mooy mm-hmm. soo téyee sa bopp njëriñ li soo respecté sa bopp in general duun mbiri mm-hmm. te dëgg nit rek waaye nga respect sa bopp in general respect sa yaram wi in general di moytu yu bon yu bëri yi li nga tey xam nga lu ma gis ci xibaar yi tey xibaar yi tubaab bi xam nga lu ñu bind tey Royal Mail mu ngi Royal Mail soo ko seetee dañ ko gis benn jigéen tubaab boo xam ne baax deexi jëkkëram mm-hmm. xam nga tuba yeneen tubaab yi ak yeneen nit ñi rek ndeysaan lu leen neex lañ dee def ndeysaan fa fa fa baax deexi jëkkëram mu waxante jëkkëram pour pour pour wut beneen jigéen xam nga fa am tubaab yoo xam ne ak yeneen ñoo xam ne fañ dee bëgg a def loolu ñoom ñaari jigéen si genn kenn góor gi léegi mu mu wax ko jëkkër ji ba jëkkër ji nangu xaw xaw ma jëkkër ji ko wax na xaw moo ko wax jëkkër ji ne ko suma baax dee nangam laa bëgg ñun ñett nga wut keneen koo xam ne moo ñuy ñetteel ñu ne waa ñu wut keneen ku leen ñetteel ba pare gannaaw gi nag moom mu ne bëggatul jëkkër ja moom jigéen la bëgg moom lesbian la mu ne moom léegi moom xam na ne lesbian la ndekete hoo moom lesbian la moom xamu ko woon waaye fi mu ne bi mu demee jigéen ak jigéen ak jëkkër ja ñoom ñett fi mu ne bëggatul jëkkër jigéen ja la bëgg ñu bind leen ca xibaar ba ñu ne fàtt adduna bi yaa ngi barki salaatu faatiha xibaar baa nga ne la demal royal mail danga ko gis nataalam jigéen jaa nga ne pat mu lëng jigéen ja taxaw lu lu lu yonent bi waxoon yëpp lu yonent bi waxoon yëpp misaal bi yëpp gi nga xam léegi man comment naa sax mu bind ma ne li tax may wax ne kuy mos na nga oytu li ngay mos xadduna sii léegi ku def loo gis mos gisuma la dégg nga. it's crazy. loolu dafa daw yaram te yéeme tamit. daw yaram te yéeme la def bësal leen ma vidéo bi soo léegi dama bëgg nit ñi xam mooy yow soo nga bee sa yaram wi nga oytu muy ay drogue ay sàngara even tux cigarette sax muy lu bon lu ne soo oytoo njëriñ li si ne la nit ñi war a xam. maa foog ne di ñu xamuñ njëriñ li koy def. waaw lan moo gën a neex lan moo gën a neex nga lekk ba suur nga naan ndox ba ooraay nga am sa jabar boo bugganteel ngeen naka seen jàmm lan moo ko gën waaw jigéen ak jigéen loolu fan la mooy mujj góor ak góor fan la mooy mujj. I don't even know. soo gisee loolu soo gisee loolu noonu di xàpp rek xamal bi mu ngi ñëw. mungi ago di time jeexaayam no waaw mm-hmm. ah, because lu ñu wax ne yonent bi dafa tëdda ñaari ñaari junni at sallallahu alayhi wa sallam léegi nag tëdda na junni at ak juróomi juróom juróom benn juróom ñaari at léegi mu ngi mel ni mu des ñetti téeméeri at pour ñu tàggu tàggoo si àdduna bi. Ah. <laughs> message yu mu waxoon yëpp message yooyu noonu moo nekk di di dox fu mu nekk nii. yow soo soo gisee loolu noonu xàppu nu de xamal dafa war a amoon dafa war a am. Hmm? allo. xaaral ma seetlu ci kaw nii Aha, 박수. Quel début? Allô. Allô. Allô. Mm. Ça va? Ça va bien. ci loo nekk ndaga foofu. jàmbare xanaa damay xañ si xañ laa ne. yaa ñaa. lii sa benn xaw ma xañ xaw ma ndékki. a ah, def na da nga ndékki da ngay ndékki. maanaam ndékki la waaye xañ na it parce que ñaari waxtu mooy jot si waaye suba ba tey lekkagum. ah. Hmm. même fii presque añ la rek ñun tamit instant bi ñoo ngi añ. dans naay foo nekk noonu. ici à Sénégal. Hmm? Sénégal Touba. kon kay yaa ngi bu neex. waaw maa ngi waaj de. di ko mhm. mais sa ay vidéo daf ma neex trop. oh thank you jërëjëf waay. toujours dama lay bëgg quoi dama seetaan vidéo dama ay vues yu bëri. thank you jërëjëf. kon ok merci. jërëjëf waay. yal na yàlla def jàmm. ok merci. yàlla na léegi nag góor bi mujjee léegi ah. góor bi fan la mujjee moom moo ah kooku xam naa dañuy jeexal. ndax fu ñuy mujjee. déedéet. moom kay lan moo nekk garab bi rek musu jabar bi koot. jël koot di. jël koot kay. man naa bëgg jigéen ma def si moom ba ñu ba ñu seey ñu war a def suñu parti munuma uti beneen jigéen ma dem uti beneen jigéen ba pare mu ne ma ne dafa def ma bàyyi topp a jigéen boobu. xaw ma daal jigéen bi moo ko moo ko. loolu mun a nekk loolu mun a nekk di. déedéet am góor gi moo ko wax ne xaw jigéen ñi yéen tubaab yi yéen tubaab yi dañ dee bugg a def wala yeneen nit ñi nit yi bitim réew dañ dee bugg a def lu bon ci seen baax dee. Mhm. dañ dee wane suma baax dee nangam boo xam bu yàgg naa koo bëgg a def te masuma koo def si moom laa bëgg a def sa nangam booba lu bon la dee nekk mhm. <laughs> so mën naa am te yeneen tubaab yi góor yi wala nit yi bitim réew yi nga xam ne dañ yàqu te taxay dal leen wala ñu bëgg a taraay lu yàqu dañ dee wax ne dañ koy wax jëkkër ji wala jabar ji su ko defee ñoom ñaar yëpp ñu bokk defandoor ko moo gën kenn ki yolleeku dem def ko parce que su waa mu ngi ciit su waa mu ngi njaaloo léegi nuñ koy gisee mooy ñun ñaar suñu àndee def ko kenn du mere kenn bañ mhm. koy wax de ba d'accord si ànd def ko waaw tubaab surtout tubaab tubaab loolu lay mel mhm. tubaab loolu lay def ànd ne fàtt di njaaloo ñoom ñoom ñoom ñoom ñaar ànd te njaaloo ma di ko def mhm. <laughs> loolu tubaab ba koy def ne fàtt di ko def moo dafa daw dafa daw yaram te yéeme tamit tubaab yàgg na ñoo def loolu du tey de tubaab yii leen di toppandoor fa xam fooy xem tubaab yii leen di toppandoor fa xam fooy xem man ba ma ko xamee laa xam jàmm waaye tubaab yii ku leen di toppandoor ta xamoo xemukaay hee tubaab yii la wala tubaab yi xamuñu xemukaay tubaab yii rek kon ñi ta jaxasoo na waaye xam nga xam nga zeena mu nekk problème bi ñun africain ñun africain suñ ñëwee fii nii keena mm-hmm. mooy gom si lu ok foo jóge ak loo fekk keena keena mooy gom loolu noonu ah waaw ñu nit ku koy mm-hmm. loolu nag moo jarut nag di toppandoo tubaab yi one hundred 100000 pound 100000 pound Bumza mu la jaral nga jaay sa o nga o nga san o nga cenca jiko te gi nga tubaab yi nga bàyyi lu nga doon nga toppa leneen loo xam ne fe fe fekkeewuloo ko fekkuloo ko sa sa mbokk yi tamit ñu ngi def exactly te gi nga tubaab yi ñoom ñu si bëri mm-hmm. bugguñ ñu kon nag so len di toppandoo nga toppandoo lu bax kon way di sen seen di jikko yu hees yi so ko ñoom seen do jaruñ fa mun nekati bo demu afrika sax fi sax do fi mën xam jamm sa yaram yi boko ko do xam jamm <laughs> yaram boko ko yu bon ak yu xamul xemukaay di abuse diko lu ne nga def ko diko abuse ah man de man santana yalla nu ma mel Afrique loolu laa mel ba léegi weccewu ma dara suma jiko waaw. <laughs> that's nice. bu baax a baax billahi wallahi taala sant naa bu baax a baax. Mm-hmm. time yi du ma nangu mu raw ma. suma soxla suma soxla loolu laa xam. waaw ku ma woon soxlaam ma dox ma woon soxlaam ma yoon. Mm-hmm. waaw nit ki bala ngaa ñëw suma kër danga maa kool doo jógee rek nga ñëw nga laal suma bel bi te non non non ñu ngi si beneen jamono tamit. that's beautiful. xaaduma loolu rek la fa xam gerte bu rote woon laay waaye gisuma ko. xaaduma noonu rek la gëm sa bopp def jàmm di ko wax. leen boo gëmu sa bopp sa si tamit mhm. ñun africain yi luñ jógee africa noonu luñ mhm. fekk suñu waajur yi ñu ngey def dañ mhm. continuer di def loolu noonu mooy lan sa dëkkandoor nekk na christian nekk na hindu nekk na julit yow ko won ko bu baax rek waaw waaw mm. ah, moom fu la woon a bon sax yow woon ko ne ñun xamuñ jikko yu bon waaw jàmm nga fanaan am na yenn africain yoo xam ne ah lay suñ deexoo seen suñ suñ deexee seen seen dëkkandoori tubaab yi dinañ layoog ñoom na tubaab yi koy defit waaye xam na africain yoo xam ne fa ñu xam tubaab boo xam ne dëkkandoor la waaye xëy na tubaab bi buggu ñu ñun comme ça man tubaab bi ma dëkkal nii fa am saas man ma dëkk bi bu doon keneen la man taax bu ma nekk nii si ron tubaab bu fi nekk bu guddi ku ñëw moom moom te su ma néeg bi nu bindoo soo tëbee wala nga fecc wala nga def any noise fa koy dégg si ceiling bi ceiling bi eh, tabax bi baaxul xam nga tabaxi tubaab yi rek tabaxi bitim rek. waaw daf koo dégg daf koo dégg si suuf. waaw kaw ma jàmm ne de waaye Angleterre fi seen tabax yi noonu la xam na looy li fi tabax yu bëri noonu la loo def rek ki si ron fa lay dégg. moom bugg nit ku ñuul waaye dafa am saas man su fekkoon beneen yeneen nit ku ñuul yi su fekkee xam nañ tubaab yu mel noonu ñoom dañ dee nekk di ñaawal tubaab bi waaw ba pare ñoom dañ dee nekk di def parti saa yu ne ñu ngi parti saa yu ne mm-hmm. baaf xale yi baaf dee xat bu ne ñu ngi baaf dee xat bu ne ñu ngi parti xat bu ne ñu ngi barbecue parti nit ñi ñëw ñuy play musique di fecc di yëngatu di def noise su ne boobu waxee nga ne ko su ma yoon néew si kii dafa réussir na nangam ndeyam su ma yoon néew si loolu xàq la itam de. loolu àq la waaye moom la wone moom buguta yow yaa won man nit yi yëpp benn lañ si man. Hmm. sa dëkkandoor su mu la bañee yow yaa wone man man bañuma kenn ñëpp yi nit yi yëpp ñoo em si man saa yoo ko gisee nga nuyu ko soo xamee lu mu gën a bugga sax nga jënd loolu nga ñëw nga meeku ngir yàlla ak yonent bi yàlla moo laa fay moom si boppam dafa dem ba toog mu xool si xo si xelam ne si xolam ne ah suma dëkkandoor bi ka ci kaw de kii ku baax la de. déedéet du ko nangu man fii dama de bake cake nga man mun naa bake well it's not cake it's banana bread but it's like cake dama ko de bake. Mm-hmm. wala su ma toggee ceeb ni si ceeb yàpp wala ganaar ni su bëree dama de yekkal gaay time boppi ñooy xees. waaw dama ko daan yekkal jëkkëram jëkkëram moog ma a xem borom yaram la sax moog mën a xem bugg lekk how do you cook this dilek why jigéen more one? look we are not friends. I don't want you to be bringing food here we are not friend <laughs> jigéen ji all ko wax live <laughs> thank you jërëjëf si live bi nga seedoo Fatima ba seen live bi ngir yàlla ngeen like ko dafa fii Hmm. ah ah dafa fiir xanaa Come. moom <laughs> jëkkëram moo mag ñooñu ay màggat lañ ñoo lu ma leen di jëkkër jooj noonu su doon gune sax man melu ma noonu man jëkkëri jàmbur du ma si dee dugalanteeg moom I don't think ne fiir la jos dafa laayigul nit ku ñëw jigéen ji góor gi sax laayigul nit ku ñëw waaye xam naa lekk yu neex yee ta parce que bu ma fi ñëwee xeet lañ ma ko wax yi beneen nébu bu ne si ron moo ma ko wax ah, moo tam tubaab la waaye ku baax la mu ne ma ne ah yaa ngi dem si kaw foofu noonu am am sorry parce que sa dëkkandoor yooyu Mm. mu ne waaye na nga oytu rek bu bul xam ak ñoom benn problème oytu leen mm. mu ne mooy ñu nekk sa ron noonu li gën a am solo rek yow kay moom saa yoo leen gisee nuyu leen nga baax si ñoom nga toppa sa soola xale yi tamit nga ne leen xam leen léegi ñooñu dañ toxu seen doom ñoo fi moo fi nekk seen doom bi ñu euh, jaaykat la waaw bi léegi ni ñaa ngi dugg di génn seen doom ji fay jaay maa ngi ragal ah. ba ñuy ñëw léegoo leeg suma bunt bi di jaawale tubaab yi jënd li ñuy jaay fa ñuy ñëw fëgg sama bunt bi di jaawale sama bunt bi a ñoom seen bos. waaw loolu noonu yow loolu bu ko toppatoo sax. eh a fa raglu maa tiit a ragal man kenn rek a gune fii ñeme dama di tiit ba. waaw ñu ne. guddi ma tëddee du ma dee mën a nelaw bu baax sax di seet. ñu ne ñu ne ñu ne ku def lu bon oo ku ku ya ku yaaxa dara moom mooy ragal. déedéet. ñaari tubaab ñëw nañ fi ñaari yoon ay góor jonki looking tubaab yu mel ni bandi different time different date ñëw fëgg su ma ubbee ñu ne ah sorry man foog naa rong bunt bi la ba pare nga gis leen ñu dem fëgg buntam bi kooku bi ba pare nit ñi leen di ñuy dugg di génn di dugg di génn di ñëw seen bopp dañuy tux a tux ba néeg bi su ma néeg sax fay xëy taay man su ma néeg fay xëy taay bi jógee seen néeg moom mooy dugg su ma néeg sëxër xanaa sax bu ndaw yi amul caméra. déedéet. waaw loolu moom sax na sax ñu ngi ci biir ñoom suñu foggee yow jaayiloo tey jaayiloo suba bu leen ubbil. waaw loolu laa wax xale yi mujj gi léegi ku fëgg duñuy ubbi. because of what for your safety no. ku fëgg duñuy ubbi. waaw loolu nga war def ba pare ñaan naa la ngay góorgóorlu si julli ah daw dee julli man de wala ma ami holof challenge bi sax la commencé won ami holof challenge bi daf ma dimbalé ci si julli waxtu yi hmm waaye dama dee julli oh. man ifin time bu waxane dama daan gije julli sax ba tay dama daan julli motax duma motax man musuma buku ay lettu mees yu bari ni wala ay def ay ay ay nail polish ni. because da day gisee time bu time bu ma tëbee pour julli rek du mëna julli moy time bu nga xam dama daan tebe tebe rek julli and then ma tok tok duma julli long time ago you know Oh yàgg waaye man man man sa toogaay ñoo ma dee neex na <laughs> toog yi de. de man dama bëgg a de. ah. lu mel ni dama daa ganaar. that's nice ah góor bu baax de te bëgg lekk jabaram war na koo toogal. oh. oh lekki lekki poli ni wax ne lekkin futti. ngay def si diwtiir. waaw loolu foog naa mën naa koo toog waaye mosuma koo toog nag. waaw. Ah. Ami Ami time jot na. waaw I know. ten o'clock. ok waaw jërëjëf ah. waaw ba si kanam. nekkal si jaama Diop. see ya. Yus. man duma fay caméra bi di dem di julli ji right de. dinaa julli tàkkusaan mu tusbaar mun nga koo julli fii ba tàkkusaan du ma dee fay caméra di dem julli xam na nit ñi dee def loolu de bot xam na ñoo xam ne dañ jullite waaye xam na ñoo xam ne dañ koy def jos bi ko dañ hypocrite di jaay nit ñi ne ñoom dañ yu néew xaaral ma fay live bi te dem julli loolu taxul nga nekk julli bu baax atool <laughs> réew ma de jàpp si yeneen nit ñi si community bi <laughs> I'm not saying yow waxuma yow sax I'm talking about host yi nit ñi nga xam ne live video So julli jotee ñu naan xaaral ma fay live bi te dem julli te ñëwaat <laughs> that's good but it's not like you know yow loolu dafay tax nga nekk julli bu baax and keneen ki nga xam ne dafay julli after live bi ko moo bon or whatever xam na ni ñoo xam ne dañ ngay ñëw di comment julli jot na ngay live dama julli <laughs> like man su ma taggee sama live bi léegi dem julli ñëwaat loolu du tax ne yow mi nga xam ne jullee goo ngay xaar ba léegi nga julli yaa man maa la gën no but soo gisee ma ne nañ leen di julli wax ci juróom ci surtout ami wolof challenge bi <laughs> mooy <laughs> nit ñi nga xam ne fay stress ba duñ julli man loolu defoon naa ko ay xat julli wu ma ngir stress man wax naa leen man du ma leen dina bu suma life <laughs> man suma is very easy ay xat julli wu ma moom surtout bu ma ñëwee fii tey ma nekkee Gambie yees dama daan julli waaye bu ma ñëwee fii waaye Gambie sax daanuma julli lay su waxtu jotee rek nga tëb kirib képp kirib képp su ma whole life ma geegu ma noonu loolu mooy dëgg yi su ma yaay nag daf dee def noonu waaye ñun duñ daan def noonu waaye ñu daan forcé you know soo def ñu daan su ma yaay dafa easy going moom laa ndoonu dafa neex deret tamit so um, so ñun dañ mag si noonu kenn duñu forcé julli te luñ xam si yàlla bëriwul because dañ xamoon ustaas bu bonta soxot te mën a dóore mm-hmm. ustax ba ay bekke la xamee woon benn tànkam bi baaxul tay soox waaye ustax boobu ak soxot soxot ni ngaana gu lekk ci xët ñun marché ngelaw la ustax boobu ne woon fañ fa demoon jàngi yàggul sax loolu yàgg na mooy time bu ma mayoon paa boobu noonu ma nekkoon si kër gi yi noonu paa di ma xaar noonu pour ñu jox ma ko noonu time boobu noonu fukki at sax xaw ma ko hmm. suñ demee sa sa sa ustax boobu man ak suma ñaari mag yi ustax di ñu dóor te suma mag bi gaañu toomaayi faatu moom ci puus-puus la newoon sax ton a dox de waaye ko koy dóor ba tey ak lim toog ci puus-puus yëpp naan lu tax mënuñoo jàng saar nangam lu tax xamuñ nangam loolu de la ñuy dóoree te ñun fa ñëw pour jàng mu ne nañ ko xam baay foofu mbala mu rey ñu te judduguñ mucc gi nag saa wu ñëbee di jooy suñ jeex suñ yaram yëpp dagg yar bi pa comme yar yi ñuy dooree fas yooyu la faa boo xamee woon Afrique fay soxot de te paa boobu soo gisee mu mel noon moom ci boppam ca daara ja lañ ko defee noonu moo tax ma ni leen wax ne ngeen bas soxot ji daara yéeg yëpp ngeen di bas soxot ji te lu nit wax ngeen diree ko naan bul wax loolu ku ko waxul lu muy wax paa ba noona boo gisee ñu suuli ko te ko daan fay five dalasi five dalasi weer bu ne ndax xaw a fifteen dalasi foog naa five dalasi la woon loolu yaa gën a five dalasi la soxot ta bon paa bu gàtt te ñuul ni te tuuti xamee bekkee di soox marché ngelaw loolu ñu bari xam nañ ko ku dëkk Serekunda la doon ko dana xam paa boobu ko daan jàngale marché ngelaw sa doon guy ga xaw ndaw paa bu bon ta soxor te mën a dóore paa booba jàngaluñ ñu dara faatiya sax mënuñu ko woon a jàngal bu correct ngir soxor yàgguñ fa si la suma moo ñu jàngal suma yaay moo xam nga fa jàngal Alxuraan waaw waaye moom it teel a sëy mooy problème sax waaye nu ko kay parce que suma yaay dafa neexel waaye dafa jàngal fa jàng ba tari waaye fa gaaw a tari something like that and then mu sey ndax suma yaay dafa teel a sëy moom it ñu jàngal lu xam jàngal ñu kulaw si naa naasi kulaw si borobi fallaxee kul wallaahu ak yooyu booleeg fatiha bi fa bi papa bi fa ñu doon jàngal fatiha waaye leerutoon set setutoon sax suma yaay jàngal ñu ko set mu jéggi si la ma suma yaay jàngal ay tur kursi boo mag laa sax soo yooyu laa dee xamee di ko jullee ñu noo ak a maneej waaye community bi fa am ay nafiqit mhm. nit ñi fa ñuy focus yi ñàkk fayda <laughs> waxuma ne julli fa ñàkk fayda <laughs> waxum it's not like over and stuff moo tax may wax it's just like community bi for example dañ dee wax ne waa nit ñi nañ war a lifin uh, muuru julli you know subhanallah taxawal muuru sax and stuff like this waaye du ñuy wax yeneen yi di nga xam ne mooy yàq community bi jikko ju bon ji sëy yu bon yi ne ci communauté bi mooy yàq communauté bi nit ñi duñ koy wax naafeq meeg soxon meeg dóori yu xupp yi ne ci communauté bi moo yàq communauté bi nit ñëpp a ngi xamee métit bay karkari ndig dóori yu xupp yi nit ñi dóor seen doom yi te nit ñi fañ koy jëlale na fetek nag ne fetek di wax ay kaya kaya naan dimb gaal guy gaal ndaqaar gële de bu taxawee woon na <laughs> dana baax man nag communauté bi su may wax yëpp laay wax mbala ma ba ko mhm. yëpp laay wax mbala ma ba ko am waxam naa fekk ak waxam oytu li ngay wax because nanga nanga xalaatuma ko waaye lu tax yow doo mën a wax yëpp mooy yow yi ngay def doo ko mën a wax su fekkee ne yow sa bopp yaa ngi ne di dóor sa doom yi for exemple aka def yu soxot yi nga xam ne moom mooy problème communauté bi noo ciy mën a diree koo di wax allo Xadi Xadi <laughs> Sira community bi <laughs> princess ak Adama Adam sorry community bi soo gisee mu sibbutoo nii mooy nit ñi fa ñuy ne di living di focus ci yu ñàkk fayda it's focus yu ñàkk fayda all the time nit ñi seen seen mind bi sax moo miin seen mind bi moo miin di daw seen problème waaye di déglu problème yi jàmbur wala déglu problème yi nit wala dugg si problème yi nit wala def leneen te daw yoo sa problème for exemple te su ma amoon kaa ne nit dafa ñëw naa nangama nangam laa dund nangama nangam laa dund su ma jëkkër nii la ma def wala nangam nangam si saa si nga gi nii ñëpp seddoo vidéo bi diw demal tiktok mu ngi toj benn jigéen mu fay wax soo déggee lu dund diw demal tiktok mu ngi toj amee wala mu ngi toj xam na ko fa dugg di wax nangam xanaa kii du diw la fa mel ni diw la de naa baatam moom moo nekk di wax problème bi tiktok ni. oh my god ni ñi léegi amatuñ sutura lii lan la kaay seetaan ko loolu lay seet nii ñëpp riit ñëw waaye soo ñëwee de ñëw leen ñu def faj suñ bopp ñëw leen ñu def lii ñëw leen ñu def lii pour suñu àdduna gën baax ñu kenn ku wax rek amul lu muy wax amul lu muy def amul liggéey <laughs> so community bi noonu la may waaye man xam naa community bi dama si tërkiis <laughs> community bi ma xam seen jikko ma tërkiis si faalewuma leen sax luñ feebar feebar te sibbutu sibbutu ma ñëw ne jaww jàkkaarloog ñoom <laughs> ne leen fu mu jaar ñu faju ñu rob suy benn nit mooy fajong man sax maa ngi koy dugg léegi si la so it's like that community bi soo gisee mu mel nii community bi it's crazy waa yàlla baax na hello Ami hello Sira na def fine thank you naka waaye fine community bi kañ waxuma la fa sibitu de waaye dañ ko fajaroo bi <laughs> fa sibbutoo sibbutu waaye dal ko sibbutu de community bi ah doy na waar de ñu dunda ba génn si de métti de waaye nag ana yow yow yàlla baax na mm-hmm. mm-hmm. naa seetaan sa vidéo yi te wax dëgg ni yàlla am na solo torop torop torop ndee ee nit ñi moom thank dang dee ee torop dama daan bugg a dugga waaye fekk aw woon enough uh, followers moo tax waaw waaye li nga wax yëpp dëgg la ñun mi jógee Afrique nii li nga wax yëpp dëgg la eh, de wallaahi am na ñu bari dunda nañ ko waaye duñ ko ñeme ñëw wax ñu ko mun a waxee fen waaye yow wax dëgg neex yàlla maa ngi koy man ngi laa encourage sa laay bi ñu dee def nii am na solo torop torop torop dama ko dee seetaan torop all the time oh thank you so mm-hmm. much mm-hmm. mm-hmm. maa laa encourage nga continue si ak about exercise bi tamit is very good Mm-hmm. gëj naa koo def de dees ma waaw <laughs> loolu laa man tam maa ngi si de man euh, last euh, last last year Mm. laa constate woon because year before last after stress bu bari bi so du ma daan def dara dama daan toog rek lekka toog lekka toog ma gis nag ma am yaram dem be hundred kilos oh, <laughs> oh. su ma doxee tuddi soona mm, ma doxee tuddi soona ma ne déedéet lii xaaral ma forces ma boppa rek may exercise soo soo lifinut sax soo amul time pour dem si gym bi sax mun ngaa dox dox kilos yu bari mm-hmm. xam looy lekka xam waaw mm-hmm. waaw man tam si laa def some a intermittent fasting bi nga wax ni yëpp maa ko def mm-hmm. man once laa dee lekk si dee bi rek beautiful you look nice mm-hmm. waaw thank you very much once laa dee si dee bi soo ma amee dem si gym waaye gis naa improvement bi suma kilo si dem na down suma biir bi wàcc naa it's very good mm-hmm, am nga jigéen ak góor nekkuñ benn jigéen moom soo demee ba am doom rek soo tekkee sa bopp rek di nga di nga am ay feebar yu bari waaye soo tekkee sa boo di train di train nit ñi soo waxee ni ñi nag fonkuñ train comme ñu jógee si African community bi nii. fonkuñ train de. fonkuñ ko. fonkuñ ko noonu waaye dañ ko war a fonk na parce que baax na trop. fonkuñ ko. Mm-hmm, baax na soo munta daw nga dem si soo munta dem si jëm bi ngay dox dox tamit is very good nga yëngatu daal bañ a toog benn place xam looy lekka. Mm-hmm. Mm-hmm, it's very good it's very good. It's hit for bahtara faita nga ham fan gudu faita exactly. happy mm -hmm. faita nggak rafet nga look young faita nga sawar surtout bo xamé jëkkeer nga mëna sawar yi wa gis nga ko gis nga limi miskin yi ni even sa skin bi lu ñoo kadi di wax naan laala jëlal bi defal krim bi facial cream ni ani ani kis nggak sooy train di leka healthy di naan ndox bu bari niiduloo all these things pour nggak def ko tey rek dafay naaj waaw man de ma dee laaj lan nga dee diwoo lan nga la man coconut oil rek laa dee diwoo moom laa dee diwoo nii duma any other stuff maa ngi train maa ngi maa ngi lekk healthy exactly because ah, waaw am na yenn crème ñoo dee wax diwool lii diwool lii daf skin bi baaxut mm-hmm, dafa yaa sa skin ak diw yi waaw daf lay joxe feebar nag nit ñu bari xamuñ ko dañoo toog rek naan skin bi kii diw bi lay diwoo fekk du loolu su nga sooy train nii exercise di lekk healthy vegetables nii you are just good to go. It's lot of good. fruit and vegetable and lot of water. Mm-hmm, mm-hmm. It's very good. It's very good. loolu mom. loolu moo nekk digga bi li nga wax moom man mom kontaan naa sa vidéo yi torop wax digga ne yaara you're welcome mm-hmm, <laughs> thank mm-hmm. you so much just just uh, waa just keep it up just keep it up because gori mom so sooy wax seen affaire mom du jeex mom moo tax man du ma wolof <laughs> I know right góor ñi rek laa mën a defal vidéo nag. tey góor ñi moo tax ñu doon dugg si benn Sénégal ñu naan jigéen ñi man ma xuloo gaay foofu même sax mais ne loolu du am de jigéen ñi daal moom ñu ngi try seen level ba especially ñu jigéen ñi Afrique dañ dee soona trop torop torop. ñoom xam nga jigéen yuñ dee taseel ba tax ñu dee wax ne jigéen ñi baaxuñ. mooy yeneen mm-hmm. jigéen yi nga xam ne nobbuñ leen ñoom duñ dee ku leen nopp. déedéet <laughs> ñoom nice rek waaw waaye jigéen boo xam ne nopp na leen. ñoom ñu mm-hmm. nopp jigéen bi te ñoom ñu def jàmm rek. most mm-hmm. likely société bi dafay dox waaw dafa mm. dom moslage hore ami yiramande léegi ama tudde yiramande yiramande léegi mm. jafe na jafe na pour nga gis ku la bugga mu yiram la jafe na torop torop torop bilahi te léegi majority bi liñ de def ne gis nit rek xamuloo ko xamuloo jikkoom nga dugga si dem ba si kanam nga door a xam man su ma toogee ma gis nit ne kii dama ko bugga dama ko bugga ni nii ma ne ko da nga war a def nanka ben ko xam because nit soo ko xamul rek doo ko mun a bugga ñu nuñ dee teg mm. buggante ak ak buggante lum neega dafa ute torop waaw dafa utee moo tax waaw soo soo si amee expérience nga dem ba si kanam di nga xam lu baax digga digga ci li ñoo wax loof loof loof it's not just koo gis tey nii internet bi nga gis ko mu ngi mu ngi nice rek nga bugg ko kii dama ko bugga dama ko bugga déedéet xaj na mën nga koo like waaye bugga bu tax nit yi di wax loof loolu noonu dañ si war a jàngaat bu baax a baax a baax moo tax suñu marriage yu bari daf dee fiir mm-hmm. because waa yërëmande bi daf dee des loolu daf dee daf dee daf dee indi problème bu bari sax moo tax léegi sëy because love bi foog mm-hmm. naa ne nit love bi like feeling bi waaw dafa dee nekka de like mm-hmm. feeling bi waaye feeling bi rek is not enough non nit ki jikkoom moom mm-hmm. kan la mm-hmm. ak yow num lay def loolu mooy tax loof bi mën a dox exactly feeling bi rek du tax mu dox non feeling bi rek du dee dox ñun nit ku foog naa loolu lañ xamul tamit waaw dañ mm-hmm. dañ ko loolu na dañ ko war a dañ si war a bàyyi xel bu baax because loolu noonu moo tax sëy yi bari léegi du dee yaaga parce que noo ko waxee feeling bi dafa dee nekk mi bi nga gis ko she is very attractive nga ne kii la bugga kii laa bugga nga dikkaa moom am na jikko mooy jànga dogguma la foofu noonu xaaral ma wax foofu tuuti foogaloo ne mm-hmm. soo gisee sëy sëy yu bari dee gaaw a tas tam dama dee gis nit ñi di def different vidéo lu tax sëy yi di tas ñeneen ñi di mm-hmm. wax ñeneen ñi dañ dee wax yoo xam ne make na mm-hmm. sense dëgg la waaye yeneen dañ dee wax loo xam ne is nonsense because surtout yeneen góor yi xamuñ si dara duñ jigéen duñ jigéen bu sëy sëyaat wala jigéen boo xam ne expérience na loolu wala surtout ñi nga xam ne musu ñoo sëy sax moom sëy musu ñoo tas sëy wala musu ñoo sëy ba tas mbala seen sëy bi tasut Mm-hmm. te ñuy wax mel ni ñoo si xam dara anyway kenn ku nekk sa sëy lu ko tas dafa wuute ak ban façon sëy nga nekkoon mm-hmm. bot foog naa ne ñun nit su ñun nit ku ñuul suñu sëy mm-hmm. soo gisee muy tas lu bëri right now surtout ñun nit ku ñuul yi Gambia Sénégal foog naa ne lu ko waral mooy like ñun soo gisee du ñuy mën a muñ yenn muñ yi mooy ñun dañ dee dañ gis ne suñ góor yu bëri ah ñoom muñ bi muñ bi dañ ko dee dañ ko dee dañ ko dee uh, dañ ko dee xam nga sëy ak xaduna si boppam da ngay muñ sa xaduna si mhm. boppam soo amul jëkkër xamoo jabar sax na mhm. ngay muñ parce que xaduna mhm. dafa ànd ak ay coono xaduna dafa ànd man mii sax su ma nekkutoon di muñ ko doon nekkuma fii wala maa ngi beneen life wala di nga muñ di nga muñal sa famille di nga muñal sa ay doom àdduna bi yooyu muñ la waa ak jos muñ coono xaduna rek xam jom lu métti métti nga bañ a giboo bañ def loo war a def loolu yëpp muñ rek la dëgg la waaye foog naa ni ñun soo gisee ñun jigéen ñi suñ muñee suma maas yi suñ muñee tuuti dem ba ci kanam di muñ nga ngay gën a def li ngay def ñuy muñ nga bañ a wecc soo gisee suma maas yi di daw mooy mm-hmm. ah, ñun dañ gis ne yéen ñun suñ communauté bi ñu bëri góor ñi mm-hmm. Mm-hmm. dañ dee jël muñ bi def di ko abuse muñ waaye su suki weesoon bu métti ñëwee ngeen muñ ko loolu passé ngeen xamaat jàmm waaye muñ duut loo xam ne dafa war a continuer di def lu ngay def nit ki di muñ ba abada te du mos a am jàmm Mm-hmm. loolu dëgg la abuse la jàng what do you think about mm. loolu abuse la loolu abuse la I went through it I went through it uh, because da ngaa gis ne muñ nekkul ne jigéen bi rek moo war a muñ mm-hmm. waaye ñun suñ community ñun ñun den jël ne jigéen rek moo mun a muñ because da ngaa gis suñ soo su sëy amee sax soo demee nga muñ de loolu rek li ndaw waaye duñ wax góor bi rek muñal ko waaw because both side la war a nekka man su ma amee foofu yàlla ku la yàlla wax góor ne ko muñal ko waaye xam nga naka lañ ko dee waxee jigéen hmm. matut waaw fekk mut nañ de jigéen matut ko parce que jigéen matut léegi suñ la wanee ne kii matut yow lu matut noo koy respecté ayo <laughs> non du la takkee du la respecté te du la déglu da nga wasa da wax ne yow matoo yow matoo yow matoo mm-hmm. non uh, ami xoolal da nga am yow sa jigéen yow jigéen bi si boppam sax danga hmm. am danga mën advice sa jëkkër sa wala ngeen wala wala nga ngay wax lu important sa ñu ne ah ki jigen la waxi jigen la rek comme wax bi duñ ko dee téye wax bo xamné dafa serious wala dafa important I know te gis nga waaw sëy foog ngeen mëna fok fok ki di wax ki tamit di wax ngeen mëna understand ngeen come together ngeen mëna understand waaye soo ne ki jigen la ah waxi jigen la mm-hmm. waa di underrate bi tamit is too much moo tax ñu bari nu ñu dee classé as jigen, dafa mel te jigen. Eh, eh, man mun naa wane nekk lu ñoo wax ne mutul mutul mut nañ kay mut nañ bu baax a baax a baax am nañ xel dañ dee xalaat salaamaaleykum mut nañ bi da xaandi ko wax <laughs> na naa leen yéen ñëpp nañ la fay mobile nga dama ci bëgg a sànni tuuti rek. waaw ñu laa déglu. yaay woy léegi góor ñi sëyituñ jigéen ñi sëyituñ. waaw. Hmm. ah nga lu ko waral ñuy sëy de lu ko waral. waaw ah jigéen ñu bëri jigéen ñi bu dee xonte boo gisee yónnante bi danaa la wax na su ngeen di bëgg bëgg leen ndànk parce que waa habit habit bëgg xaw nan maasaan tëkkoon a xadan xadawu ko mu ne bu dee 100 pour cent da ngay bëgg 50 pour cent bàyyi 50 pour cent ndax ëllëg. ku nga mm-hmm. ku la jaraloon ku nga bëggoon ba jaral la tey la sa bakkan bi ëllëg ko mën naa walbatu ngeen nekk ay noon parce que léegi jigéen ñi dañu xeeb tey yàkkamti suba fàtte démb nag mm. oh my god jigéen ñi ñëpp bul wax naan jigéen ñi mel jigéen ñi ñëpp waaw bul bul maa ngi ñëw soo ma rek ma ñëw soo ma dégloo ma ñëw waaw ma dégloo ma ñëw parce que daanee la moo tax parce que gars yi dañuy wax ne jigéen ak xale ñoo yem parce que parce que euh, duñ la duñ la gërëm te duñ la yërëm mm-hmm. waaye du jigéen ñem na parce que fu ndox dalaan taa fu nekk boo demee rek fekk fa ay tepp-tepp mm-hmm. parce que góor ñu bëri boo leen gisee mm-hmm. euh, nango góor ñu bëri boo leen gisee nangootuñoo toog dama jàpp na nu leen seen nu leen seen i jabar yi di leen téye moo des rek waaye gis nga góor moom fu mu amee jàmm rek foofu la mu toog. Hmm. jàmm ji nag foo ko war a créer. parce que jàmm yow yaa koy man looloo ma si jaaxal. man loolu moo ma si jaaxal ñu ne yow suñ ku ku bugg a jàmm te yow jàmm boobu. parce que fii ñu sëyoon ñu ñu sëyoon daaw jéeg ñëpp ñëw ne ñu sëyoon laas yee ñëpp ñëpp si nañ toog. ñu takkoon nag dëkk fu ma nekk nii. du ah? ñu takkoon nag ñu takkoon nag. <laughs> ñu tegoon daaw jéeg am am na góor ñoo xam ne ñemewuñ responsabilité man moom góor goo waxuma waxuma façon góor goog noonu parce que euh, alquran bu muy wax ne euh, waskinoonu na mi ne xëy nii sakkamtum laa yeskinoowun na dëkkal leen comme ni ngeen ko mënee dëkkal dëkkal leen comme ni ngeen ko mënee parce que loolu la say mande la gis nga booy euh, man dama dama damay jéppee góor gu nga xamante ni daf dee toroxal jigéen mm-hmm. parce que jigéen kenn war koy toroxal ah, sama yaay dafa laan ma wax benn affaire mun a mun a ma lëmin mën a ko naa mën a ko gis nga kuy euh, saa yoo demee ba war a toroxal jigéen seetal xelaa na na la sama xel daj mm-hmm. kon doo toroxal sa rakk doo nangu keneen ku toroxal sa rakk kon nag waroo toroxal rakki jàmbur mm-hmm. góor ñu bëri nag sama classe gu bari live bi lañ topp rek te live bi amul mujj passage la jaar jàll la rek mm-hmm. exact parce que woykat bi woykat bi waaw kay woykat woykat bi defna na wa kullu kasirin yax naa lépp lu bëri la bis dina ñëw dina jeex mm-hmm. lu mu si teg wa kullu jadidin baalin lépp lu bees bis dina ñëw mu ràpp jigéen bu dee bi nga koy bis dina ñëw dootoo gis taar bi góor bi bu alal bi nga koy toppee bis ngay ñëw alal bi day jeex mm-hmm. lusi tegu nag ngor moo si tegu fulla ak fayda ngeen muñ lante sëy rek tax mm-hmm. sayta yàlla tax na lu si tegu wa kullu hayin maytin képp kuy dund rek baal xel ne bisee nga ñëw di nga loxo laloo sa loxo nday yor mm-hmm. loolu am na lu jar di sóoraale na waaye gars yi dañu duñ ko duñ ko sóoraale parce que sa yaati samaanu laa yes daalun umati wa ma xaala fi sa su bu lens bi gaa yi dañuy dañuy dañuy dañuy fàtte loolu dañuy dañuy mbuboo ne julli leen te dafa des trop ah yow mii di wax ku la gis xam ne góor bu naqari dara nga tam boo xamee jabar yërëm naa <laughs> nekk jullit ah? mooy naqadi deret te soxor a xilifaate te naqadi deret te yow sa bopp ah, ah. ngay yolleeku def la la neex ba pare sangu janaa ba ne man ah waaw waaw xam nga ñun ñun góor nag hmm. ñun góor man de su ma demoon ba am ñaari jabar tamit ñaari jabar su ma demoon ba am ñaari jabar tamit man ku ku ku gën a baax si man rek moom lay àndal léegi kon daal doo doo yemale gaay waaw waaw waaw waaw non ah, dinaa jéem a yemale nii si saa rek. dinaa jéem a yemale nii parce que. ah. parce que yéen yéen yéen yéen ah ma ne ñi góor ñëpp dee nañ daanaka man rek a fi des ak ñeneen ñi ñëpp dee nañ. ngir lan torox waaye tabaat ci kaw waay tabaat ci kaw tabaat ci kaw bilaay tabaat ci kaw ñu bari suuli nañ leen kaw ñëpp gaañu ñëpp gaañu nan bilaay mbon ngeen tax ngeen di dee bilaay tabaat ci kaw sa waay ah déedéet coono rek da leen mënul rek moo leen dee ci kaw par exemple góor day am 25 years léegi ñun góor ñi dañuy am 25 years gis suñ kawar yëpp ngi béjjaa weex tal dugal ante ibu bëri yi fen yi tappale yu bëri moo leen di stress da ngeen a enu rek fen yi tappale yu bëri yeeg jigéen ñu bëri ñi moo leen di stress feebar leen xalak leen da ngeen dee aaxi jigéen yaa leen dee jàpp moo tax ngeen dee teel a xam nga xam xam nga ñun góor ñi ñun góor ñi soxlawuñ ku ñu bëgg xam nga luñ soxla ku ñu yërëm jeex na ñun tam loolu bëgg waaw kay yërmande moo bu doole mbëggeel loolu moo manqué nag loolu moo manqué waaw kay yërmande jigéen ñun instant eh, bi ne ay. wa ay taximan rek ay oto lanu dañuy daw ba xëy. loolu la dee. ma ne doo nelaw sax yow doo. nu muy créer jàmm góor ndax mu mën a xam jàmm ja. waaw man amu amul ñun yërmande kese mu soxla yërmande. yërmande bilaay ñun yërmande rek. bilaay yërmande yow boo amee problème boo amee problème ndeysaan gisoo yaay gisoo kenn sa jabar moo la war yow yermande mais da ngay ñew dugg sa kër jabar nga xamni talul lu do tek ay cëf ak ay xew ay ka rek lu tal instant yi talul len billah talul ak tik la ci la ci tiktok ak tiktok billahi ak tiktok xol xol xol ma jigen yi nii ma ñaari jànk yu baax yi ni ñu ngi tiktok kini kini ya. wuy ma kini instant kini kini war kini kini kini kini xale kini yar kini kini kini kini kini kini yow ana xale yi ana xale yi ana xale yi ana xale yi ana xale yi man sama doom yi ku jigéen ki fukki at ak juróom lay xam semaine bi ñëw ni la koy xam ku góor ki xale la xale la xale la man suma doom yi dañuy oh. ma lekk man man suma doom yi dañuy togg ma lekk faatu bërki dem boo la togg ganaar wuy ma wuy ma faatu togg bërki kër gi ana borom kër gi xamee wu borom kër man wax naa ko suma vidéo yi ne man. ana borom kër gi borom kër gi ana moom. nit ñi de ñëpp dee nañ. naa ne bu amee nekk maa ngi ñëw si vidéo yi comme nu may def nii te fekk ngi sëy suma sëy bi baaxul kontaanuma. bi ko foo amee jëkkër tey. ah te maa ngi àgg man a. dëgg la kay dëgg la moom. est-ce que bëgg nga jëkkër est ah, kay ah, maa ngi bëgg a ban ban jaar bëgg jëkkër nga bëgg yow. xam takk du ban jaaru jëkkër nga bëgg ban jaaru. macha allah yow booy wut jëkkër nii ci nan nga bëgg ko waaw. ku baax rek. baax am xaalis. am xaalis rek. xaalis rek mooy baax not waaye loolu man loof laa bëgg real loof ku gore ta baax te yërëm la waaw loof loolu moom mooy premier waaw na ko hmm. loolu laay kutuma xalaat ndeysaan mais eh, lii lii da ngeen di wax mais wallahi wallahi gëmu leen ko wallahi gëmu leen ko wallahi gëmu na ko non moom na na moom na sama yaay baax la dama ko dee dama ko dee siifur nag dama ko dee seetaan moom moom ku muy def laay dama koy seetaan xam naa jigéen bu baax a baax ndeysaan mm, jigéen bu baax la borom xolu jamaa la borom xolu woor la du ma nekk bi def ñëwee def sama vidéo yi man dama man paale wu ma xalal man xam mm-hmm. dara ma ni ma ne ami doom rek alal la sax man du may rëy rëylu du may tiitaru du may rëy rëylu faale wu ma xalal sax yow kanaa xamoo ma ma ni ma ne ku am doom man su ma nekkoon million ya sax sardeñ lu ma neex laay lekk mais ni baadoo lu ma amul dara man maa faale àdduna yow mbaa xam nga li dama ne instant am na lu manqué mooy bëgg àdduna ak ñàkk yërmande moom moo leen tardé instant bi nii. ma ne loolu ak jigéenam yow ngaa si. wax ma la yow na ci bëgg àdduna ñun ku ñuy toppatoo xam nga xam nga ñun jigéen buy dugg suñu moom alal taxul. am na ñu ko alal taxul alal taxul tax déedéet. benn góor jigéen takk samay samay samay xaaral ma ne te bar barki démb dañ ma dañ ma yónni may ñaani jabar. waaw. may ma may ànd sama xarit di ko ñaanali jabar bu ma àggee eh, gorom gorom lu mu ko wax mu ne ko lan lay liggéey. gis nga loolu. waaw loolu important mu ne ma bala maa jël guru gi lu may wax nii du ay lé du dégg nga mu ne du déedéet du ay léebén du ay lupende mu ne ma mu ne ma ah. balaa sama doom fu muy dugg il faut ma ñëw ma xool kër gi ba yéen situation la nekk. loolu wala wala loolu loolu du yoon. déedéet loolu ah kay loolu yoon la. ma ne dama war nga xam koy joxe. déedéet loolu du yoon du yoon. lool du yoon. non yoon yoon la kay loolu du yoon. ji nga sëy sëy di nga sëy lu gën si sëy sax da fu nekk fu fu doonu dara nga try sëy ba doon ba dara ñëw loolu mooy is di best waaye kër gi xamul na nga dama waaj du may la doomam te ah? waaw situation bu nekk foog mu la grand dafa am benn mag bu waxu wax bu am important waaw waaw nee na na boo tasee ak góor buy ñaan sarax ak jigéen buy ñaan sarax saraxal ku góor ki bàyyi ki jigéen sarax kooka mag mu soxot la tax ay <laughs> góor gu bon la dëgg yaa ngi dégg ah, xam nga lu tax loolu dëgg la xam xam nga lu tax loolu waaw waaw lu ku bon la tax ñu ngi lay déglu may bu yow dem ah, jigéen maanaam lu tax bëggu jigéen kookoy baaxul moo tax muy wax ne nañ jox góor ga. wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma xaaral ma xaaral ma pare. waaw wuy ma xam nga xam lu tax ma wax la na génn te dikkaat buy dikkaat. téléphone bi sax bu guddi bi moo tax muy écho. aarama génn dugaat waay. déedéet moom yow waxuma la moom laa wax ma ne moom li mu wax ne mu ngoo génn ne tax yàlla ma wax leen li ma leen di wax jàpp sax wax dëgg wax li may wax ba pare bu ñuy duggaat duggaat baa ñu suuli leen ñii fay repp tey jàpp na kii te ñii fay repp dafa ñuy fen. Euh, bàyyi leen rek li mu wax ne. <laughs> <laughs> maa ngi ko ñu ko doon tey ngeen dee. ma am corona mënumaa wax waaye ba tey danaa yuuxu xam ngeen ma bu ngeen fi dikkee fii ngeen may fekk ngeen a rep taxawal loo xam de gi nga kii fay fen moom ak geneen góor gi ñoom ñëpp fa ñuy fen ay ay gune góor yu fen lañ ñii ma nee laa leen di wax fay yabaate te fa fen gi nga ñii fay lepp te fa ñuy fen ñoom ci seen bopp kenn kii wax naan jigéen ñi ba ñuy topp ni ñi ngay ngir xalaat moom fay fen xam nga ñoo xam ne tey man ak kii mm-hmm. ba Afrique gune góor yu taxaw dëkk doole yi rafet feñ bee mhm. bugg takk man jeegu xel ni mhm. Ami Jóob sëy sëyati te xam ay doom lu tax mhm. ñu bëggumaa takk bitim réew gee tax waaw paa yi ifin yi sëriñ yi Afrique wala góor ñi xëy duñ paa fa ñuy a takk jeeg bu ne bitim réew ndax ñu ñëw holiday bitim réew waaw di ñëw ndax ñu ñëw xam visa ñëw toog dafa bari sax dafa kon yéen yéen a gën a bugg xalaat te a yéen nga xam ne xalaat wax rek ne mën ngeen a sëy ak jigéen ngir xalaat ñoom ñuy wax rek ñoom xam nañ ne am na jigéen yoo xam ne soxlawuñ daraay góor sax ñu ngi eew suba di liggéey yéen ñi yàlla wax ne leen mën ngeen a sëy ak ngeen ngir xalaat nag yéen yéen a gën a nekk góor di nga nga naan ñoom ñoom la ñu bari ñu koy def sax ñu bari ñu koy def ko ñi <laughs> ngeen dugg ci tax li ngeen may fu ma déggee parité ak fifty fifty jigéen fifty fifty boobu la problème am ba léegi. xam nga tax ma wax fifty fifty moom man d'accord ma ci. <laughs> man du ma def dara. man ah. loolu parce que xam nga ne benn benn jigéen matu benn benn. ko lu tax ah. mu naqadi ko fa xam góor ñoo xam ne they different reason waaw la. lu tax bëggoo ko. waaw. maa lay dégg. na nga sarax góor gi bàyyi jigéen ki waaw ah parce que jigéen bu nangoon dina am ku ko mën a yor bu nangoon rek dina am ku ko mën a yor dëgg ndeysaan dëgg la wallahi mais ñii nii ñii di wax ñëpp kenn ci ñoom lu muy wax gëmu ko hmm. yow looy wax gëmuloo ko de yow mii yow looy wax gëmuloo si dara looy wax nii dëgg la de da ngeen di wonatu rek yéen ak rasulullah li nga ne parce que parce que dañ ko dund leen rasulullah moo tax pour ah. bu set ngeen di ko waatee si boppam doon faalewu leen ko ah waaw xamu leen benn respect suy sang waaw bu set ngeen di ko waatee si boppam noonu safara ay jigéen ñoom ñoo fi gën a bare waaw loolu moom gën a métti yéen it la takorama cay fanaan ku xeene safara jigéen yéen it àlaxira di ngeen safara ñoom it àlaxira dinañ jénga de jigéen moo gën a bare de safara bi ku ko jigen jigéen yaa cee jiitu ndax jigen la jut nampal la ah. raat la ko en tout cas en tout cas luma jaxal ah. ñoy suñu ñoy suñu yaay de waaye alquran ah, sharia daf lay wax na benn jigen sa matut sédé bo bëggé jigen sédé daal da ngay wut ñaari jigen mu taxaway taxaway kenn ku goor wa lool mo leen parce que sen lamagne motax dañuy dañuy wax ba wër la motax dañuy wax ba wër la <laughs> lool mo nekk problème bi No dëgg la ñuy wax rek. yéen ñi parce que parce que waaw loolu la sariya sariya. sariya dafa fajar. baa ñu yeewu sax laaj ngeen dépasse bi ah. yi ana bi ana reer bi yow ni ko xam mu ngi nelaw xamagoo dina jogom du jóg ba pare nga koy laajoon oh. bu tension bi monté du dee. loolu jeexagul de ak. bi ñu ko ko ko wax. ak moo tax nag ñu ñëpp. moo tax ñëpp dee nañ ñun rek fi des ah. ma ne loolu yow yow alxuraan yow alxuraan bi nga wax ni alxuraan boobu te seen bugg jigéen gi ak gi seen caga gee tax jigéen ñi ah. leen sëriñ tu ba ngeen di dee. <laughs> what the how you don't know ami rek a baax a ñii. baax na yow alxuraan ah, bi nga wax ni alxuraan boobu moo la ko jigéen soo ko amee njaboot gi yow yaa ko war a yow teg. nekkul ne jigéen bi loolu liggéeyam la léegi nag jamono yi fu mu toll loolu mooy yéen liggéey góor yi jigéen yi jigéen yaa koy e def yéen dangay gis jigéen boobu boo xam ne mooy eewu dem si marché bi kirtika te ñoo jox njaboot gi ñu tooga yéen soo leen amee yéen a ngi xalaat beneen jigéen jigéen bi su xalaat amee mu ngi xalaat njaboot gi moom loolu fa la amee da ngaa jàppale góor ba mu egg fu mu war a egg mu rombal fa dafa beneen jigéen loolu bari na ah yàllaa ñu ko digal yàllaa ñu ko digal déedéet yàllaa ñu ko digal takk leen ba ñeent takk leen ba ñeent nga emale. emale moom emale yombul. waaw moo tax léegi ngeen yàlla yàlla si boppam yàlla. ah yàlla si boppam xam na ne yemale ji yëngu parce que bam na walan tastatiya ah, an taxdiloo bayna nisaa'i walaw xarastum la si wax teg wala tamlikuuna kulla maylin daf na waaye wa xamale xam na ne mënu leen il faut am koo gën jox xol bi waaye def na bu leen jéng ba na këpp bu leen jéng ba daanoo si kaw. si beneen côté bi soo amee soo amee koo jox uyuma soo amee koo jox xol hmm? sax. waru waruloo koo fosal ba ñëpp di ko xam. jigéen góor na dañ koy fosal nag. waaw kay waaw loolu ànd naa si yow. dëgg la waaw jabar bi gis ne waaw man su ma man la gën bëgg te loolu. man du ma wujjee par war par jeex. man du ma wujjee man ami man wujjee moom doy na sëkk. foo ko teg. du mi foo ko teg xaw pour ne nga bugguma ko rek. am naa raay kon xam nga ne nekkoo si dëgg. xam nga ne nekkoo si dëgg. maa si dëgg kay. <laughs> ken ken ken banex ken banex bakkan rek ngeen top ni non wujje yéen ñu ne topp bànneexi bakkan yéen ñu ne mukk aji mu jaar ngeen teglante ay jigéen ni caga ku ne dara war a topp sa bànneexi bakkan sax mais de man de mun naa la yor yow ñaareel ñii nii kii nii de kan kan ami ami Ya tere yàlla Ya tere mun naa la Takal de sama waa Takal ba ñent yow. di nga gawa bi di nga gawa a faatu de. non mom mi laa takal takkal ba ñeent. moom mii laa di nga gaaw a faatu. <laughs> Yalla yalla dégg tere. ñii ñii waa yow. et eh, da ngeen a théâtre rek théâtre rek fi en tout cas comme comme comme comme comme ko digal nañ rek. man lu may bañ bu waa léegi xaaral ma yow léegi xaaral ma laaj la. waaw man du jaaxal xam nga lu ma jaaxal man si góori afrik léena rek moom ma jaaxal seen affaire du ñëpp de waaye léena rek moo ma seen affaire soo gisee daal ñu ne man julit laa yaa li la ma santa rek moo nekk foofu pare nañ pour takk pour takka beneen jabar waaye daal su nekkee ne waaye daal su nekkee ne pour toppatoo jigéen <coughs> boobu moom duñ ne man jullit laa dama ko war a def déedéet mm. man looloo ma jaaxal góor Afrique ñoo dàq jigéen ay <laughs> man lo wadjal man julit la dama ko wara def julit bu nga mbobo non kan loolu la yàlla santaane matal soo ko takkee ak li nga ko wara defara lutax lu tax yéen loolu loolu leen mbubboo lu ngeen dem mbubboo ne rek julit la dama wara am wa wa wa du gor du gor ñep tamé parce que waxuma ñep way majorité bi ku takk sa jabar ku nekk war war nga ko war nga ko war nga ko sagal si digg war nga ko sutural war nga ko teral man jabar man jigen dama koy yàq loolu la nak gis nga soo amee jigéen da nga mm-hmm. gis nga soo amee da nga ah. ko a yàq aa nga soo amee waaye ñii dañuy ñëw si kaw lal bi mel ni ci sa jigéen ji rek cëb tëb tëb pare ah, ah. gis nga naka gis nga xaaral xaaral gis nga góor yu bari duñ dee understand gis nga jigéen soo ko aj soo ko yoree jabar soo ko amee danga koo yaax jigéen jigéen soo ko amee danga koo jabar soo ko amee danga koo yaaxa dem du fa a toog doom soo ko amee nga yar ko ñu ne dañoo jël suñu doom yaaxal eh, hmm. jël jabar toroxal moo tax su demee am hmm. keneen rek yow moom dootoo hmm. amati sax eh, mais nag lan ko war a def jëkkër la lan la har quran bi yalla mune sa jabar sa boko xole ni contane hmm. yalla fay jël kaw tiyaaba ju bari bindal lako xawma kawari yaram wa yep la yalla defal tiyaaba ñi ne ñi ne ñi ne dañuy am tiyaaba ci ñi kaw loolu jàng ko de gis nga boo gisee ah. parce que xam nga yéen ah, bët ba set da ngeen di tabax ah, da ngeen di tabax ajana ba mu des ba mu des fin ba mu des ah ñoom ci seen bopp faale wuñ yàlla lim leen di ñoom daal buñ bëggee buñ suñ nekkee li fi bu ñu wax naan man jurit laa rek dama war a takk ñaar loolu rek ngay dégg ñu ne ju waaye su passé loolu daal. duñ te duñ yëram kenn ñoom ñun bi sax ma génne kenn aat kenn am na keneen fii allo. waaw dama sax am na kenn ku nekk fii na kenn si yéen daanee ma jël keneen. ngoo kële génn na sax. ha billahi ñi suma seytaane la ñuy wut da nga foog jàng ñi dama dama dee nekk di di di fecc di defar di defante ñoom bëgguma wax lool fañ rep ñi soo gestoor ñu ñu ne la ñu soo gestoor ñu ne kaay ma takala loolu rek rek rek takala waaw te yow sa responsibility doo ko def xam nga tax ñu gaaw pour ma takk la golo bu jëg golo bu tëb rek ci peelu ne kaay ma takk la ñoom kay ñu si gaaw xam nga leen toppee soo leen toppee di nga sëy fukki yoon ak juróom. waaw su paree nag su paree nag ñoom yow yow yow muy nekk ah, ji góor bi duñ la konteel de yow muy jigéen daal soo tasee rek na yow jigéen bu bon nga. yow tas mm-hmm. nga nii sëyoon nga tas sëyoon nga tas sëyoon nga tas. Mm-hmm. léegi góor bi nag góor gi moom duñ ko dee wax. Mm-hmm. moom mun naa tas fukki yoon ak juróom moom kenn du ko wax dara. waaw waaye yow jigéen bi daal te fault bi du dee nekk si yow de yow yu waa luñ yoo bees yaa ngi try pour nga mun a nekk pour danga dee seet xale yi sax waaye ñoom déedéet waaw lu ñu la munti def rek yow daal yow a muñ muñ muñ ba xëy gaañu. loolu def léegi dafa métti torop dafa métti. kaka ñu jigéen Afrique dañuy dundal lu métti sax billaahi. kii de xaw ma Ali la tudd xaw ma waaye pare. Ali bàyyi ko fii mu naan. bàyyi leen wax jigéen africain ay africain ngeen. waaw du ma leen góor ko de. loolu ñu rey na góor gënu ko waaw. man de waxuma ñëpp de waaye xam naa ne daal majorité bi daal noo leen dundee. ñun waxuñ ne duñ waaw waxuñ loolu ni ñun nuñ mel ni suñ communauté africain waxuñ ñu ngi ñu ñu ngi ñuul kub mais ba leen di wax góor Afrique di leen wax góor yi rek boole ne ñëpp góor yëpp benn ah duñ war a boole ñëpp dañoo suñ góor yi lañ xam thank you jërëjëf góor yi ngeen mais saw wéy ma hmm? ah, ah. mais lan moo tax yow ngay jàppale jigéen rek tamit te nga bàyyi góor lu tax doo conseil conseil jigéen nekkul jàppale lu am loolu la ñuy wax rek lu am loolu la ñuy wax non da nga war si seen sëy yéen ni ngeen def da ngeen def conseil jigéen ñi ci sëy yéen ni ngeen def ni tey tas ngeen ay sëy yu bare c'est sûr ah astafurlah ni ngeen gis am na am na ñu nga xam ne si gis seen bopp de am na ñu fanaane mer waaye mu wax rek du ñuy jàpp seen du ñuy gën a yëg seen mer <laughs> lii moo tax gars yi bugguñ suma maas bi ko xam ne ne ñoom duñ def jàmm ah. su ah. bugguñ suma maas yi di wax ñoom yu bon yi ñuy def parce que dañ bugg rek da nga war conseillé da nga war jàppale da nga war jàppale loolu conseillé loolu balaag meel la ak forcé nit ki pour mu toog ci métit hmm. non non loolu soxot la ak bon ak nappe dañuy jàpp ne ñun ñun ñun ñun ñun wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma yow ñu bari yow ñu bari ñu ngay déglu ñu bari ñu ngay déglu yow ñu bari ñu ngay déglu en tout cas sëy bu tas fi fii ak suba yàq <laughs> yàgg suba te taxawal ma waxal la wala ma dindi la. waaw gi nga yow góor ñi mel ni yow. Hmm. soo gisee bëgg leen jigéen ñi mel ni man. Hmm. seen jikko ju bon ju lëndëm ju soxot ju bon ju tilim jee tax. Hmm. te xam ngeen ne du ngeen ko wecc bañ robi leen. wala <laughs> ñu moo tax ngeen xam ne ñun suñ ko waxee jigéen ñi fa yéen xam ne amee li muy wax dëgg la man lii laay dund te lii jaaduwul. Mm-hmm. loolu la ñoo bañ de. waaye danañ leen robi wecceeku leen baa ñu suuli leen. nit ñi dina fa yeewu. ñëpp a yeewu ceeb yi si sax yeewu amal ni fi fii ak suba bu fi tas yàggu tas. ah am ngeen de tasu sëy. yow tey bu bon la ko fekkoon sëy ba tas ba pare ya di lag-lagi ma ñëw jekkali ko ko bu tas bay lag-lagi ni banqaas bu dam muy lag-lagi da nga war a yamle nag bu baax moos man mën naa koo tas yéen war a yamle góor ñu bon ñu jaale ñu ngeen naan la da nga war a yamle waaw boo wax ak da ngay da ngay wax ak yi yow dama def sa wax may may def man suma internet ma di ko fay ya, ma koy fay demal def sa vidéo wax jigéen man suma internet ma di ko fay yaa may wax ñu li may wax parce que ni nga def c'est pas man sama tas maa ne demal nga def sa vidéo wax jigéen man suma waxee góor nga wax jigéen sëy bu ci tas ba fekkoon muy lag-lagi jëkkër ja bon bañ jaale ko yow nga ñëw yeggale ko waaw sa fekkoon jëkkër ja ñu robi ko bu yàgg sëy ba ñu robi ko bu yàgg sëy bay lag-lagi laa yéene seytaane ñun kay seytaane wuñ fañ bugg ñun jigéen ñi ñu xam non kay seytaane dëgg la rek xam nga soo ko déggee rek mu métti la xam nga ne dëgg la wax ami lum lum lum nekk fii di wax yëpp dëgg la ñun lool loolu la ñoo dunda waaw a nekk nit ñi am dundee pour wax rek loolu moo tax waaye ñu bare ngee ñu bare ngee dunda lu mooy wax nii ñu bari sax soo gisee comme ni jigéen ñi ñëw di wax lu baax seen jikko yi ngeen war a ñi ñuy def ba xam jàmm ak góor ñi nga xam ne ñooy xañ jigéen ñi jàmm jigéen ji ko wax rek ñu ñëw ne kii taskati sëy la waaw te seen séeréer nga laaj ñoom lu tax ñu ñu ñu xalaatee loolu seen jikko ju bon jeeta. Mhm. <laughs> waaye ami ngeen fee fekka de. asalaamaaleykum. waaleykum salaam génn na wa du ma ko dugalati sax koo fañ ko jaale ba pare du duggaat waa <laughs> allo. allo am jàmm. waaw ñu am jàmm de maa ngi déglu yow it nooy ñëwee xaaxil. <laughs> waaw waaw nu mu ñëwee rek fekk man moom maa ngi sa côté nag. ah waa baax na jàmmal welcome kon mun ngaa wax man moom maa non du question boobu de man maa ngi sa côté kon jàmm ak nga naka allah dañu war teral jigenya ñi sutura leen dimbale leen hmm. hmm. doo ma am solo quoi man moom góor la mais xam nga am hmm. ay góor dañu soxor bu baax góor gu baax nga yàlla dina defal jàmm ak fan bu dawit gu yaram loolu moo tax jigéen moom macha allah il faut ñu teral jigéen yi quoi parce que soo demee comme ci ko àllayro jigéen ñi rek ñoo liggéey ci tool yi ci teen yi non vraiment kenn mënu fay jigéen quoi déedéet dëgg parce que man damay xool damay xool surtout sama yaay mm-hmm. depuis avant robinet amul te rek la nga dem jël fas yi wala nag yi nga dem roti ci teel yi mm-hmm. Mm-hmm. loolu yëpp ay coono la quoi mm-hmm. kon doomu aadama foo mu ta nekkee caat naar rek um, xoolal sa bopp sa rek soo xoolee sa rek doo toroxal jigéen quoi loolu dëgg la moo tax vraiment jigéen moom kenn mënul fa jigéen mm. mais jigéen tam da na xam ne Euh, góor bu baax tamit yombul. Hmm, góor bu baax moom yombul. parce que am na xamantene ne instant da ngay gis te say nekk sa jabar wala nga nekk sa jëkkër jeg-jeg rek su fekkente moom dépense bi manqué rek ngeen hmm. problème commencé. Hmm. loolu moo tax doomu aadama il faut nga xalaat bu baax baax baax baax. foogoo ne doguma la yàlla bu la yàlla dog. ma wax foofu mm. tuuti parce que man jigéen laa te expérience naa you know li nga wax nii you know like sëy naa sëyaat am xam naa mbokk yu sëy xam naa xarit yu sëy te maa ngi wax léegi juróomi at jigéen ñi di ma call ak seen mm. problème jigéen ñu bëri dañ ma dee call wala call Facebook wala Instagram di wax mm. seen problème te waxuñ ko sax pour ni ñi dégg ko bëgguñ nit dég ko sax waaye just wax ak man de you know because ñu ngi am soo xam naa community problème bi lu bëri moo tax ma nekk si si di wax sa yi yëpp su ko wéyee pour problème yi wàññeeku foogoo ne soo gisee yeneen jigéen ñi su góor bi ñàkkee dépense ñu mer it's because you mm. do all the time ko ne all the time but foogoo ne yenn dañ ko dee gisé ne yow yaa def leneen lo xane sa xaalis bi waru fa dem mm-hmm. manam mm. su bekké goor go xane dafa mëna xam jank mbala muy jël xalisam di def feneen fo xane waru mm-hmm. ko faa def kon léegi su ne fi mu wara def xalisam jot na xamul yow da ngay mer parce que jigéen noonu la lay xalaatee yow da ngay wax ne nangam boo ko defutoon ñu ko doon danañ mën a def lii tey ndax man xam naa mbokk yoo xam ne kenn ki mbokk bu ma jegee la te doomam yi su ma leen fayal school sax duñ jàng te jëkkëtam mu ngi takk xale bu ndaw bu yàggul xewal xewal dañ ko def def gundooy gune yi leen dàq school ba man maa leen fayal te mu ngay takk gune gu ndaw xewal xewal ko ñetteeli jabar la ko takk te mu nga feebar moom ci fam wiitu fa feebar waaye tal na tal na ñetteel aka bari foogoo ne yooyu moo tax góor gi bu xamul jigéen ji meer waaye góor gu gore te mhm. jabar ja mhm. nopp na ko jigéen su la buggee fa mhm. mu jël soo takkee jigéen ju la bugg laa wax de te yéen ngeen a a takk jigéen ju leen bugg du ngeen di takk ku leen su ngeen takkee jigéen ju leen bugg te ngeen gore jigéen ji xam ne suma jëkkër dafa gore lu mu xam pour ñun la bés boo ñàkkee lu ci ñàkkee dina la muñal waaw waaw what do you think loo xalaat si loolu non lu nga wax dafa am solo mais xam nga doomi adama setan mo bari doole wala mm. ndax euh, da nga gis dara nga ne ko mom vraiment vraiment ki mo doyul ma Fekente mom, lu nga bëgg a dugg na baaxul sa dugu kay bi baaxul sa jabar su fekente fa la baax jappal ben jabar rek parce que mm. jabar bu bari baaxul baaxul de da problème wallahi man mom bu neexee yalla suma ma jabar ben jabar like je ben dong doyna ma parce que jabar bu bari rek mo dogu du fat yalla nga am jabar waaw parce que xamantene dañuy dem ñu dem ben stream ñu seetaan la pétaw bi sa wujju mu ngi kër gi nii ak ni ak na neex amin na ngeen def moom mooy loolu nag jaama rek jaama rek jaama def laa dis yéen a ngi si jàmm waaw sant suñu borom grand. alhamdulilah waxtaan am na solo de. ¿eh? am na solo kay. jërëjëf. ah man loolu moo tax man sama moom moom mooy loolu la man moom mooy loolu la. tey laay mos a dugg sa live. jërëjëf ah, welcome. Mm, maa ngi lay sigu bu baax a baax. thank you. man mm, ma xam nga la moo gën a neex jigéen bi su fekkente mu ngi lekk parce que moom day lekk rek di ki def kii live. yow mm. <laughs> doo ma bàyyi bàyyi kii mu man xam nga keroog wala barki démb maa ngi gis mu ngi lekk benn kii uh, man ko ndeysaan xoolal kii lu mu lekk du may kenn. moom kenn di may ci téléphone baax la. <laughs> ami de. non non la vraiment vraiment macha allah. non nit woyof la ku baax mm, mm. la. ku baax la. lay def si tiktok bi. di mm-hmm. yee nit ñi. Mm-hmm. thank you jërëjëf. gën si saagay de. Mm-hmm. non saaga moom. saaga moom baaxul saaga moom. waaw mm-hmm. ko rek moo koy def. si si topic bi loo xalaat si topic bi ñuy wax nii. Hmm? thème bi thème bi. lu ngeen di waxtaane. Dame Gueye. Dame Gueye. Gueye <laughs> nga sant wala Gueye. gay Guy agay fa hunde de. Wa. De bo ko ni de. Moy dama foog ne ben dama foog ne gambe ñoo de wax gay. Hello sister Jambo Penda nakam. Mhm. Mm. Wa haksil dam. Mhm. Mm. Yay morom geej. No class yo ngi. Mhm. Dam keneen kii num tudd daaw nga tuddam lan. Ndaw ndaw. Ndaw. Ndaw. Ndaw. Ndaw jalo banna. mënuma ri turi turi sénégalais ah ndaw that's nice ndaw mm. mm. wa daam dégg nga waxtaan wi tey du ah. a dugg rek wala ngaa tuuti rek laa ji dégg tuuti rek mm-hmm. <laughs> dégg naa ji tuuti rek waa no problème mun nga jamono ji lañu wax ak sëy léegi ndaw continuer di nga xam lu ñuy wax <laughs> oh ah. waxtaan côté jigéen ak góor sëy léegi de moom xaalis moo ko jiital loolu moo tax sëy du yàgg mhm. ndax da ngay nekk ak nga am tuuti mun a ah, kii kat am na xaaram ma sëy jéem a sëy du xool nag mbëggeel gi du xool dara léegi nag xaalis bu sëy bi moom bu xaalis bi jeexee sëy bi day daal di jeex mu jël bagage mu mm. ñibbi waaw am na ñoo xam ke am na cheveux naturel war na ko am taxu moo sa ci <laughs> jëkkër toll supernaturel grand <laughs> eh, dam na wax so la de waaw comme ami comme ami bi mu teg nii boo fekkee sa jabar ko di ko tapas ak yooyu wala bu la sax nga koy defal ay ñetti jiin ñeenti jiin loolu indi ay problème taxawal léegi moom lu ma tontu la foofu continuer <laughs> parce que loo wax loo xam ne xam naa ko dinaa la tontu ci ah. man maa fi nekk jigéen ji te xam naa expérience life tam xaw ma yëpp bot anyway <laughs> soo gisee yeneen jigéen ñi dee gaaw a seen góor yi seen bopp góor ga ci ah. boppam moo manut lal góor ak ganaar guñ suul eh, du lool de du lool de du lool de <laughs> waxal la man jigéen laa man jigéen alors eh, xaaral xaaral xaaral galaas xaaral ma tontu ko ah, xaaral ma tontu ko ami ami non ami ami dawal naag non la balaa may fàtte ah. nga ne góor mu mënul lal xam nga xam nga la d'abord ami yëkkati sa nga xool ñëpp benn lañ dégluwal ma waxal la lu waaw nga xaaye ko sa bopp du yomb xanaa lu xam fayda dëgg ah ami loolu bari na yi de bu ñuy dugg wax boobu bu ñuy dugg mais waxal tira mm-hmm. mm-hmm. waxal tira waxal jànga su dee góor boo xam ne danga ko bugga anden góor bi bu baax jànga mm-hmm. ndax ndax te moom mu lal ndax lu ñàkk fayda danga sa bopp ami bu ñuy dugg wax boobu gis nga ci golal bi bu ñu dugg wax wax boobu yow suñu dugg wax boobu da ngay juum bindal fii dimbali may leen ma tuut su ngeen may ma 5 1 minute dina leen wax waaw waxal ci golal lal bi su fekkente dañuy dem ci kaw la am na xamante ne ma wax leen dal nga bal ma de ngeen bal ma de wax baxul mais am non ci lal bi rek am na xamante yi de am na góor dañuy oppalante tam dañuy opalante, n'est-ce pas waaw kenn ok xaaral ma wax la gis nga lu nga wax foofu loolu bokkul instant mi mun nga am xarit bu xarit bu bon bu xamantene bu bon la dafa bëgg nga test sa sëy te yow lu nga am moom amul ko hmm. hmm. mané xam nga loolu way yow problème nga yow jigen ngay waxal la jigen di waxal do déglu ndax nga teub di paralal wax de wéy jigen jigéen ja yow loo xam ci maa yow jigen nga lo xam ci ci dund jigen man. Ah, man ma waxee man musuma takk jabar de mais ànd naa ànd naa façon yi jabar yu bare bare muy itali fii itali fu ma nekk fii comme baax na wax boo wax baax takkoo jigéen joo xam ne bëggul mhm. la yow yaa ko bëgg déedéet jigéen ah. yow nga nekk góor bu ah. baax ah te nga mën koo bëggal ci lal ñett laa wax lu ñàkk fay du tax la boppam hmm, dépasse du tax la boppam waaw mais dafa am yow ami ñoo xam ne nii ma xam nga jigéen dafa am ñoo xam dañoo dañuy dañoo xaw a kii dañoo xaw a eh, kii trop pour affaire xaalis ak yooyu dañoo xaw a commercial bi mënuma ko mën a waxee noonu ndax maanaam da ngay nekk nit ci koñ bi maanaam kooku xëy na suñu borom xaw ko am lum mu ko wërsëgre yow demee woon noonu nga ne chaque jour nga koy indil borom boo joxul lii boo ma joxul man gis naa ay cas yu bëri gis naa ko ci man. waaw loolu moom daf mm-hmm. waaw dañuy kii. dafa fekk jigéen ja buggut la nam la war a buggee yéen yéen a dee tëb di cànk càkk jànk yi nga xam ne kon jànk yu bëri dañ ami xoolal ami nga ma lu ma la lu ma jànga si góor gis nga góor gis nga góor ñoom ñuy wax ni ñuy wax ni waxum eh, xaw ma nag ñoom bay gis nga góor bu ko bu ko yëram waaw gis nga góor soo toogee di ko muñal di ko yëram su amee mm, du la mm. jox su amee du la jox kenn keneen lay seeti ku ko yëramut déedéet déedéet ah, Eh, eh, man de moom côté boobu yàlla na a musal ma loolu de côté boobu moom waaw man loolu ma ko ma dee wax man su ma dee wax du généralise comme mel ne jigéen ñi wala góor yi dama dee wax ne ne doomi aadama bu nekk da nga am sa jikko boppa exactement da nga am sa jikko boppa léegi-léegi nga tesee mm-hmm. jigéen ñi jigéen ñu bëgguñ lu baax léegi nga see jigéen yoo xam ne ñoom mbëggeel rek lañ bëgg a leneen ñu ngi am seen liggéey ñu ngi liggéey so leen ñu jox seen bopp waaw man gis naa jigéen yoo xam ne ñoom ñoo toppal seen bopp soxla wuñ dara seen seen seen góor waaye da ngaa gis am na góor yoo xam ne soo toogee di leen soo toogee di leen muñal di leen muñal bés boo bés bu la yàlla liwal ñoom beneen jigéen la ñooy xool yéen noonu leen yàlla bindee beneen jigéen la ñooy xool waaye yow mi si gannaaw la xool loolu moom gis nga sira li nga wax li nga wax dëgg la de sira loolu bari na wax dëgg la mais suñ boroom moo moo moo ci ci dañ leen di xam bu ñu amutee dara am jàmb la loolu am si si bari na du xaju jee xam nga seen maam suñ boroom moo bind jigéen bind góor xëy na dafa bind na góor mooy am ñeenti jabar jigéen kenn ci kenn rek la mën a yem moo tax boo moo tax suñ moo tax góor ñi ñun ñii maanaam dangay am benn saxeel nekk ci ñaar non loolu taxut. ok boo boo ñàkkee xel bi nekk No, ñaar de xel du ne. sa ci kaw lal bi. ngi bind te ci ci kaw lal bi ngay ko ci non non non non non eh eh, eh yow ya, ami ami. Ya, ami kaw lal bi bu ko jigéen a tam nothing to do with yàlla amin amin xaaral ma wax la ci kaw lal moom maanaam am na ci foo xam ni borom xam-xam yi dañ faa dañ faa wax lu bëree bëri gis nga du lool de borom xam-xam yooyu seen bopp sax comme ni ma la wax la ñoom ñu ca bëri tëb ci maanaam gis nga jigéen gu ndeete te lu tax tiyaabo ja duñ koy soxla non kaw lal ba tiyaabo ja yàlla xam nga loolu ko sa jabar malaaka yaa nga taxaw di ko bind nga war a def guddi gi yëpp nga war a ne sa kaw jabar di nar nari di ko bégal a ah, waaw mais mais xam mais li nga wax dëgg la ami li nga wax dëgg la. ami yow ami li nga wax dëgg la mais dana jigéen. ñoo dana ami ami dana jigéen ak sangre ñoo yem jigéen ak sangre ñoo yem maanaam bul ko jaay doole jigéen ak sangre ñoo yem bul ko jaay doole. maanam maanam dee teen boo xam ne du fees xam nga teen boo xam ne du fees da nga def ndànk. am nga jigéen moom jigéen moom mooy lool man nga fii ba bës man nga mën nga see nekk te te du doyal. ma ne loolu loolu mbirum yàlla la loolu mbirum yàlla la xamut la muy def góor gu a jigéen moom moo du moo la jigéen ja doy ami noonu la suñ demee ba télé ba nga xam ne télé lañ si lañ dee man de jigéen ji du doylu man loolu xaw ma ko ndax man meluma noonu am na am na loolu taxut may wax de man ma won ne yéen seen gëm yàlla gi ci takkam jabar rek ngeen koy def mais nit naa fekk firxaw na bu gëm yàlla yàlla war nañu takk eh, deuxième fois di leen jëw soxot ñàkk bégal jigéen yëpp yàlla di leen ko xaaye ngeen ci peelu jëf jaxeen bi waa ami ami ami dinaa dellusiwaat ci dafa am ku may woo ku ma joxanteel rendez bi dinaa dinaa dinaa jékki-jaar waaw ok dafa am ku ma joxoon de rendez-vous bi merci beaucoup. yéen di leen yàlla saaye moom ngeen di xel ba faale yàlla loo taxul ngeen di takk jabar waaw kenn du fi mu boo yàlla jànka yow loo xam si ñu luy wax ñu naan yàlla nii yàlla naa ma ne loolu laa lu ma la lu ma la waxoon ñun daal bu ñoo waxoon yàlla ak ak ak jullit la mooy buñ bëggee takka yeneen jabar si nga dégg man jullit laa waaye yow léegi beneen beneen beneen jigéen bi nga toroxal na yow kooku doo am axaam di nga am axaam. Mm, ah, may leen may may leen ma tontu seen wax xam nga eh, sa jabar soo ko indee kër ga il faut nga fonk ko. exactly du dégg waaw mais am na xamante ne moom bu am xariti xariti yu bon yi man loolu laa bañ quoi. xarit yu bon ya yow yaa ko koy yóbboo soo du woon ci gu baax du nangu xarit yi xam na jigéen ñi dof ñu xamul luñ dugg surtout xale yi mhm. ñuy nangu xarit mhm. yàqal leen waaye mhm. jigéen ju doon nit te yow nga doog ko baax ci yow te ñu doon bugg la du nangu xarit soo ko ma ne soo ko téyee sax def ko sa soo ko téyee def ko sa xarit loo ko soo ñëwee waxtaanaa moom bilaay di wut xarit si biti exact soo gisee mu soo gur mu soo mu wut xarit si biti de dafa wéet yow soo wàccee ñëw nga ras toog si toog jàkkaarloo télé bi su ceeñee télé nga ko ceeñal beneen channel bi su toogee waxtaan yoo sax yoo rek xam nga eh, lu ngeen wax dëgg la mais soo wàccee liggéey stress moo tax. mais jigéen bi moo war na moo war na laaj moo war na laaj góor bi lan nga bëgg. waaw jigéen bi moo war na laaj góor bi. Wow. nga love it's not like yaa ma war a won love man maa la war a love love dafa waaw mais jigéen bi est-ce que exemple laa la jox de exemple laa la jox ah, jigéen ji góor bi wàcc ci kër gi mu ngi stress bul foog ne fa xeen ci kër gi taxamu stress Lol dëgg la mais instant ne su jigéen góor bi wàcc liggéey kan mu warna na toppatoo góor bi du jigéen bi si ou non naa ko waaye ba léegi jigéen ji su fi dafa des ndax moo ci mu ngi liggéey wala liggéey wala ndax mu ngi wér wala mu ngi xam stress jigéen su xamee stress nit su xamee stress su liggéeyu sax du mën a def dara stress daf day tax borom du mën a def dara. loolu nga wax dëgg la mais xam nga doomu aadama il faut nga comprendre su fekkente yow liggéeyul nga xamante ne yàlla moo ko dogal su fekkente si ca jigéen mu ñëw vraiment vraiment da nga war na toppatoo nga ne moo ma indil fii wala moo ma takk sunna ak fari la mu mu indi ma kiram dinaa ko xaar lu mu bëgg ma def ko lu mu bañ mu du ma ko def. thank you for the donation. keep liking the video guys. Mm-hmm. waaw tey ci guddi bi jotee dengan anda anda bu neex waaye ngi thank you very much okay thank you nice having you here hmm. après da ngay def lu ne mais instant problème bi mau lan instant mi ne moom moom saykat yi bariwul loolu moo tax dem ci biir lay dem yow fa mel ni góor gu soxot te bugg tey hut jigéen nga non man yàlla non non non parce que man instant su ma amee jabar billaay lu mu bëgg suba ngoon danaa ci taxaw bu neexee suñu borom. kon loolu laa bëgg sama jabar non parce que instant mi ne soo demee ci town bi comme Dakar suñu fu ma dëkk mais doo xale yi jigéen yëpp dañuy yàq loolu moo tax da ngay dem ba ci biir ci biir laa la wax de ci kii ci biir alal la de nga tab ko jabar boo xamante ca xale bu ndaw nga indi ko nga yar ko. das crazy loolu tax nga am jabar ju baax nga yar ko billaahi jël tabax ko tabax ko móol ko pour mu nekk nit ko xam ne fay ñemee métti ni yow xanaa gisoo xanaa gisoo puli dañuy tax depuis onze cent wala treize cent waaw wala douze cent la ñuy takki seen jabar ñuy toroxal borom te borom du ñemee wax non xale bi foofu lay foofu man vraiment vraiment damay gis xale yi ndaw ndaw di ñuy dem say du ñu am benn problème. ci poli parce que gune nga warutoon a sëy ak borom xamul sax luy sëy xamul sax luy loof mooy comme niñ ma defoon bu ma doxee gune may ma koo xam ne bëgguma ko that's abuse <laughs> loolu abuse la loolu jikko ju bon la te ña koy def fañ cagata bon te bëgg gune taxay dal leen te ñoom ci seen bopp duuñ góor matuñ góor moo tax ñuy wut gune yu ndaw yu xamul xadduna lu tax nga ne mot lu tax nga ne mot lañu góor mu ne yees defal laa mu ne yees góor góor ñu yëpparta xalaku te cagata bon lañ mm. ah lu tax nga wax loolu moo ñuy hut ku ne ku ndaw xamne ku ne ga du mëna wax no du mëna wax de den melu ni ami jóob su ko defé luñ ko waxee mu ne yessa mais ni ku jënd sa jam sëpp non xam nga xalé soko takké hein ah il faut nga nga nga ki ko nga yar ko mm-hmm. ndanka ndanka wa parce que gune la kay nga ko wara yar waro ko tak waro ko he gune la ngaa te bugu gune ta pito mo tax ngay gune nan il faut nga yar ko <laughs> ami ami du question du question boobu xam nga lan mooy problème bi nag mais if instant bi nga dem ci eh, ci capital bi nga gis jigéen boo xamante ne nga ne kii déedéet mais instant bi da ngay dem famille boo xamante ne non non parce que loolu non non man sama jabar dinaa wax lu ma bëgg du ma ko jënd greffage benn lu mu bëgg ci ka yow nga xalaku ta bonta ta xalaku a contrôle nit suma gerefaas bi nga ne noonu ñi di ko enjoy ta nga ne doo jëndal jigéen gerefaas non man chaque jour maa maa xool sa live bi chaque maa xool sa bi parce que moom moom very yow ni ngay wax lii is not good is not good at all xam nga kër gerefaas lan mooy njëriñ gerefaas xoolee boo xoolee rek jël seen rajo muy konjong konjong. Babacar. Ami. waaleykum salaam Babacar. Diar. naka yi tey nga am jàmm. jàmm rek daal lii foo koy jaayee noonu gum maa ngi Argentina. for fu foofu ah Argentina. Argentina wetu Amérique waaw ginnaaw Brésil. ah mu ngoog macha allah ma ci daal li <laughs> waaw la nga yitte jam lépp man sa ami bu yag la nak ci facebook beeg instagram beeg ñi ngi si jàmm rek maa def leen dara alhamdullilah ñi ngi sant bu baax dimbalé ma ci wax ji bala ma xam ki mu may wax lo rek ki limi wax gëmu ci dara limi wax dara la ci gëmu te gor ñu mel mom moom dañoo bari man mom senegal ñi gis ni non grand babacar very good <laughs> no Grand Babacar. Gori Gori Senegal. Gori Senegal. Gori Gambie Gori Afrique Jigen ju len moytu ah. sa fan du guddu. Ah. wala boy de do do de wi. Jigen ju len moytu da nga de ak jangoro wala sa fan du onat. yow nak yow ci sa bopp nag bopp non man ci sama bopp laa njëkkee ndax man dama leen a xam man damaa xam góor ñi ni ñuy def ba jot jigéen ak buñ ci jotee ba pare nañuy defaat oh very bad xam naa xam naa waaye yow meloo noonu de man xalaatuma ko sax ok meluma noonu waaye damaa gis ne jamono ji fi mu toll nii góor ñi ci bari pour ñu jot jigéen lu ne danañ ko def ba pour jot jigéen waaye buñ jotee jigéen ba pare dañuy judduwaat. Mm-hmm. ndax li liñ lay wax ba jëlee la sa kër buñ la ko waxoon buñ la ko waxoon sa kër buñ la ko waxoon nga toog ci say ba. waaye boo mm-hmm. xasee génn sa kër yaay. mais grand grand moom xam nga doomi aadama soo buggee doomi aadama bul ko fenal non. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> góor moo mën a yàq jigéen xam nga góor ak jigéen bokkuñu bu dee góor mi ngi mel ni taxi bu paan ci koñ nga xam ne ñetti nit buñ buuxee sax mu dem mais bu dee jigéen bu xas dugg ci néegu sëy mooy camion camion bu paan ci koñ fukki nit buñ poussé du dem. Mm. te góor am ñaari doom ñetti doom ba say ween daanu pour ñoom naqar rek nga mm. war a dund li ci des. Mm. kon man ma bokkuma ci yooyu de. non mais kenn du ci nangoo bokk. bo ci duggé ba paré nga ci doog bok mais fimné ni gor go laaj mu né la bokuma ci wa légui ban gor mo ci bok jigen ñan ñoo leen nakara naqara gor ma yow taxaw ma laaj la taxaw ma laaj la dara sax lu xam fayda yow no tuddu di sax Babacar Seck Babacar xanaa gisoo babakar dal yee tax daal yee taxoon manuma gi tudd wa dal daal ko leeral gis naa ko babakar non ay kab la ay kab la ak ay ak yéré gor rafet na sha allah non man mom bëgg na kab de joxe ñaar kab de yow li ngay wax yow gëmo ci dara góor ñi melni ni yow danoo bëri exactly li ami li ami lim leen wax yépp dëgg la yow da nga faral ami rek da ngaa faral ami rek salut babukar yow ya, babukar taxawal Bakar Bakar la lay hoye ñun Bakar la ñuy wax waaw sa man Saalum Saalum la de Bakar lañ may woy man mi mu ngoog Bakar mané waaw yow gannaaw Saalum Saalum nga sax xam nga limay wax ci ni lo xam ci ki ak masam ñi nga xam ne ñemewuñ jeeg ji ñemewuñ jànq ji mat ji nga xam ne dootuñ gune gu ndaw ndax xam nañ ne ñooñ duñ nangu nonsense tax ñuy takk parental yu ndaw yi ñuy takk soo waxee ñu ne boo ko takkee ku duhee gune nga yar ko yu noo nangam nangam loo xam ci ñu bon ñu bëgg gune ta bon ta du xaddi góor ñi le <laughs> waxal ma ñëw ma soo gis góor gu bëgg góor gu bëgg gone day bëri jabar ndax gone gi bu xasee màgg rek moo ci geneen gone gone lay wër Eh, xaaral non non def leen ndànk def leen ndànk ma tontu leen def leen def leen na man man laa wax de man laa wax de mënu maa yore ñaar jabar parce que man yow sa bos gën a bon yow sa bos moo gën a bon yow gone nga bëgg te mën a ñaari jabar kon yow boo bu màggee nga teg ko fa uti geneen gone non non non non non yàlla tere yow gone ngay <laughs> sëy sëy dafa am àq sëy dafa am àq dafa am àq daal daal <laughs> munoo jël jigéen indi ko sa kër. munoo jël jigéen indi ko sa kër ah mu jural la doom di la toggal di la yàkkal te sëy lu bari jigéenu Afrique yi dañ koy def ta bokkul ci sëy fóot bokkul ci sëy togg bu ko neexee du ko def bokkul ci sëy yaa ngi dégg jël jigéen indi ko sa kër mu di la sëyal ah. di sëyal sa yaay mm. di sëyal sa papa di sëyal sa mag bu jigéen ah boole kook yow dong la am ci wéruwaay nga war a wéru ci yow nga défendre ko doo ko défendre mm-hmm. jox ko mu indiwaat ci kër gi di leen teral ay gañi laa ki tisi lu ne mu di ko joxe ci kër gi te taxul mu am jàmm loolu jigéen mënu ko attanu ko. exactement eh, eh, eh, grand alors grand Babacar kenn attanu ko. doo xaaral dara ma waxal gis nga benn waay mu naan ma sëyi Sénégal lu tax mu gaaw a tas ma ne ko jigéen ñi ñoo commencé yeewu gis nga jigéen ñi sëyi li koy tas jigéen ñi ñoo commencé yeewu moo tax sëyi di tas jigéen ñi bu njëkk fañ defoon. laa ilaaha léegi nag dañoo commencé yeewu. sëy ñaar a koy def benn nit du sëy sëy ñaar koy def. laa ilaaha yaa ngi ko may boos de yaa ngi koy may boos de. non sëy ñaar koy def. sëy ñaar a koy def man yaa ngi ko yaa ngi ko may boos de. sey ñaaro koy def góor ñu boo waxee góor ñi ñu ne jigéen mooy jur wàlli nee na jigéen mooy jur wàlli waaye gis nga <laughs> ñaari bëy ñooy jur bëy ñaari xar ñooy jur xar ñaari pitax ñooy jur pitax jigéen kese kese mënta jur wàll yu wàll yu da nga koy jur ak góor gu baax góor gu baax ak jigéen ju baax ñooy jur lu baax ndax ñaari xar ñooy jur xar ñaari bëy jur bëy eh. am sa jabar nga teg ko ne moom na baax yow na nga mel na la neex ngeen am doom ju leen neex mënta ne góor ñi ñoo war a bàyyi ñu nekkee toroxal jigéen ñu war a léegi nag yaa yaa ngi war a ba yaa ngi may ami boos xaram ma wax la eh, si lu nga wax dëgg la leen non man ami li muy wax ni dama cee ànd ak moom man suñu kër man amaguma woon soxna maa nekkoon suñu kër waaye samay jabaru mag man maa nekkoon seen avocat kenn du leen laaj ndax dafa métti nga jógee sa kër ndey ak sa kër baa ñëw sëy ci kër gi ba pare ñu bëgg di la piccoo mbaaloo dafa métti Sénégal rek ngay gis jigéen ju ëmb sax te du bëgg doom ndax boo amee doom ñu ngi lay xaaral di la kàmbal bis yoo xam ne naan nañ la tagg duñ la tagg ndax moom yaayam dina fi indi dara du fi indi dara ah yow yaa ngi ëmb war a wasin ci jàmm jot sa bakkan ah ngay xalaataat yeneen yoo xamante ne nii Sénégal jigéen day xalaat ba dee Afrique sëy bi day dem ba mu jigi dootu ko jar jigéen ñi sëy li tax muy gaaw a tas ñoo dañoo commencé yeewu ku ci yew ya, yu bari doto ko nang ndax bu njëkk ba da nga daan sey goor mu war <clears throat> la jox dépasse mais tar jigéen ya? wala nga jox ko magam bu jigen nga doog cee jot sa soxla mais tar jigéen sey la de tar jigen sey la lool faj loolu day jeex jigen boko ko takkee da am response da ngay mat goor day mat goor jigen dang nga koy téye grand babakar mais lu nga wax deug la mais tar jigen sey la goor tam defar na takk jabar n'est-ce pas waaw mais instant mi lu lu nga wax lepp deug la mais xam nga instant mi comme sey tas bu bari bi da ngay gis doomu adama sey ñaar fan ñetti fan rek mu ne ma dede nekul ci mais ay andori bon dañuy def lolu lolu nekul ci kese nekkul ci jigen kese de gor day fen jigen tak ko su xame fe man mom man mom sama bop la wax de sama bop la bop la wax de ñaanuma yalla di fenal jigen parce que so waxe jigen nii nii yag yag dina xam du dégg mais loolu du ñëpp du du ñëpp quoi léeg-léeg nga gis xale boo xam ne da ngay bëgg a jot ci moom te wér na la ne maanaam boo ko waxee sa sa sa parcours du ko neex. Mm-hmm. Impresiento. No, ese talle dos, hay rojo ay hay blanco y negro. <clears throat> ma ñëw. Ok, ok, ok. TikTok dégg leen bu baax baax ki grand Babacar lu mu wax mais xam nga doomi aadama moom mooy loolu nag jigéen bu baax yombul góor bu baax tamit yombul ñu bàyyi bo ami ñëw

amin amin yi mu leen yi muy wax yëpp góor am nay xama lu nga wax dëgg mais vraiment kontaan naa ci yow mais am nay xamante ne moom mooy loolu nag ci côté jigéen ñi lañu ko parce que man gis naa kaam bu xamante ne fii la jigéen bi fii la nekk moom Gambien la. mi ci ngeen cualquiera arriba, de la pesca. moom gis benn camp fi ma fii la nekk fii la nekk jabar dafa ko indi fi Gambie la mais dafa ñëw fi bu kii bu waaw fii waaw ba mu dem ba mu jël ombu mais mu dem hôpital mu ne bëggul ëmb bi mu yàq mu yàq ëmb bi léegi nag mu ne moom bëggul nekk kii bi xam nga fii loi moom jigéen moom dañuy kii dañuy fonk jigéen ñu ne ko jëkkër bi su fekkente moom ki jigéen bi mun a du ngeen nekk après ñu wutal jigéen bi appartement après mu mu bàyyi jigéen bi mais jigéen bi instant bi nii sëy na trois fois mi yow nga indi sa jabar fii te balaa seen Afrique Gambie foofu dañoo amoon ñaar ñaar doom la ñaam mu ñëw fi mu euh, waaj bu ëmbal ko mu yàq ëmb wi est-ce loolu baax na. ngir lan ngir alal adduna <clears throat> ma ne man kan damaa gisoon kan fii Italie fii mhm. fu ñu dëkk fii benn euh, Gambie dafa indi jabaram fii mhm. mais benn appartement laa ñu nekk fekkente moom waaj bi amul kayit jigéen bi tamit amul kayite mhm. waaw léegi na waaj bi après mu ëmbal jébér bi mu dem après ci hôpital bi jébér bi mu ne ma bëggul ëmb bi dafa bëgg yàgg ëmb bi mu yàq ci ëmb bi après léegi mu dem ci kii bi waaj bi mu ne ma mais bëggul nekk ak jëkkër bi après ñu woo jëkkër bi ñu ne ko après léegi nag day jël sa jabar bi ñu yóbbu ko beneen apartement dégg nga xale ah. josi c'est vraiment macha allah mais instant bi ne moom xale bi jigéen bi sëy na trois fois loolu doo si mais depuis mais léegi nag depuis Sénégal eh, eh, Gambia ngeen am ñaar doom mu indi la ko fii waaw taxawal xam nga ñun lu suñ problème waaw ñun dañ dee gis tey pro ñëw par exemple man mm. ma ñëw suma sëy bi tas ma ne la suma jëkkër dee naa nga ma naa jotee naa ak moom ba ba bi tas na waaye fekk mm-hmm. yeneen yi nga xam ne moo waral nangam bi nga xam ne moo tas sëy bi yeneen ñi nga xam ne moo newoon si gannaaw mm-hmm. jigéen joo xam ne séyoon naa jëkkër ji comme nu ma leen ko dee waxee si vidéo yi saa yu ne rek man dama leen dee wax ne yéen tamit da ngeen di takk jigéen ju leen bugg yéen tam da ngeen mën a takk di takk jigéen joo xam ne buggut leen jos bi ko jigéen ji dafa rafet wala dafa mel nii wala dafa mel naa loolu xam nga ci koy góor nit ku ñuul la nañ waxante dëgg da ngeen nekk jigéen ju leen bugg ngeen xeeb ko takk jigéen joo xam ne buggut leen loolu mooy problème bi mais abi depuis Afrique depuis Afrique la de taxaw dama waxal la pare loolu jigéen koo ne buggut la torop du la mën a muñal yenn yi góor sax bu la bëggut torop du la mën a muñal yenn yi te ñun nit ku ñuul suñ problème mooy rek see koo xam ne ñu number one suñ problème ida nit ki dañ lay arañal sëy bi ne la jëlal kii bu sëy mu nekk sa jëkkër wala jëlal kii mu nekk sa jabar wala yow mu neex la rek nga sëy ak borom waaye léegi leneen li mooy su fekkee ne borom dafa xam ak jabaram prob jëkkëram problème ba tax bu gëtu bu doomam bu gëtu ta continuer di xam doomam bi ko yaakaaratu góor gi yaakaaratu sëy bi moo mu yàq biir ba mbala ah moom ci boppam fa xam yeneen yoo yow du la ko mën waxal yëpp wala yow kala wax kaa bi du la mën wax yëpp fa lay wax ne rek kii jëkkëram ba indi bi ba pare mu biir bindi biir bi bàyyi jëkkër ji fenes liñ di xat yi ba tax mu ñu ko xam mais alors lu nga wax lu nga wax la mais depuis Gambia la ngeen am ñaar doom bu mu indi la fii mu ëmb la nga yàq ëmb bi problème sëy yu da fay yàqu bu gor ga tukke because of mbokk ye eh? yeneen ak yeneen xam ne ñoo xam ne ñu ngi tukki fii ñu ngi kool seen jabar yi bu set dëkkuloog ñoom man gis naa ko xam naa sama benn mbokk bu koy def ba man ma jël téléphone bi wax ak moom ci téléphone bi fekk maa ngi woon Afrique time boobu balaa corona waaye am na fii ma ne ko sa xàq jabar da nga ko xamee mu yire jabar ji di kool jabar te jabar ji duy def dara waaye fu jabar di nduggi marché sax fay def whatsapp call marché sax bu ko lee di whatsapp call ba ñib si non xam nga xam nga lan mu waral loolu foo demoon caga bi nii nit ku loog jabar ji di ko xas jabar ji fay jooy ñaari fan du lekk di fa bugg jëkkëram tëju di jooy ñaari fan fa koy def ba du mën a ba bugg a dee léegi xam nga lan ma waral loolu yaa ngi toroxal jigéen ci ay xat depuis afrique soo ko indee problème bi fay gën a yokku non xam nga euh, fiir loolu moom fiir la loolu moom dafa fiir mais xam nga fooykat dafa fa ko ñëpp ñu ci moom la men loolu mooy problème boobu nag parce que instant mi est ce que est-ce que xam nga ne maanaam problème ba nit ci biir li la ami wax noonu yëpp ndaw si bu la ko expliqué woon yow fi ndaw si nga mere mais bu la ndaw si expliqué woon li am ci biir mën ngaa mere waa ji mm-hmm. ndaw si mën naa am omb mën naa am loolu moom baaxul waaw ki nga xam ne da ngaa sëy ak moom ba am ñaari doom ngeen waxtaan ba juboo mu ne la dama lay indi ma nga tukki nga tukki si ñetteelu doom mënoo ko koo bañal li tax mu yàq ko du la ko wax ñetteelu doom ba moom bañu ko ndax ñaari afrique la am dom afrique la gën a métti te amal na la fa ñaar mm-hmm. maanaam léeg-léeg histoire day am ñu àttee <coughs> benn côté. fii dama fay gisoon benn waay yoo xam ne man mi tey bu ma gis may wax sama vidéo man su ma doom ji ndaw ji aadi ñaari góor laa wax ku jigéen ku am fukki at ak ñett dama dee wax ne bëgguma xamaat doom waaye su ma séyee na góor gu ko jarte góor gu ne mukk naa xam doom danaa ko xamaat jigéen noonu la dee koy amaat jigéen daf dee xam juróom maanaam xam doom bi góor jigéen la bëggee te yow gisee ku bëgg rek tam lu ne lay def waaye su yaakaaru sëy bi bi ko nekkoo baax tamit lu nekk la dee def nañ waxante dëgg waaw góor dina trompé jigéen jigéen dina am doom sax toog ne bu ma yëgoon duma ko am ak kii exactly dina am doom dina sëy am doom sax ne bu ma yëgoon duma ko am ak diw ndax maanaam nam ko xamee woon ak nam mujj mel moo dut bokk waaw comme ça góor rek góor tam daf day xam doom ak jigéen ju bon yeen kon waaw moo tax dafa am sama waaju nekk fii daf ne moom jabaru tubaabam moo ko jàngal ni mu yoree jabaru Sénégal Afrique gis nga ma laaj ko lu tax mu ne ma jabaru tubaab ji fii maanaam li muy daj ci jabaru tubaab ji xaaju ko woon daj ka ca ka ca Sénégal. Mm-hmm. te ku tubaab gi bu la toggalee yaay raxas. Mm-hmm. wala yow yaay togg. yaay nduggi togg ba du baax sax. togg ba du baax maanaam bu defee bii yow yaay def ba ca des. Mm-hmm. mu ne mu ne moom loolu xamul woon ne te loolu jigéen góor gu ko defal jigéen dangeen yàgg ci sëy jigéen joo xam ne bu jàppee fii nga jàpp fayee di ko muñal soo soo te moom kii da koy def lu ko naqadi mu mu mu muñ ko voilà. non xam nga lu nga wax dafa am solo mais jigéen moom su fekkente dafa def dërëm yow tam di defal dara ma loolu moo tax tubaab yi ñu ñu ma kontaan ci tubaab yi parce que tey moom su fekkent da nga nga ñëw togg mu ne ma xaaral ma raxas bool yi tey nga togg suba mu togg mu du mu togg mm-hmm. loolu yow loolu foo ko gis Afrique foo ko gis Afrique non Afrique loolu moom togg yëpp jigéen la non vraiment vraiment à vingt personnes yow kese yay togg non mais am na ñi nga xam ne am na ñoo xam ne nii ñook seen jabar yi kese dëkk ci seen kër yi pourtant ñooñ dañuy xëy defaral seen bopp ndékki mhm. bu fa yaay raxut mag bu jigen raxu fa dara raxu fa da ngay xey sa jabar dem marché wala mu yobbu xalé yi école yow nga xey bëgg a dafa defaral sa bopp ndékki mais bu dé ci kër gu mag ngay sey da ngay xaar sa jabar mu commencé ci suba tel gi di mhm. di liggéey ba ba muy teud du noppal té tam té so so té ci ci guddi bi rek do bay mu noppal loolu ci problème la rek fu mu toll di non bu dun loolu sax manam yow sa rak yu jigen ak say mag yu jigen ak say yaay sax boo leen doon yemale ci sa jabar di leen xamal ni kii doomi jàmbur la su ko defee sax moom dana mën a mais am na si góor ñoo xam ne dañuy bàyyi seen jabar seen yaay yi seen mag yu jigéen yi di leen def sëy li ko gën a mën a naqadil mooy xaw ma njëkkee la xaw ma njëkkee moo gën a mën a naqadil sëy waaw booy booy wax balaa ngay pare waaw loolu loolu mooy gën a naqadil sëy ndax yow doo yor sa doom ji jigéen ci kër gi doo ko fóotloo doo ko raxasloo doo ko loo nga bàyyi ba doomu jaga jàmbur xëy si ñëw sa kër nga bëgg koo liggéey looloo xam ne doo ko defloo sa doom. Mm-hmm. subhanallah wala bu koy def wala bu koy def doone sa doom na dem jàppale ko. baat baatu yaay sëy rek lañu koy wax yaay sëy yaay sëy yaay sëy. nga gis ko takk jabar tam tam goro yi li ñuy wax sax goro yi isbil woos goro yi soxor yi dañuy wax ne man ma daan sëy ma daan bojj di dem tool di taxani di di moo gën a métti mais loolu bokkul parce que jamono ju ne ak la ci xew ku ne ak wërsëgam. fañ lay xañaane jàmm ji nga ne nii parce que ñoom nee nañ parce que c'est Afrique man du ma comprendre quoi dañu liggéeyu nday añu doom mais ji doom ju jigéen ndayam mën na koo liggéeyal ba mu sëy ci kër bu mhm. baax. am sëy bu koy gisee noonu. liggéeyu nday añu doom. mais loolu duñ ko bëgg. loolu duñ ko bëgg mais gis nga xale. xale ñëw rek ñu noo jël doom ju jigéen def ko ci teraanga mu ne noonu ñu fañ ci xañaan bay waaj a dee wala nga diko contrôler lum sol nga laaj ko loo ko jëndee ku la jox ak mm. ñaatal goro kenn du ko contrôler goro kenn du ko jëw maam la xamante dañuy fiir quoi ko déggee do la respect goro yi fa ñi xam nga fa ñi am ay doom yu goor yu bari machallah ay ñaar ñett yu no wala ñett sa yenn yi kenn ku ne xam jaba fa ñi seen nak sa jabar ñu xam nga jabar yi fa ci xam yo xane fa fañ naa te fa ñi nekk di jënd ma baax di jël goro bi def ko xarit diko jëndal ay or ak diko may xaalé fu mu fonk leen su dé goro yu naa yu gëm halal yi léegi goro ba fay jël kooka teg ko ci kaw ñeneen ñi nag def ñeneen ñi ñuy xaj façon géem bu bon bu ne xam ne ci community bi métit yi rek moo ko waral dóor yi ñuy dóor buñ doxee gu nekk toroxtaane gi ñu dund buñ doxee gu ne moo waral ñun ñëpp ñu mag soxot ta bon ta mel nii Allah <laughs> <laughs> eh. <laughs> ba pare nag am na beneen bu ci nekk nag am na beneen boo xam ne am na góor ñoo xam ne ni seen baay yore woon seen yaay noonu la ñuy bëgg a yoree seen jabar. Hmm. am na si paa xam ne hmm. danoo tàngoon di jàpp seen yaay di leen dóor di mbugal yow loolu nga bëgg ko def gone gu jigéen foog ne noonu lañuy yore jigéen. koo ko def comme sama maam nag comme sama maam bu góor. waaw hmm. loolu loolu. comme sama góor ñaari jabar laa amoon. ma. la laa ilaha tey sama maam am na eh, trois fois seex yi waaye yëpp kiiwul mais ma paa boobu akamu na door. Pabila, Bilal door jigéen Paa Bilal moom ya ya ak a mun a di naka ak ba Paa Bilal bo Paa Bilal dama gis sa no léegi Syria Syria Syria ya wala la non non non mais xam nga eh, comment dire sama mam. dafa ñaar fois yi rek moki kii oh. mam maam bi su la Mm-hmm. non vraiment da ngay xam ne gars vraiment vraiment ay kii lañu ko ay jàmbaar lañu ko. non non mu jëm baax na. mu jëm bu macha ma paa boobu. ak am alal fas yi nag yi béy nii. laa ilaaha illallah. paa eh, bi dee na bu yàgg. depuis 2014 non am bi non xam nga ma am na mag yi boo xamante tension tension moo tax mu gaañu quoi mm-hmm. tension xam nga moom mooy dégg non non non non dafa magat de amoon na ay téeméeri at ak de mm-hmm.

ne bitim réew taxut a dokku baax de ndax doomam yi soxotam googa doomam yi jëluñ ko di ko non non doom kenn soxor kenn soxor doomam moom macha allah beneen bi mu ngi alman bom loolu moom macha allah eh, loolu dara soxor non moom soxorul vraiment vraiment dooma lu ma ci xam sama najaay kenn soxorul eh, non moom non moom ay yëpp ay tubaab jabar tubaab la ñaam alright waa jabar tubaab kay du nangu yenn nonsense yi moom ah, kon jeex na kon ko dóor moom du dóor rek sax yeneen noonu tamit duñ ko nangu sax waxuma la ak dóor tubaab xam loolu moo ko yàq kon baax na man moom ñaane ma rek ma jabar boo xamante ne moom soxorul <laughs> suma plateforme ñëw moom mooy lool nag yow xam naa ne fu nga jógee <laughs> ndax sa ja yow fu nga jógee xam naa ne sa jege sa jegeer moom mooy lool nag moom mooy lool nag <laughs> jëkkan ci loolu moo tax su amee sa jegeer su la déggee sa voix rek dana wax xaaral ma dem am ba angi baa ngi man akama romantique bu ma gis lii de gi nga nit ku bëri wax benn problème man akama te su ma. non nit ku ba non la non la non la mel si. waaye su si la si la foo foo foo hmm. foo ne. man foo ne xanaa ak ñaata xat nga am ba xamagoo jabar ak foo ne. la ilaha illallah man xale bu tuut la. ah ñaata at nga xam bana bu tuuti yow xale dana xam li nga xam. maa quarante deux ans. ñaar fukk. ñeent fukki at ak ñaar. quarante. what the <laughs> léegi yàlla nga xamoo jabar ba tey fañ lay man seen mbokk non non non seen mbokk laa bañ nag. xamagoo ba tey. nga yong <laughs> man seen mbokk laa bañ <laughs> gaa yow moom ngeen tëdd nit ñi nga takkutam lan boo tey dooy tëdd nit ñi at yi yëpp neen def amin ça va jàmm rek dégg ma sa wax de yéen ci bul dégg ami de bul dégg ami de ah ami nee na say mbokk lay bañ nee na say mbokk lay bañ looloo tax ah war naa mën a am jabar moom ba eh, yor masala non maa ngi itali maa ngi itali itali déedéet xam nga lan la xale lay wut xale bi mu wax sank xale la bëgg di ko nax. <laughs> non non non non non xaral no xaral ma wax len non du question xale lay wut xam nga doomi ah. euh xaral ma wax la doomi adama so nekké ay yeneen yi rek bul yëkkamti yëkkamti da ngay ki parce que man bëgguma dund Europe yëpp man luma bëgg am rek suma ko amé rek damay dem bala 2024, bëgguma tok fi bu abada suma amé tikki rek damay dem amna projet bo xamantene ne def senegal suñu soté rek damay dem té duma delat fi loolu la bëgg nak non parce que non fi mom su fekkente jabar la tak na jabar tubaab bu yàgg parce que damay ànd tubaab tay ma la six mois su sept mois ma bay ma top kenen man loolaa men mais bëgguma euh, toog tokki fi mom vraiment non 2014 bu neexee 2024 la bëgg ñibi nga ne non bëgguma takk tubaab da bëgguma takk tubaab man yàlla na yàlla musal ma takk tubaab tubaab uh-huh. non non non non non man tubaab tubaab loo xamante ne moom déedéet déedéet lu ma gis tubaab yi vraiment déedéet parce que man si cuisine damay togg dégg nga non man damay liggéey restaurant te bu may sama sama métier non xam nga yanda xam nga tubaab man jikko tubaab neexuma bas façon diba tubaab danga ngay yànnak loolu xam mun nañu nattal xam nga lan mooy nattal dañu mun na fen kii lu mu gis rek wax ko kii jigéen kii amul indépendance lay wër suuli boo koy tuut jigen ju amul independence lay wax bu neexee yàlla inshallah mom moom nee gone la non non non xam nga man dama bëgg ah jigen bo xam loko loo rek mëna waw loko wax mëna waw waw lool lay wër mom nee gone la bëgg jigéen non suñu kër rek yàlla bo dajee sama mbokk yow non <laughs> ah dëgg la de <laughs> non penda hmm? penda billahi So bëgg am jabar bu baax demal demal hmm. afrique demal senegal Mhm. waaye jigéen moom dong du baax jigéen ak góor yëppay baax yow da ngay baax nga ut ku baax jigéen jigéen lu mu baax baax te amul góor gu baax du dem du dox jigéen bu baaxee dana ko fekk mu amaale góor gu baax dëgg la loolu yëpp dëgg la mais jigéen moo war na yar góor jigéen moo war a yar góor loolu moo tax ñu ne soo waaw waaw waaw mais loolu moo tax am na jigéen boo xamante ñu soo muñee jigéen moom soo muñee lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg billaay sa coono bés nañu sa coono mu jeex. maa am na lan lañ lan la ñuy war a muñ. kon nan kon lu ñuy muñ ba coono di jeex. lu ok merci beaucoup am na parce que man dama gis doom am na xamante ne dañuy toog di bàyyi seen jabar Sénégal ay quinze ans du ñu dem loolu yëpp ay àq la. mais loolu moo tax man bii dama bëgguma takk sama bëgguma bëgguma takk sama jabar bàyyi ko di dund coono wala. am nay xamantene dañu mu dem foye mu am dom yo mu am doom rek nga fase ko lool la bañ. wa léegi nga tak ko indi ko fi nga nek ngeen nek boko bëggul bay ci ginaaw soko indi man soko ko nga indi ko fi man tam ta arrangé wu ma man duma def lool man dama bëgg suma sama porcé bu baxé suma ñibé sénégal dotu ma ñëwaat ma tak sama jabar suma démé demee liggéey sama magasin mo wacce rek ma ñëw kër ga jeex na c'est tout. góor ñu bëri bëgguñu yóbbu seen jabar yi ci réewu hmm. Ah. parce que donc dañuy sensé dañuy gaaw sensé dañuy gaaw sensé. dem leen Milano parce tubaab yi ni ñu joxee àq ak yelleef jigéen ñi moo leen arrangé wul moo ñu arrangé wul. loolooy wax ji ak yelleef bi tubaab yi jigéen. Penda Penda boobu nag. bu leen dugg wax boobu xam naa li ma lay wax. dëgg la ak yelleef bu tubaab jox jigéen moo arrangé wul góoru Afrique moo tax des boo ko indee rek naan dafa sensé. waaw góor bu soxot du ko mën non man yelef bi ñu am yu baax yi rek nangu ñu soxot mm, mm, mm, mm-hmm. ñu bëgguñ ko ñu soxot ñi non sorry la di ñu soxot ñi bëgguñ jabar jabar du mm-hmm. sa jabar fi mm-hmm. wala amul liggéey yaayam di ko woo téléphone mu ne sa morom yëpp ñu ngi am fay xaalis yow lan nga nekkee lu tax kiiwul loolu tamit day indi da indi bopp jigéen bi di lu xamante ne baaxul. Mm-hmm. waaye yow soo fekkente sa non il ma xalaat lool no man bu neexee yàlla bu neexee yàlla moom mun naa la de jëlee délai suñu tase fii rek ma woon sama jabar bu neexee yàlla incha allah mm-hmm. balaa ñuy wax balaa ñuy wax décembre. Mm-hmm. deux mille incha allah danaa takk jabar. that's nice I'm wishing you non parce que bëgg naa am conseil parce que man sama conseil kiiwul quinze jours la ñu ma jox wala un mois un mois munu ma def dara. Mm-hmm. oui mooy mooy loolu parce que mënoo am euh, quinze jours nga da ngay dem takk jabar mënul nekk un mois nga da ngay dem takk jabarul da ngay def six mois conseil waaw wala at conseil. mais sa ligue contrat man sama contrat mayuma ma dem tok senegal et sa mené 3 mois wala 2 mois patron bi du nangu loolu. Mm-hmm. parce que amna contrat bo xamantene dañ lay def contrat bo xamantene contrat bu xamantene du jeex mais xam nga lolo mom 15 jours nga am ko ki 15 jours road 15 jours bi passeré do mo moom dara. Mm-hmm. il faut nga démissionner démissionner bobu la il faut. Mm. parce que yow lu nga dund nga ko. waaw ba xam ko ku ko comment fii di laajte tax ma man man naa ko waxal lu tax ma divorcé divorcé yu bëri te man loolu wax naa ko si ay vidéo ba sonn ba nit ñi dañ ma ko day eh, parce que loolu nga dund. et eh, alors. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu mooy problème bi nag xale bi ngay wax ne loolu moo baax. non man muy non man xam nga loolu loolu non non loolu yow wax la da ñaan am non. non xaaral ma wax la <laughs> yow waaw non dëgg la mais non non non du question bul takk xale bu ndaw bu xamul dara da nga xool mag moo xam ne ku dëgër la <laughs> nga nekk ak moom penda penda penda loolu wax la loolu wax la mais jigéen da ngay tàmm mm. da ngay tànn jigéen da ngay tànn waaw waaye mun nga xale bu ndaw ngay dem xoole ji tànn non mun nga am xale bu ndaw mun nga am lu xamante ne vingt cinq ans mun naa moom du la bëgg nga bëgg ko ah. mun naa du la bëgg man moom du ma takk ku ma bëggul nag du ma takk ku ma bëggul moo tax nag léegi nag da ngay xool mag moo xam ne di nga bu si dara bu bu la buggee sa dafay ciiñ maay bu magee parce que juddoo man libe xam nga tubaab li ñu wax liberta liberta man damay jox sama jabar liberta lu mu neex lay def mais na tek ci yoon nga ne bu ne soo ko takkee nga man koo yar eh, yar mooy lan lan xam nga lan mooy yar du def lu bon du sen du waxantu non nga man ko do yar ko ni kuy yar gune gu am ñaari hat exemple yo leg lo xaram ma jox lo exemple yo tay tay so amé sa sa jeker dana la yar par amna yeneen bo xamantene da ngay rouss def ko wa it's not call yar comme yo ni ko waxé tak gune pour nga yar ko waaw foofu wuutee nga si yëg ni koo xam mag la xam lam xam nga xam la nga xam kenn ku nekk def lu jaadu su moromam defee lu jaadu nga wax ak moom bébé nangama nangam dee foogoo nu defee ko nangam wala nangam su ma fekkee doo ko def loolu ko wuutee takk ku ne di ko yar ah you know dëgg la eh, ami Eh, eh, eh penda hmm. penda lu ma la wax ni dafa am solo mais xam nga moom am na bu xamante yar da ngay yar sa ki bu xamantene ne du la wax vraiment vraiment so bëggé def lu bon so xalaté sa wax da du def lu bon n'est-ce pas mm-hmm. mais am nay xamantene do dem takka sa ku sa morom yaay comme africain lu ñu def fi Europe nga dem tak tak ma eh, tuba bu xamante ne de du tak man suma bëggé tak takk bëggé tak xala bu jigen na am 2300, 2200, cent 5 ans c'est tout taxawal ma waxal la gi nga nit su la nit ko ragal mm-hmm. su def dara su koy abuse koy ndax du mm-hmm, mm-hmm. nit ki fa la respect respect la mm. yow respect bi respect sa bugut tax mom su gisee lo xamne li fay yak suma digeete suma jëkkër wala suma jëkkër suko suma ko defee du ko neex du ko def da koy moytu waaw ko pare war a nit ku baax koo xam ne fay ko fam def lu bon ko koy ko fam rek moom mm-hmm. El nene un negro que. El lo que quiera que era. Un negro que era. Ella necesita un negro, no un blanco, porque tiene chiquitito. Como ni suñu waji bi bu deegu ne diñu door ba suñu xalaat ko bi so. sànni pot waaw loolu mooy fekk da jël nit ki fitam ba ñemewu la. waaye du loo xam ne waaw lu dëggu la ci moom. Mhm. du loo xam ne xëy na cër bi mu la jox wala mbëggeel bu mu nekk ci moom ak yaag moom seen diggante bu loolu lay sànni. loolu baaxul waaw. <laughs> non eh, non non non no. kon kon duma takk xale lool nga wax kon duma takk xale No nga <laughs> no no. No no. nit taba guney guney non non non non ñeen fukki ak ñaar fi ne bala nga ñibi am ñeen fukki non non man wax naa la ko nag jël naa décision damay ñibbi takk jabar insha mais sama jabar moom vraiment bëgguma bàyyi Sénégal morom nga man ñeen fukk ak benn laa am waroo takk gune gu xamul ñaar fukki xat gune goo xam ne xamul ñaar nga dabul xatam ya ba teg lu teg mais xam nga instant bi ne ba am na am xale jigéen am na xale jigéen ma am na xale jigéen boo xamante ne say pa say paa yi ñoo gën a ñoo gën a neex instant te yéen li ngeen di takk gune mooy jigéen du gune taxul jigéen yaa xam dàq waaw loolu dong la de waaw xam nañ jigéen yoo xam ne seen jigéen yaay ñu tey comme góor yaa ni wuutee ni góor xamee bu bu bu mel nii ak bu ak bu Chinese moom la xamee jigéen yoo xam ne seen jigéen yaay fa pindoo xóot xam jigéen yoo xam ne seen jigéen yaay xóotu fa gàtt xem yow soo tombelee jigéen joo xam ne fa ni kàmb guñ jaale boo ko takkee it ñaari fan kàmb ko ne xam nga lan Atene Meloy por favor. Waa amee ngi toj live bi kan mooy Chinese man man may Chinese subhanallah jabar moom sawaay eh nu mu tudd sax jabar mm. sawaay jabar jabar maanaam mu nekk mu nekk xale wala mu nekk ku sëy ba tas da ngay ñaan yàlla mu may la ku gën ci yow non non non non non non non non ku se man naa gën sax ki sëyagul loolu nekkul foofu <laughs> nekkul foofu ne damay bëgg gone gone gone gone gone dëgg la Babacar da ngay ñaan yàlla mu may la jigéen ji gën ci yow amin amin amin ku sëy ba am doom ak lépp ay jigéen lan man ma wax la d'abord man sama su fekkente man damay tekk ñaareel non sama jabar yëpp do déedéet ki mu tasse mu tasse ma dama de de de de. man xala bu xala bu xamantene musul sey damay dem takk bobu may indi ko sama ker wa ñaare bi rek boko takke to yoro woko it dana bok ci ñi tas rek. wa dina tas de wa loolu la de ndax ki tass goro tax muy tass jigen taxul muy tass ki musul sey. ki tass non ba yor doom musul wona sey de dañ ko jël mu sey yow it ki ngay jël. léegi nag léegi boo ko téyewul dana bokkaat ci ñu am doom tass legi nanguna

moo ngay gune gu fatt gune gu fatt gu tuuti bu ko defee yow Chinese bi nga xam yow fa yow dara yow <laughs> man laa ilaaha illallah <laughs> ay jooy yaa may rek laa ilaaha illallah amin yow Chinese nga musiba Chinese nga léegi boo doyee jaay sama wax di jot na xaaral ma dem gontu dawal jërëjëf waay <laughs> merci ami waay waay ok waay merci waay xaaral ma dem gontu waay merci beaucoup ok incha allah wallaahi lii ree naa ba a dee waaye gëj naa ree yi sax. dëgg billaay ndeysaan loolu laa dee xalaat saa wu nit ni foofu la dee dem ne Chinese lañ moo tax ñemewuñ. waaw loolu la dañuy ragal jeeg bu sëy ba tas lool moom dëgg la man lool loolu li nga wax noonu dëgg la dañuy ragal jeeg bu xam ne kii sëy na ba pare. waaw loolu la ñu foog ne su fekkee duur jeeg sax like jànq ji nga ne jànq jeeg la ñu noo jànq ju xam góor ji. fa ñuy xam ne ñoom ñëpp la seen jigéen yaay ràncang xamuñ ne am na jigéen yoo ah. xam ne su sëyee ba tas wala mu nekk nekkul jànq sax jigéen yaa xam gi num moo moo fatt rek moo correct rek mm-hmm. surtout bu fooyee wut boppam fay wut nekk mm. nga xam ne jigéen yaa am gi fa xóot fa am jigéen ñoo xam ne seen jigéen yaa gi fa xóot noonu la bindoo naturel yi dëgg la dëgg la fi yow boo ko takkee su fekkee ne borom xamul dara sax boo koy xéeg rek borom commencé le rampagne kàmb ga ne xambalaan hel benn guddi ko nga rek ngay kamba nga hubbeeku ne hamba lan noon da xamulu ñaari fan lay jigéen ja jigéen yaa am fa correct a fatt boo amee téeméeri at it day fattu rek What? Not that. Comedy mi tara ñu wax loolu ne. la li tax boobu ba léegi mu toog mu toog boobu ba léegi xale lay wut am lu tax muy wut xale sama classe gi ju tax ñu dem dëkk bat, dañuy dem àll baak fu ñu dem waaye fi mu jamono ji ba toll foo xam presque mu bàyyi la fa mhm. dafa bari fimne ni ne yi tas dafa mhm. bari ndax jigen ñi mhm. nangootuñ la seen yaay yi nangu woon ko won ndax seen yaay yewuñ won jigen ñi dañ leen don tek dañ leen don tek lo xamanteni ni alquran indi wu ko yalla waxu ko yonent bi waxu ko góor ñi la nekkoon def ñi leen ko don tek jamono ji man awma jabar way maa ngi ci temps instant yi mom soreetuma insha allah ah yow de ñaanal ma góor gu baaxee yow fa mel ni góor gu baax nga moo tax nga wax lii ci àddina si nit mm. man damaa yàgg dama yàgg dama yàgg xeexal jigéen quoi parce que yéen man ay liggéeykat bu ma la amee fii sax ngay tubaab dama lay traité ba nga xam ne dangay foog ne sax dama laa nopp wala dara parce que dama la bëggul di la def loolu naqari. liggéeykat bu ma mës a am fii liggéeykat bu ma mës a am fii bu dee tubaab soo fi bàyyee du terewul dangay ngay continuer nekk sama xarit. Mm-hmm. parce Oh, doo am dootoo am keneen man liggéeykat sax damay xëy defaral la café nga naan boo sonnee dama naan la noppalu boo bëggee lekk dama la wax nga lekk nga naan sa heure wàcc du ma ko bëgg a paase da ngay sa ñaq di di fenni fekk na fay naa la li ma fay nga dem. macha eh, allah ku baax nga. <laughs> bëggul quoi parce que damay jàpp ne man lépp lu ma la def rek day tourné waat sama bopp man loolu laay jàpp man jàpp naa lu ma def nit ah, rek day tourné waat ci man sa jabar de ñëw naa ko xund yal na la yàlla may jabar ju baax waaleykum salaam. waaleykum salaam. taa soxna si siyaar la. nga. di siar ku baax ki maa ngi di siyaar ko siar wa maa Siar lay siyaar baax maam Cheikh. mbaa yaa ngi ah, am jàmm. maa ngi naka na solo nga am ci soxna yi ba di ko non man ah gisuma ci ngaañ de man ne wax dëgg yàlla kenn du def lu ma ndax man du ma def kenn lu ko naqari rek ngay am incha allah loolu man damay jàpp ne bu la defee lu métti rek day tourné waat ci man mooy gi nag soxna si maa lay siyaar yow mu ci digg bi maa ngi ziar baax ziar waaw suñu borom bu baax suñu borom ak jigen bu mën ti doon jigen nak mom lañ lañ koy yërëme mom mo koy def mom mo koy jéem a liggéey tuuti ka ko yor man ak man ko yërëm bu baaxa baax ay na boy rek si moom ko ak la yor nak mom di caw ci suuf di caw ci kaw ha ah, di yomb de wa lo deug la fam jigen ño yoo ah. fañ mëna fenn fen naqadi deret te soxot ta bon ta xamadi te buccati ko te kenn mënu leen bëgg yow waaw wax jox affaire bi yépp foofu la nag waaye boo gisee ko xam si wax dëgg yàlla man de sama jëm bopp ku ma yor man su ma su ma su ma xel su ma xel su ma su ma xelee ñaar kese ni yow mi am nga yërmande ci man danaa la ko doublé bu soobee suñ borom waaw ñun ñun xam nga daa am nuñ war a nuñ war a dundee te daa am nuñ war a roy parce que jigéen boo ko yoree ya, iya. mu mel jikko yooyu yëpp sax maanaam nga nga mhm. bàyyi ko nànk mu dem nga dem day day gën day gën a noppale ci di ko toroxal <coughs> day gën a noppale quoi wala léeg-léeg nga gis koo xamante ni waaw lam mayoon jigéen gi ba ba ba di day def ci xelam mi ba day bëgg di ko fayuwante di ko fayuwante di ko fayuwante fayuwante googu moo baaxul ci diggante góor ak jigéen sama sëriñ du sama ko di la di ba max gis nga jigéen moom boo xasee ba takk ko ba may ko li nga même bu doon nga ko may sax boo xëyee suba rek war nga koo fàtte. ko fàtte may may parce que tax li tax li tax nga war koo fàtte boo ko fàttee ci ngay am jàmm da ngay xam yow lii su borom moo la ko joxoon nga dem jox ko ko mu ñëw ci sa kër jugee kër ndeyam ak baayam ñëw kon su ñëwee ci kër gi. doguma la yàlla bu dëkkal ko. loo xalaat si ñun jéeg gi nga xam ne par exemple jéeg gi wala even yeneen xale yi sax ndax man bu ma duxee gune ak suma mag yëpp ñun ñu doon maye buñ duxee gune te ñi ñi ñu doon may def ñun si ñun dara lu ñàkk faydale lañ doon def si ñun loo xalaat si ñun jéeg uh-huh. gi par exemple man su ma doon fiyaat ray no du ma bugg a nekk di laaj borom xaalis bu bëri ak stock bi parce que man xaalis bi is not important waaye yeneen góor yi soo leen defee noonu yombalal leen ko tam dañ dee ñëw ba pare yàq la buñ la tuyee ngay dara loo xalaat si loolu waaw xam nga jigéen moom manam jigen mom ci ci ci li ma ciy wax moy bu yombalalee gor yoonu li ha ah, fami mu mujjee mom du neex hmm. wa lutax lol tamit so yàlla rek moo tax may wax mu jafe te bëgg leen ñu def ko mu yom mu yomb non xam na maanaam mën naa woyof te du dis man na dis tamit ta baña woyof hmm. bu def farata xam nga jamono man man lima gis ci aduna bi ñukoy def ngay gis ku tak jigen taf ci mom ay million ha ah, deux millions trois millions ba quatre millions cinq te du daw un an du daw un an nga gis ko xam ne si trois cent mille quatre cent mille lay maye ah mu dem sax dàq man damay jàpp ni xanaa ci kon ci ci ki xam si jigéen gi ñëw xam dafa ñëw woon ngir xaalis la ñëwee woon waaye ñëwul woon ngir ñëw say si ndax ki ñëw ki nar a ñëw say yaakaar naa waaye nag fi ma ci fi ma fi ma ciy waxee mooy ci première ci waajur yi ndax léegi jamono ji moom waajur yi ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy porte-parole ndax boo nee cëpp rek fu njëkk a xoole lan lay def ak fan la toll ban position la toll ban lan lay liggéey ndax moom mën na booram wala mënul booram xam yooyu yëpp boo koy xool ci nit ah kon yow mayoo sa doom mu dem sëyi seeyi yow danga koo may pour mu dem seeti bu normalee mu toog bu normalul mu daw dikkaat di xaar leneen waaye man li ma gën a jaaxal moom li ma gën a li gën a importance mooy farata bi daf li xam si mooy yoon te bañ a may parce que man man nangu naa ci jamono ñu toll yi li nga nar a defal sa sa sa soxna ay million nga bàyyi ko ba mu ñëw ci kër gi bu dee man nga ko nga jël ko defal ko ci benn affaire ngeen bokk di liggéey wala moom nga jox ko moom mu liggéey te bañ a jël benn xaalis di ko gas bi gas bi si yow say million say million parce que dañ la koy tuddal di la ko tuddal di la ba say doom di màgg sax ba ñuy takk sa ndey ñetti million lañ la ko mayoon ah may nañ lay million te defoo fi dara may nañ lay million sa yaay sa yaay indiwul dara may nañ lay dañ lay koy tuddal di la ko tuddal di la ba affaire di lay mujj soof mën naa baal million million ma tuuti gis nga million yooyu ku ko joxe tegaat nga ci million teral ko teral ko say waa kër jëkkër tamit ma waxaat la loolu million yooyu ñëwaatee waaw kay tegaat nga ci million. loolu mooy coono bi mooy coono bi waaw. loolu mooy coono bi nag. problème si man million bi ko xam ne ko joxe nga joxe ko du mm-hmm. koo joxe te jigéen de na la jox ko ko million taxu sëy bi mm-hmm. ñàkk a million taxu dafa nekk ne nit ñi day joxe ay mm-hmm. million yooyu nga di yëg seen sëy tax parce que ñooñu ñoo di ñëw la seen sëy bi day siiw million yi. Mm-hmm. waaye xam na góor yoo xam ne takk nañ jigéen ci ñeent a trente a ah te sëy bi du mm-hmm. yàgg bi ko sof defu leen mm-hmm. lu soo man fooguma ne rek million moo tax sëy tas déedéet mm. waaye du million sa tas sëy ndax ñu sëy yoo xam ne tas nañ ci du jeex te du million yi loolu moom dëgg million yi tësu ko waaye maanaam ci biir néeg ba xam millions yi waxuma la mu tax de mais maanaam tuddal gi ñu la koy tuddal dalay soof waaw kay tudd bi waaw man daal li ma bëgg mooy jigéen bu demee bay sëy bu jigéen bu demee bay sëy bay bay bëgg bay bëgg góor don't worry too much man du ma dem worry too much about that because loolu bëriwul ci community bi a may ay million bëriwul man du bëri rek falaa dee focus yenn yenn yi du ma si dee focus don't worry jigéen sax ami jigéen ami don't wala jigéen valeur am ëpp na sa loo ko may rek sa digganteeg sa jabar boo ko takkee ay milliards yaa xam kër yaa xam oto yaa xam ndax sa jabar la jigéen moom loo ko defal rek sa bopp nga koy defal moom ndax sa jabar la jigéen valeur am na loolu loo ci xamul la ak moom boo ko yéenee te am nay mbokkam yoo xam ne si am nay mbokkam yoo xam si tey jii yooyu muy maye tey waroon na ko mën a xaaj di leen li mu jox ko ay mbokkam yoo xam ne si ñoo sës moom dimbali leen ko tey yàlla waaw waaw dëgg na waaye xam na góor yu bëri yoo xam ne joxewul ay million bu ñuy takk waaye ñi nga amee jànk tey ñi ñu koy jëndal ay seko naturel ko jëndal seen jabar ak yi ko ci ñoom musuma maa ngi waaw te defuñ ko ci seen jabar defuñ ko ci seen jabar ñu koy defee ko ci ñoom am na tamit kooku moom ko koy def moom erreur ah dadi man de live bi dama la bëgg jël xawma dadi nga tudd xawma naka di di ji bii nii waaye du la mëna a jël xamoo enough subscriber da nga bugg a du la mëna a jël si loolu ci bari waxal ni ñi ñu foloo la foloo leen ko foloo leen ci tudd di di bi bay jori mëno ko doo ko doo ko mën a jël maa kii tudd du mëna dugg lu mu xam matu ah ok bo bëggee dégg de grâce kooku mën na dugg waaw di ñuy toll léegi kon xaaral góor gu nooy léegi xaaral man ma wàcc boo xamante ni daa ah, nekk ma ne jamono ji ñu toll góor boo xamante ni da ngaa nooy tuuti mënoo yor kër dëgëroo doo mën a yor jabar ndax da ngay ut sa jabar takk ko ba pare say rakk yu jigéen wala say mag yu jigéen ñëw mhm. taxaw bëgg koo tas mhm. exactement wax sama zéro nag yaa ngi doog wax wàcc nag. il faut nga dëgg. wàccee naa kii nooy sam bi dafa bëri tam. waa keneen ki ma dugal tam dagg na allo brother. broda Bakar waa ok and soo ñëwaatee Brother Bakar I love you because you are very honest and direct. Brother Bakar góor ñu mel ni yow xam na xam na góor ñu dee dugg si suma live bi léegoo léeg bëriwul léegoo léeg xam na góor ñu dugg ñu mel ni yow ñoo xam ne. dañ dee xam ne man ak yeneen jigéen ñiy wax pour coono jigéen ñi wàññeeku ak pour suñ sëy yi mën a xam jàmm it's not because dañ bugg a tas wala dañ bugg ta sëy it's because dañ bugg a sëy ak xol bu set te bugg jigéen ñi yëpp xam jàmm jàmm suñ ko xamee sëriñ yu bëri yi ñuy yuus dana wàññeeku te góor ñiy dee ñu bëri danañ wàññeeku góori Gambie ak Sénégal surtout góori Sénégal la leen di rey lu bëri hmm, sëriñ yu bëri la te sëriñ yu bëri lu ko waral mooy jikko ju bon ji ñuy def ñoom loolu lañ xamul kon man ñoom laay dimbale pour ñu def jàmm pour jigéen ñi wàññi sëriñ yu bëri jigéen ñi day def sëriñ ak jos ñoom ñu am jàmm seen laaj lay gën bu dul budul budul sëriñ budul sëriñ bu mën a def lu bon doo am client waaw il faut nga mën a def lu bono bon bono bon pour nga mën di am client bu dee sëriñ boo xam ne da ngay dugg man boole naa nit sëriñ mu dem fa ba mu demee sëriñ bi fa ma woo ne ma kii bu mu fi ñëwati ndax li ma doon wax dara baaxu ci te kooku meer la yor ay jab yor ay goro yori doom Hello, money. Why well, my man see videos and a mother? This is not a miss Okay. Wow. Lady, so we can a community be um dafa am góor ñu duggoon balaa kii te góor ñooñu liñ doon wax mooy xam naa dañ doon kaf rek kenn si ñoom foog naa moo doon gën a wax loolu naan ah, man ak beneen sista bu duggoon sira dañ bugg a tase nit ñi moo tax ñuy ñu jàngal nit ñi jigéen ñi pour ñu am indépendant indépendant par broda bi ñëw wax wax leen ne man lu may wax dëgg la ak ah, ñun lu ñuy wax dëgg la parce que suñu jigéen ñi nangam nangam broda bi salut naa ko góor ñu mel ni moom xam naa ne xam na mm-hmm. moo tax man ma bugg a seeyaat te ma bugg a seeyaat ak suñ góor dëkk Mm-hmm. man maa war a forcer xat yi yëpp balaa ma doon def vidéo sax man maa am pour force pour gëm ne suñ góor yi dëkk dëgg dëgg xam nañu baax bu leen gis may wax ñi ngeen pare mm-hmm. maa ko ne góor yi ñëpp a bon déedéet lu baax li mu yokku mm-hmm. parce que matut das da réel suñ jigéen ñi sax ñun ñu bëri dañu war a jàng luy mbuggeel man mii nekku ne man lu ma xam tey si mbuggeel wala lu ma paree sama bopp pour suma ma xamaatee jëkkër ma nekkee ko ci sëy bi nekku ne maa tëb rek xam ko dama ko war a jàng du ma jàngale ay xattam ba tey may continuer di ko jàng <laughs> su ma amee jëkkër sax may continuer di riit ay bukk di continuer di jàng nu may nekkee jigéen jigéen ju jabar ju baax nu may nekkee jabar ju nob ju këram nu may nekkee damay continuer di ko parce que c'est liggéey boo xam ne la soo si duggee nga war a continuer di liggéey ba xëy dee mm-hmm. nit ñi xam sëy yu barke te baax noonu la ñuy def du ñuy dugg rek toog bàyyandiku soo góor ñi mel nii xam na ci communauté bi fa bëriwul na waaye xam na dañ dee dugg léegoo léegi si live bi duñ nëbbu sax dañuy ñëw def seen bopp ci caméra bi ne fat ñenn ñi fa ñu am jabar suñuy wax seen jabar a ngi toog nga xam ne kii li muy wax dëgg la mu ne la waaw li nga wax la nangama nangam baaxu te li ma dee wax dañ ci dee xànd kon nag ñun jigéen ñi nga xam ne xamuñ jëkkër nañ leen jàpp si yàlla ba tey ñu ñeme pour seet ma dee ma doon ko seyaat fi mu ne nii pare naa ren gis ma deewut danaa seyaat jàpp si yàlla bul foog ne nga you know yow yow doo sëy because of ñemewoo soo koy def doo mës a sëy dëgg la boo ragalee jàpp si yàlla <coughs> waaw mm. jàpp si yàlla rek ni ñuy def mm-hmm. waaw dafa am benn waaye bu ma mësa expliquer mm-hmm. koo xam ne dafa mësa ñëw ci man mu ne ma jabaram dafa dëgër bopp quoi te xale la quoi bi mu koy doog a teg mm-hmm. expliquer ma nim nim nim nim ni ñuy ni ñuy doxalee ñoom ñaar quoi ma ne ko léegi yow moom dëgër boppam comme naka mu expliquer ma ma ne ko yow li nga wax wax nii mooy yow saa booy wax ak sa jabar rek day fekk nit ñëpp toog waa kër gi toog nga bëgg a wax ak moom loo xam ne da koy dégg. moom mm. loolu yow yaa ngi koy def te boo ko waxee du ko def góor su ne góor dong la mën a doon da ngay booy waxateeg moom dangay de fekkee mu nekk yow ak moom kese. Mm-hmm. yow ak moom kese nga ñaan ko waxtaan ak moom loolu boo ko defee benn yoon ñaari yoon ah, di jënd ay léeg nga dem bett kook dara jënd dara indil ko ah di ko nax boo ko defee bu sensé wul nga mën a xam ni kii nekkul kuy sensé. jabaram da ngay sensé loolu. jabaram la nee na. am na ci am na góor ñoo xam ne xamuñ nañ la ñuy defee ak nit parce que jàngaluñ leen ko sa baay jàngalu la nooy wax ak nit góor bu ñàkk yar quoi. <laughs> jàngalu la nooy defee ak ay nit. waaw xam nga góor tam dafa dañ ko war a jàngal dañ la war a yar wax nooy waxee ak nit surtout jigéen man damay fàttaliku mun bi may bi may gën a nekk xale musuma nekk suñu kër jotee bis bu ma jotee ak jigéen bu ñëwee ci ci man la ñuy dal dañ may xas ba damay jooy. loolu falaa dem ba xam ne man mii kon man jigéen ñi man ñoo ma gën quoi man waratuma jote ak jigéen man warat jigéen wax lu ma métti waratuma toog ci ay biir jigéen loolu dem naa ba sama yaay tàggat ma ci ba nga xam ne même bu jigéen gi bu ma tooñee sax bu ñëwee ci man lay dal ne ma góor nga góor du xuloo jigéen wala góor nga góor du defanteeg jigéen yooyu nag dem ba nekk ci man ba nga xam ne bu ma gisee sax kuy dóor jabaram wala ngay xuloo sa jabar wala góor guy toroxal jigéen walaay la hachim am na ci koo xam ne sama mbokk la dafa tàggook aawoom ba pare bàyyi doom yi jël doom yi def leen def leen def leen def leen armée xam nga góor ñi def ci bari loo xam ne buñ tàggook yow doom ñi la ñuy jël ba max la ba pare naan la ñaw bëgg nag ba gën a torox te loolu. di la seetaan ak say doom waaw noonu lañuy loolu boo gëmee ne liggéeyu ndey añu doom moom li mu liggéeyal ay doomam yàlla mën na koo fay li ko ndeyam ah. liggéeyal ci baayam yàlla mën na koo fay ba du torox. dëgg la exactly te suma doom yi ñu ngi focus jàng rek te xamuñ benn problème dana ko rëccu man xam naa loolu ma noppi di ko seetaan ku ko def di ko rëccu di loolu loolu man lu nekkul si life bi gune yi daf ma gën a sax bi ko yelloowul di saaful gune sax waa dëgg la mm. waaw loolu loolu gune yi faale te gone yi du ko loolu dafa yàgg gune yi gune yi sax dañ dañ dañ duñ duñ duñ ko faale ndax seen xol day taan ndax dofuñu dofam dofuñu xam nañ jëkkër jëkkër jooju bu defee boppam nit jëkkër jooju wërsëgam la mu jël gune yii mm. nii nekk seen bàyyi bu wallahi deug barkee jëkkër jooju la ñuy jëriñ bu seen bàyyi parce que bu bitim réew faale wuñ ne yaa leen jur jëriñoo leen dara boo ñëwaatee buñ la ndajee faale wuñ ko sax te suma doom yi ñoo mën a fayda faale wuñ ko sax waaw waaw cheikh lay ko nangu la affaire yi commencé def commencé di neexal jabaram ah ma ne yenn saa da ngay da ngay da ngay bu nga and ak moom te li gëna bon moy nga tak xalé bu ndaw tek ko ci kër gi do and ak mom restaurant do and ak moom mayga and ak mom doxi ah yow boy génn yow ket boy ñew yow dong lool kenn du ko def xalé xalé boko ko dang koy nax jigen sax mën dem ba fa yi <laughs> bañ ñu ànd ak jabar tey ëllëg ñu ciis la nga ne leen yow la nga ak kan la bañ xam ne nag farewut xam biti xoolut fenn fay xànd ak yow ku ne. noonu ngay xamee góor bu baax waaye góor koo xam ne dina yow para bara xamal ne lay nëbbu ndax mu da koy nëbbu mu loolu loolu nag moo baaxul parce que yooyu it bu dem mën na dem ba feeñ parce que sa jabar day am sa jot. sa jabar bu la bëggee lijjanti ba xam si ba xam say bagage bu xëyee balaa ngoon a jot mu xam ci yow lu mu xamul woon parce que dalay lijjanti. yàllaa lay weer bu la lijjantiwul sax. man du may lijjanti góor waaye yàllaa ko dee weer man góor ñoom ñaar muy bàyyi tey ak beneen sëy bu ma mujjee sëy noonu juróomi at si gannaaw seeni waroom bañ ma jàmboo yàllaa dañuy def dikk ba teges ko dikk lu ko ko lijjanti moom waaw mooy mooy mooy mooy mooy kii ñàkk ñàkk jub gi rek ndax nit ki mm. moom <coughs> booy mànd di làqu boo boo booy naan di làqu boo màndee feeñ Lima ci mëna xam daal moy jamono ji ñu tollu bu dé goor gu am fulla deug deug deug deug deug mat li nga doon teel a takk jabar ak concurrence jabar ak sama jabar daq sa jabar kum duggal ci jabar sa jabar do fa yag mm-hmm. jabar kenn du ko concurrence jabar dañ koy bëgg dañ koy mën mm-hmm. ba paré sa yaay man la la joxon ci kenn sax nga dem wëri ko pour tak lool nangu naa ko waye man doo ma ma tak ko waaw bo demee tam man nga man nga ma boko ko nga ba mm-hmm. waaw man man nga ma joxagn demal ci diw kat diw ak diw ak diw ma dem waye dang ko eh. def force boo ma ko waxee damay bañ ndax bu guddi jotee bunt bu ma ko delloowee ñun ñaara fay nekk. waaw boo demee seet ko buggee nga seet moom boo ko buggul nga ba. bu ma ko buggul damay bàyyi seet leneen. Hmm. ndax buñ la ko takkuloo ba pare mbëggeel bëggante. Hmm. ndax mën nañ laa yónni par ngeen bëggante ndax ki nga Angleterre fii sax seen prince prince Harry. prince Harry bi nga xam ne mooy sëti queen Angleterre bi seen sët bi moom jabaram hmm. Megan fañ ko booleeg moom. te jabaram sax moo ko magee ñetti at xaw ma jabaram ko doon ba tas xam te moo magee prince prince xari ñetti at xaw ma jabaram nit ku ñuul ak tubaab la moom bi mu duggee hmm. ci seen famille bi sax royal family bi bugguñ ko ndax ñoom ñu ne buur lañ bugguñ merci Binta waaye moom ko ko bugg te moom fañ leen boole te fañ nobante ba hmm. bugga dee àddina si yëpp xam seen nobante gi moom fa gedd sax génn ci mbiri royal family bi yëpp ndig jabaram xamal leen ko tukki Canada tuxu Canada ak jabaram ndig nobel te fañ leen boole kon nag du ne sëy yuñ boole yëpp baaxul déedéet man soo gisee may bañ loolu gune yu ndaw yi ñuy areñ moo tas sax gune yu ndaw yi juddoo guddi mm-hmm. waaw xamaguñ sax mbugéen ñu tëb jox leen nit you know and stuff no that's not good waaye normal waaw nag loolu nag amee ñaareel bari na si suñ mbokk yi de waaw mbokk saalum saalum bari na ci ñoom fukki at ak ñett fukki at ak ñeent nga buux ko nga nga buux ko paa boo xam ne am na juróom ñaar fukk nga jox ko gone yu ah, fukki at ak juróom benn <laughs> te loolu moom dafa ñaaw sax te nekk lu ñaaw te nekk loo ah. xam ne lu lu daw yaram sax lu metti sax ndax loolu du sëy dara dara dafa metti waaw paa yu takk gune respect ma leen te duma leen masa respect loolu moom bari na fa nag ay hate it. bari na fa de. paa yi takk gune yëpp surtout gune goo xam ne bëggut leen ñu tay ko. jël gune ga di ko tëddoo gune gay jooy. billaay ndeysaan paa yi dee tàbbi safara te paa yi caga ta bon ta bon leen. Mhm. ab paa bu caga ta bon nag man du ma respect comme naka yaa koy yëg bon I don't know. waaw ndax xale boobu ngay takk noonu xale bi xamul luy mbëggeel xale bi xamul luy sëy yaa danga ko forcé bu takk ko noonu rek ngir bëgg nga xale ak gis nga ko xemem nga ko na diw am na jabaru xale diw am na jabaru xale ba tax nga dugg ci xale bi takk ko bu guddee boo wetoo xale bi xale bi li mu dund moo yàlla rek ko koy xam ndax dund fa mbëggeel dund fa benn loo xam ne luy mbëggeel la am na xale yoo xam ne mm. am na xale yoo xam ne duñ ñeme duñ ñeme sax paa am na xale yoo xam ne duñ ñeme paa maanaam ñemewuñ la xamuñ paa yow nga may may ko uh, gone goo xamante ni nii bu ko laalee sax yaramam di daw mu war a tëdd ak moom. billaax dafa métti te ah, ñaaw sax daw yaram. dafa dafa ñaaw te daw yaram. am na yoo xam ne am nañ xam nañ mbëggeel de parce que fukki at ak ñeent fukki juróom da nga gis mu am ku mu bi. wala góor goo xam ne mu ngi koy. mu ngi bëggante ak moom. waaye mm-hmm. paa bi bu amee tuuti da nga gis ñu ne ko coppet na ko for fos di nga sëyi. dafa ñaaw dafa ñaaw. baaba mooy cagatu bugg gune te fekk mu ngi seqoo yaay ya gune ga teraanga wala baayam mbala ñu bokk wala nangam waaw mu ne ko sa doom sa doom sangam laa bugg mbala gune ga buy judd rek mu ne takkal leen ko sagat su dul paasa yéen nii mën naa de moo xam fekk borom du paasa diw diw laa jàppal diw gune gu juddoo gut na buy rot rek nga ne diw laa ko jàppal gune ga su magee te buggut diw booba nag nga forcé ko ko surtout su fekkee diw booba paa buñ jaale la te dëgg nit koo buggut man de du ma ko daan nangu. man time boo ñun doon takk te duguma leen daan xaaye sama bopp. dama mas naa dégg benn maire bu ma ko wax de du ma ko fàtte mukk boobu maa ngi senegal maire boo xamante ni ni am na ay goro ay doomam ñoo ma mag foofu. mu ne moom sëy naag paa bi ba ba ba catlu dama mus koo bëgg loolu affaire bi nag jaaxal ma nag. dégg ma man musu mus mus maa bëgg musul bëgg jëkkër ji te moom am na sax ay goro ndax papa moo ko ko joxoon addiya. am na papa moo ko jëloon may ko paa bi waaw. loolu nag man dafa nekk sama bopp ba nga xam ne duma ko musa a fàtte. du ko mus a fàtte maire boobu dama ko yërëmoon ba nga xam ne ma xam ne kii fi mu ne nii ku ko mënoon a delloowaat gone liñ ko def nii duñ ko ko defaat. kooku addunaam yëpp na dem na ndax jeex na fi mu ne nii ngay sëy ak koo xamante ni ñeent fukki at wala fanweeri at ak nangam ko koo bëggul nga nekk ak moom di ko toggal di ko yàkkal li tëdd ak moom kooku suñ borom moo lay dimbalee ndax say doom baax waaye bu la dimbaliwul doom yi sax mën na ñëw kasaaral waaw ndax bëggoo ko. bëggoo ko mosoo koo bëgg. dafa métti te bari na ci sous-région bi nag. communauté bi communauté bi fay soxot faale wuñ doomu aadama Ndiaye moo tax ñuy jël ni di ko maye ni kuy maye sa sa ganaar. Uh-huh. di ko joxe addiya loolu la ma loolu la addiya la ko joxoon ci bi ma ne soo gisee ñun jullit yi ñuy takk gune ba tey surtout julliti Afrique yeeg yooyu dëkk yu ñàkk yi ay India ak Afghanistan ak yooyu. si suñ sang bi lañ koy copé suñ sang bi niñ ko niñ ko mayeexoon ay sa moom la nit ñiy copé te nit ñi jullit ji góor surtout jullit yi góor yi fañ war a jóg wax seen moroom yu julli yi góor yi ñu bali ñun jigéen ñi ñu jóg wax jigéen ñi ñu bali ndax suñ sang bi du jig jikko yi mu daan def ak yeneen yeneen yi mu daan def yéen ñun loolu lañ war a def te suñ sang bi ñu ne yàlla moo ko waxoon mu jël ay sa ñoom yàlla waxul leen ñu jël ci gune yu ndaw yi waaw sëy sëy sëy sëy ñun Seydina Mohamed gars yi ñu ngi koy roy mais ñu ko ci yu bari ndax Seydina Mohamed salaam suñ sang bi daana xëy jabar ji naajee soxna yi kenn naajee yeewu mu jël siw demal la marché te loolu benn góoru Afrique defu ko. Mm. kenn defu ko dañ ko dul nangu sax. kenn defu ko waaw bu dee moom la ñuy roy danañ ko yu bari. ànd naag jabaram ci ci ci ci dinañ waaye duñ duñ ko demal marché. xanaa kay ami jóg ko demal marché. <laughs> man su yooyu xam nga ne góor ñi yegguñ fa ak jigéen da nga da nga ah. tënk ba ngi tira te loolu góor bu yegg ak jigéen góor bu yegg ak jigéen ci ci demal la marché nga yeewu rek fekk mu demal la marché nga ñëw donc jigéen jooju dana toog sëy bu fa yegg laa wax de mm-hmm. jigéen jooju dana la sëyal mais yegguñu foofu quoi dëgg ak yuuxu sëy daal li ci gën a bon bi ma ci gën a boñ nag moom mooy ay saaga li ma gën a bon ci ah, sëy mooy saaga saaga de moom dafa ñaaw ci dafa baaxul ci sëy saaga laa gën a bon saaga sa jabar laa gën a bon laa gën a bañ ma di ko dóor di ko kii buy fayu ngay tëgg mbéj mm-hmm. <coughs> ah, moom boo amee fu la nga fay moom a fayu xam nga yooyu du respect du cër def mooy ñi ñi ami di wax ñi lëq ñuy luqati gone yu ndaw yi xam nga gone wu ndaw balaa xam ne daa war a fayu wala daa war a boole ji fukki at ak ñeent fukki at ak juróom toll ci jàng tolli ci nekk ak yaayam war koo jàngal nga ne ko coppet yóbbu kooku du xam naka la war a mën a doxalee àddunaam balaa xam ne muy mhm. waaw ba ba muy am vingt ans wala vingt deux ans wala vingt cinq lay doog a xam ne ah kon man de dañ maa naxoon mhm. Mhm, loolu mooy problème bi gone gu ndaw moom fi muy amee sens moom mu daje góor gu ko comprendre waaye góor goo xamante ni amoo responsable wala koo xam ne dañ la ko tànnal te bëggoo ko kooku dina dund loo xam ne après du ko mun a nettali xam nga gémmiñ du lépp la mun a wax léeg nga dund daral métti boo xamanteni ni doo ko mën a génne ci sa gémmiñ wala boo ko génnee dañ lay métti ah loolu laay wax ni debito débito deux pour ciento ah. crédito vingt cinco el crédito el crédito am na yenn jigéen ñi sëy ba tey te fi ñuy sëy amee ñu ngi fa am ay doom te bugguñu seen i jëkkër xam nga loolu dafa ñaaw te te yër te yërmandew mhm. dafa ñaaw te metti ndax booy sëyeeg nit foog naa ne mbëggee la war a tax 4000 pesos son 300 pesos xol yi ànd yéen ñaar ñëpp ngeen bëggante. waaye ngay sëy ji dañ leen dee dañ leen dee jox kuñ bëggul wala ñoom dañ dee sëy ak nit koo xam ne waruñoo sëy ak moom ba nit ñoo ñu ci bëri ñoo du ñoo respect jigéen ji. atal cinco. Mhm. nit ki su dee bëggul la far nag respect gu ko defoo jàmm. liggéey eh? nga bañeel nga fay. les 300. gën a naqari daal. Mm-hmm. waaye nit ki su dee bëggul la sax te yaa ngi def jàmm di ko wax te yaa ngi ko bëgg comme ni ko Babacar waxee rek di ko yërëm fu mu jaar rek mu bëgg la wala mu toog yu si bëri fay toog jàpp si yàlla sax te xalaat ne kii su ma ko bàyyee duma ma xam ku baaxee nii wala nangam dëgg la waaw te xaqam du la dal sax boobu waaye su fekkee ne bëggul mm. la ba pare nga di ko toroxal xam fa lay dal te moom fay gën a sonn day gën a sonn day gën a sonn mm-hmm. dafa métti de dafa métti de man nag xam naa man waxtaan ak ay mag daf ma neex ko des fois dama sama wujj yaay dama daan toog muy waxtaan ak man yu bari mm-hmm. yàlla ko yàlla yërëm mm-hmm. sama sama wujj yaay dama daan toog muy waxtaan ak man lu bare bare bare bari bari parce que sama papa Casamance la dëkkoon waa Saalum la waaye dafa tuxu woon Casamance mm-hmm. te booba Casamance boo fa nekkee pour nga gis say mbokk day jafe ah, booba du jamono yii waaw dafa nekkoon Casamance Eh, mm. nekk fa sama tante ba mu yàgg sama sama yaay doog a ñëw. mooy léegi may laaj sama yaay yéen waaw temps yu rebelle yu yàgg yi. moo na yooyu léegi ne atuñ fa lan. ñoo ngi fa toog ñoo ngi fa ba léegi de rebelle kay du fa jeex. ñoo ngi fa ba léegi. xaw ma exactly ñoom ñooy ñan ak lu tax ñuy def loolu ba anyway dañu war a baax. indépendance daal la ñuy wër la ñuy wër nee na indépendance yaa. ñooñu kay ay groupe criminel lay rek foog naa. waaw kay groupe criminel yooyu lañ leen mën a tuddee nag. groupe criminel la. jeex na loolooy wax mooy yeneen sëriñ yu bon yi rek. sëriñ yu bon yi boo gisee ñu ne lànk ne ba liggéey bi fa ñuy tëdd ak nit ñi di leen xéeg. mooy sëriñu Sénégal non bi moo ci état bi moo ci war a wax. ba pare xale yi jigéen ñi dañoo a moytu sëriñ ñi leen gën a jox bopp mooy gone gu gone yi jigéen ñi ñoo gën a jox bopp sëriñ si. ma xam ko moo tax ma di ko wax sama vidéo yi pour nit ñi ba ko ma xam ko ñoo gën a jox bopp sëriñ ci moo tax ñoom li leen di dal lépp parce que pour nga gis sëriñ buñ ne dafa ray ku góor ki wala daf ko nangam bariwul jigéen ki rek jigéen rek waa dëkk jigéen ñi rek leen ko waral mooy bugge bugge te ñàkk gëm seen bopp bari waaw bugge te te ngaal xalal moo tax ñuy wutali sëriñ yi ak yàkkamti parce que boo gisee ñaari ñi ñu rey am na ku ma dégg ñu leen moom lañ rey fan yi yëpp yàggul barki dem yàggul ko rey mbuur ku ma cees mbuur xoma. waaw mbuur xoma. ji jigéen la fa de takku ko ci takku ko ci mbuus serigne bi ñu ko téé. Aha. Yaguma kan iya, ko fan yi yagu. ko ci mbuus sànni ko ci mbalit mi borom borom borom fur wéñ ñi ñoo dem ba yem ci mbuus gi gis ko muy gone gu guñu ray ñu ci. Aha. Aha. te mom mi ngi mi ngi yoron place yow yaangi am ñaar fukki ak juroom ñaar suñ borom dogal nga yor place di liggéey ah yaangi am lo xam say morom amuñu ko way ñom sax suñu ñi bëgg di gën am loo xamanteni ni nii yàkkamti seen àdduna ndax kooku boo gisee ni yaayam waxee rek ngay xam ne jigéen kenn waru koo jox gone gu jigéen gu amul gu amul gone gu jigéen bu amul bu amul bu amul borom kër warul dem ci sëriñ te àndul ak waajuram. dëgg la de. ak at yoo mën a am na de. rawatina mm-hmm. nag nga bàyyi ba timis jot. ndax yaayam nee na bi mu fay jógee tàkkusaan jot na mu ne ko maa ngi dem mu ne ko ma mu ne ko bàyyil ma dem rek. Hmm. tàkkusaan yi suuf nga dem ci sëriñ ba ne da ngay sangu ji mu demee sëriñ bi jàll la ko ci ginnaaw. mu nekk fa di sangu ba wi xaw ma 11h ndax dégg naa maire bi ne moom dem na fa ay boor xaw ma sa h bi h di ko laaj sëriñ bi ne ko nekku fa te xam naa ne booba ray na ko bu yàgg na ma yàgg dafa métti quoi dafa ñaaw man mi man mi expérience naa sëriñ abuse na ma moo tax ma dee gën a wax ni ñi dañ moytu expérience naa loolu bu ma bu ma xamee ay ñaar fukki at soo gisee ñu sëriñ yi di ñu abuse ah, parce que ñun ñu ngi judd ci communauté boo xam ne sëriñ yi day mag ñi ñoo leen gëm. Mm-hmm. sa ndey boo ko gisee muy dem sëriñ wala sa mbokk yi wala sa bàjjen yi wala nit ñi mag ñi ci communauté bi di dem sëriñ gëm sëriñ yow gune gi fu mu jaar nga ragal sëriñ yi gëm leen. foog nga gëm leen de dëgg la de. foog nga gëm leen waaw gëm leen boo demee ci ñoom sa xarit yóbbu la man xarit moo ko yóbbuwoon. léegi sëriñ bi bu fekkee ne wax na wala mu dem ay manière am wala mu dem ay yéengoom ngay tiit nga koy ragal lu wax rek nga koy def foog fa lay rey waaw da nga koy gëm de. communauté bi ñun mag ñi ñoo war a taxaw wax gune yi ñu def seen bopp nit waaye ñun ñoo war a def suñ bopp nit ba sëriñ yi te jàpp ci yàlla. mooy wax ji de. waaye gune yi bu ñu gisee ñu fuñ toll ñu ngi takk ak raayoo ko diw ak a sangu soo leen waxee ne ku ca dem duñ la faale fa ñuy yolleeku dem loolu mooy dëgg gi. waaw ndax yow mag mi yaa ngi yaa ngi fay dem. te ñoom ñëpp baaxuñ. su xamee ñu si baax it ñenn ñenn lañ te ñooña mënuñ yëpp duhuñ yàlla te duñ ko masa doon déedéet déedéet ah la ilaha illallah sëriñ ma wax la benn affaire ñu ci bari nag am na ci ñoo xam ne fii ci ay jigéen kuñ fi tëddeewul kuñ fi rayul tëddee nañ la ñenn ñi nax nañ leen ba tëddee leen ndey saanam ami ci ay dama lay sangal dama lay diw garab dama lay def nangam di ëmbal ñen ñi li sëriñ ñi gën ñu bari bari lañ teddo afrique mm-hmm. afrique tuna sëriñ ay sang da bëri wut xana sëriñ bu gore deug parce que jigéen ji du ci jinné mooy ñëw ci yow jigen lool la nak wa yu rafet wa lool la nak légo léeg jigen ji suñu fay wax bay joy nan la ma jaxlé nangam nangam dimbalé ma nangam té nit ku jaxlé daf dé yomb pour nga yuus ko parce que dafa tiit loko ko mu def loolu la. loo ko wax jàpp nañ ci jàpp nañ ci kenn jàpp nañ ci kenn tuubaa semaine bi passé sax sëriñ boo xam ne jot jabaru jàmbur ji naan ko dañ laa suulal liggéey ci biir kër géej waaw boo ñëwee man ak yow buñ seeyee bu soobee yàlla sa jëkkër ji du la mënal dara bu soobee yàlla dina nii dina nële bàyyi ba guddi jot mu ñëw indi fekk jigéen jaa ngi sëy waaye jigéen ji moom it da koo wax boroom këram borom këram ne ko jox ma ah. téléphone bi. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag ñoom ñaar ñu complot mook jëkkër ji. audio bu ko sëriñ bi yónnee rek mu jël audio bi paasaat jëkkër ji. jëkkër ji ne ko ne ko mm-hmm. nangam. ne ko nangam bu waxaatee rek mu jëlaat paas jëkkër ji ne ko ne ko nangam mu ne ko nag am na liggéey bu ñu la sóolal ci digg kër gi dinaa ñëw sulli ko dinaa la wax fan la nekk ndaw si ne ko waa baax na boo ñëwee sullil ma ko mu bàyyi ba guddi mu ñëw jël benn mbuus suul ko ci buntu kër gi comme mënta dugg ci biir kër gi mu suul ko ci buntu kër gi daal di xëy ñëw ne ko nañ dem ma sulli liggéey bi génn ci buntu kër gi rek daal di wàq ne ko mi ngi nii mu ne ko yow waxoo woon ma ci biir ci buntu kër gi de ci biir kër gi nga ma waxoon hmm. fa lañ ko suul te lii gas bu hmm. bees la daal di woowaa safinatu amaan ñu ñu ñëw bu ñëwee jàpp ko boo xoolee ci internet bi di nga ko gis filmé nañ ko yëpp dugal ko waaw dëgg la fa doon fen fa doon fen wane wuñ wane wuñ wane wuñ kanamam quoi mais filmé nañ ko jàpp ko téye ko yëpp filmé nañ ko jàpp ko mi ngi ci loxo yoon sax gi nga sëriñ yu bëri xam nga xam nga ndaw soosu bu nekkoon tey xam nga taxawal waxal la nu ñuy def jigéen ñi nga xam ne fu ñu jaar dem sëriñ bu ñuy deexit kon buñ demee bu leen sëriñ ba joxee dara pour ñu sangoo ko wala naan ko buñ ko fa sangoo ci kër sëriñ bi parce que sëriñ bi lu mu lay jox surtout bu dee looy naan la mën naa daf fay def drogue mm-hmm. wala looy sangoo sax man naa fa mën naa am mu def ci drogue boo xam ne xeet gi su la xëyee wala dara ay don't know léegi yow da ngay mm. nelaw xam nga ñoom bu ñu nekkee seen néeg yooyu tëju mën su nit ñëwee bugg a dugg ko déedéet demal ba ci kanam wala may bu may dugg xalwa wala nangama nangam xam nga rek seen fen yi soo léegi yow dañ lay def loolu nga nelaw soo nelawee ñu teddo la def li ñi def yëpp so paree ñu ne man garab gi mala jox motax nga rab yi ñoy genn sa yaram yi motax nyom nga do nelaw wala nangam nangam xam nga ku nek ñu ne fa amé rab te ñom ñoo nyom rab yi ñom ñoo ñoom ñoom ñom ñoy ndey mbili rab yi ñom ñoy rab yi ñom ñom ci seen bop ñom ñu bon ñepp buñ déxon rek rab yi jeex <laughs> fañ mën a fenta xalakut a cagata bon mhm. very bad waaye community bi ñoo leen di dooleel ñoo leen di dooleel de mhm. xam nga ndaw soosu yàllaa ko dimbali sutura ko waaye bu nekkoon tey ku gëm mbiru sëriñ bu doon ku mhm. gëm sëriñ la mu noppi waale woon ak li ko sëriñ bi wax dina ko gëm mu yaakaar ne li sëriñ bi wax dëgg la te sëriñ bi fooye ko wala tëddoo ko waaye yàllaa ko sutura xëy na wax ji gëmu ko moo tax mu mën a teg pal pexe def ay plan moo jëkkër te bu gëmoon wax ji sëriñ bi dina ko tëddoo waaye nag yàllaa ko sutura ba gëmul wax sëriñ bi ndax bu doon tey jigéen bu gëm sëriñ la wala ku nangu sëriñ la billaahi wala kii dina ko tëddee waaye yàlla sutura na ko nag ba mu tax gëmu ko also du lool rek waaye dafa def jëkkatam xale doo tam dimbale la ko man loolu laa bëgg sax moo tax man ma dee wax ne góor ñu ne nekk góor ñu baax góor ñi suñu nga yëg xam nga waa ji xam nga waajooju bu nekkoon su doon góor gu tàng lu mu ko wax mu yuuxu ko su ko defee yooyu yëpp du ko ko wax da koy nëbb du ko ko wax dëgg la da koy nëbb waaye waaye xam naa ne dafa nekk koo xam ne dañoo am compétition ñoom ñaar moo tax ñu mën a bokk dara daan ko ndax ay nit buñ booloo rek mën nañoo lu bëgg mën nañ ko am dëgg la dëgg la allo allo waaw ami ça va mhm. ça va bien naka mu eh, def ami xam naa man maa ngi génn abonné naa ci yow après nga abonné rek maa ngi génn après bu ma gisaatee laa dinaa duggaat ami Diop bëgg Penda maa ngi maa ngi daw awal waaw kon <laughs> macha allah jërëjëf waay xaaral ma abonné ci yow yow tamit wax ji am na solo macha allah ñu ngi lay ñaanal merci jërëjëf maa ngi abonné ci yow yow tam jërëjëf waaw ñu doolee góorgóorlu rek nañ doolee góorgóorlu doolee moytu te nekk jigéen taxut a néew doole ndax jigéen la yàlla suturaal jigéen moom moo jur góor sëriñ lu mu baax baax jigéen ko jur président jigéen a jur lu fi am ci jigéen la jaar kon nekk jigéen taxul ñu di la néewal doole nit ki nag am na yoo xam ne buñ la ko tegee day dagan Mm, ah, baax na jërëjëf ah, jërëjëf jërëjëf sa wax rafet na torop yal na yàlla de mm-hmm. góor ñu góori communauté bi yëpp xalaatee ni yow yal na yàlla wér gi yaram yàlla jàppale la yàlla musal la ci seytaane may la kaaraange may la wërsëg sa business bi gën a yokku yàlla may la jabar ju baax ñu baax a baax ñoo xam ne moom oh my god I'm so happy amin <laughs> billahi awa loo xam si façon yu góor ñi nga xam ne you know moom lañ soxla ci community bi comme Massa Massi Babacar yi ah kii ba xoolal baaba ku tudd ku tudd Babacar day baax tamit xam nga ah, si tur wi la kon Babacar yi noonu lañ mel ah yëpp noonu lañ sama Babacar noonu la mel noonu la baaxee macha allah ah, waaw seen turandoo yi lañ bëgg Babacar yi noonu lañ mel sama Babacar noonu la mel wallaay dëgg la non si xam dëgg la nag gis nga Babacar moomu doon dugg tamit ndey saanam doon ñëw ah. gis nga ko moom nu mu baaxee Wow. Babacar moom kan <laughs> waa <laughs> aywa mu doon wax noonu Wow. tam kay mm. dañoo baax macha allah oh that's nice Wow. yaa ngi awal ak si si si topic bi mm-hmm. amin noo def namm naa la jàmm rek mbaa defoo dara ah sëriñ de moom sëriñ de dafa wóoru ndax sëriñu léegi yi moom daa jara moytu bu baax fañ bëri ta ta ñoom ñu ci bëri fañ bëri ta xaay dal leen te xam problème bi doo kan moo man sax bu mhm. loolu la de ku ko méttiwul sëriñ daal moom gëm ko cent pour cent daal baaxul moom ndax dalay dugal ci musiba mhm. loolu mooy problème di ko moytu daal am na ci solo de surtout jéeg buy sëy nag mhm. ndaxte boo ci xasee ba dugg daf lay yàqal lu bari daal dafa lay yàqal lu bëri waaw ba pare doo doo gëm yàlla tamit ndax lu xew rek danga naan xaaral ma dem si sëriñ ba te mm-hmm. sëriñ bi mënul dara yàlla moo fi ne mm-hmm. day day fekk ne dafay ñaan rek mu ànd ak dogalu yàlla su ko defee nag nga ne kii mën na te fekk bu lay lu mu la mën di defal te yàlla dogalu ko du am moo tax sëriñ daal man de sëriñ moom wax dëgg yàlla gëmuma ko de moom wax dëgg mm. ndaxte da lay dugal ci musiba waaw waaw yes <laughs> mi ngi noonu mi ngi noonu yow sa bopp sax su mettee nga ne xaaral ma dem ci sëriñ ba tamit baaxut Mm-hmm. sëriñ yi day tax jigéen ñi ñëw ci ñoom ñëpp jigéen ñi bañ rafet te te ku gore eh waaw kay mi ngi noonu ba pare comme ni comme ni nga ko waxee léegi ji am na ñoo xam ne bu ñu jaaxlee loolu leen def loolu ñu def maa ngi ñëwaat ci kanam loolu mooy problème ama génn tuuti maa ngi ñëwaat waaw ok mm-hmm. dafa dafa kii daal man de sëriñ moom dama ko ragal man dama ko ragal si boppam man ñemewuma ko man dama ko ragal ba pare tamit man man dama koo gëmut ba mënumaa jox loo xam ne dina tax ma ne dara maanaam ma dem fa mu jox ma dara ma def ko gis dara ne ah lii de xam naa sëriñ bi li ma defaroon moom la man mm-hmm. gëmuma xam nga loo gëmut tamit du la du la kii du woo man daal gëmuma ko man xawma lan la daal waaye gëmuma ko sëriñ man dama koo nayee jox sama xaalis sax mu koy lekk dama koo nay nay laa ko waa mi ngi noonu ba pare léegi nag jamono léegi bi moom góor ñeeg jigéen ñi ñëpp sëriñ loo wax ñu ne sëriñ loo ñu ne sëriñ. man sëriñ loolu moo tax ku jóg man foogu ma ne du ne sëriñ yëpp laa foog ne mënuñ dara wala nit ñi ñaan non non am nañu man am nañu man waaye ñi mënul ñoo tax doo gëm ñi man looloo tax doo ko gëm ñu sax mënuñ yëpp waaw kay sëriñ bu leen mën naa faj lépp rek xamal leen kooku du sëriñ mën naa lépp loolu moom ku la ko wax rek xamal ne du sëriñ su fekkee ne dooy dem sëriñ rek yow sax du baax wala ngay wala ngay feebar comme ni ko nag fi mu toll nii nag nit ñi gëmatoon sax yàlla lu xew rek ñu ne sëriñ lu xew ñu ne xaaral ma dem si sëriñ ba xaaral ma dem si sëriñ ba loolu daal moom moom moom mooy surtout jigéen ji nag moom nañ ko moytu bu baax a baax ndax ñoom ñoom leen soxla jigéen ñi lañ soxla xam nga góor ñi moom dañ leen di nax jël seen xaalis waaye jigéen dañuy jël sa xaalis tëddee la boole si xam nga loolu tamit yàq sa àddina eh, mii ngi noonu mi ngi noonu léegi nag ñu jigéen ñi moom ñoo ko war a moytu bu baax sëriñ daan nañ koy moytu ndax day yàq sa àddina sëy yu ko yàq mm. moo leen ko te sa si ko su ma jëkkër dee nangam su benn jànq bu ko liggéey fa am benn jeeg bu koy liggéey dafa am kum topp dafa am bu ko defee yow sa àddina duutu réglé te foo toll yaa ngi xalaat loolu foo mm. toll yaa ngi koy xalaat wala nga dem fa mu naan la ki nga dëkk la ku xees ke ku ñuul ki mm. ki nga jàkkaar lool mm. affaire yooyu bu ko defee soo xëyee jàkkaarloog Ami Diop sax daan ne Ami Diop la ama sëriñ ba waxoon na ma ko mi ngi noonu loolu moo kër yu tas sëriñ yee ko tas boo ko gëmee daal ba genn gëm gi moom da yàq sa àddina ba ñuy bugg nga leen waa dimbale ma su ko defee ñu ne la waa jëlal nangam bi ko su ko defee nag yow lim lay jox xamoo lan la nga jël ko utiliser ko mën na laay indil problème mm-hmm. loolu mooy wax bi en tout cas daal débat bi am na solo. jërëjëf waaye man damay ñëw dem sax du yàgg xam naa ne yàgg naa fi. waaw xam naa waaw depuis sànq maa ngi bëggoon dugg waaye dama xaw a jàpp moo tax yow doo noppi. waaw ok sa wax rafet na trop. waaw ba beneen yoon maa ngi soo débat bi lu ma doon wax xama débat xaw ma vidéo bi moo nekkoon Ami Olof challenge bi mooy li ma doon wax ci ci ci commencement ko post vidéo bi su ma paree incha allah naa ko post si Ami Olof euh, YouTube channel bi so su ngeen ko fa seetee tey ci guddi wala suba di ngeen ko gis di ngeen gis commencement yi vidéo bi Ami Olof challenge bi loo xam ne dafay wecc sax àdduna dafay tax nga gën a gëm sa bopp dafay tax euh, nga gën a saxat na nawekeeku daal su fekkee ngaa bugg a yaram wala ngaa bugg a am wirgu yaram wala ngaa bugg a positif ngaa bugg a gëm sa bopp yu bëree bëree bëri moo si nekk yoo xam ne nii su ngeen ko toppee incha allah dina defar seen aduna explain naa ko yëpp si commencement bi soo yee parce que lu bëri la duma ko mën a waxaat léegi ngeen dem seetaan loo repeat su ngeen buggee gis lii ngeen dem si youtube channel bi later on wala suba di ngeen gis vidéo yi foofu incha allah wax naa ko si tamit so dinaa ko post si uh, fànn uh, si commencement bi si commencement yi vidéo yi fu ma ko waxee si hàngale dinaa ko dagg ma def ko si ami ami Diop YouTube channel bi foofu laa dee post xol hàngale um, vidéo dinaa ko fa incha allah fi nga xam ne fa wax commencé xolof bi foofu laay post incha allah si kanam si um, ami xolof bi so yeah and nit ñi ñëw ne ñu noo ñu continuer def topic boo xam ne moom lañ doon wax ni different things lañ fi wax lu neex lu funny lu xam njëriñ soo yaa vidéo bi naa ko post kon nu ma leen ko waxee si ami ami xolof youtube channel bi pour ñi fii nii raw na leen ñu seetaan ko foofu jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan yi yëpp yàlla nañu yàlla may fanu gudd awet bi yaram yàlla may ñu gëm suñ bopp yàlla may ñu xam ne ñu suñ communauté bii neex na baax na te fañ ko war a sàmm parce que communauté bi bëriwul bi communauté Gambie ak Sénégal nit ñi bëriwuñ nit ñu war a sàmm lañ sàmm communauté bi xool yi nga xam ne moo ñuy dimbale ñu di ko wax yi nga xam ne moo ñuy sondal ñu di ko wax mhm. loolu moo tax may def suma liggéey bi may def nii si communauté bi bugg communauté bi ak bugg koo sàmm moo tax ak bugg communauté bi xam jàmm te dund dëgg ndax dëgg rek mooy mujj communauté bi dafa fëyeek te communauté bi gëmut boppam moo tax ñu ñeme sëriñ te communauté bi dafa féeg te gëmut boppam moo tax ñu ñeme xeesal te communauté bi dafa féeg te gëmut boppam moo tax ñu xam nafiq moo tax ñu xam loof yu bon moo tax ñu xam soxot ak xañaan ak soxot mhm. <laughs> mënuma ree suma soj bi suma corona bi <clears throat> xañaan ak soxot gi ne si communauté bii suma sañoon duma ko ne di wax saa yi nekk naan soxot soxot <laughs> waaye <laughs> lii tëgg gi xayaan ak soxot gi moo waral sëriñtu yu bëri yi mm-hmm. mi moo waral sëriñtu yu bëri yi féeg kenn ku ne ne xam xalal bàyyi foos kenn ku ne mbubbu mu gën a seer maa koy sol daal lu gën a seer kawas sëfa bu gën a gudd xeesal bu gën a seer kële ne oto bu gën a baax kële ne kër gu gën a rëy fake life bi moo tax ñu nga xal xalal community boo xanee ne fa fake fa nga xal xalal ndax halal boo ko you know just ngay fake happiness di fake life know, like, hey, eh, you know halal is nothing doesn't mean da hamga haduna at all njëkk a fekk ci sax fa taxuta mom de halal soko ko ngay seet nang koy xamee ci yoon wu leer ta barke te jig la nga def ndank top yoon wu waye halal tepp ci pelu ci halal ji <laughs> tëb ci pelu ci halal ji mo waral serigne tu def lu bon yi def pour ñu gaaw xam halal mhm man mi xaw ma woon li ma xam tey de waaye sant yàlla ba ma ko xamee mm. nen non tey maa ci yeneen bam sama ko xamutoon mm-hmm. te community bi fa si butu dal ko community bu baax la nag te xam wursa te xam jàmm te gëm boppam te rafet te baax waaye si gi moo ko yàq ngi karkare mm-hmm. si butu gi fi mu jógee mooy dóor yu bëri yi ñuy buñ doxee gune hallo xaste gi ak gëmadi suñ bopp gi gone gune yi mag gis mag ñi gëmuñ seen bopp mag ñi ñeme sëriñ di xeesal di ñeme sëriñ di soxot di gaaru halante, di jëw di xas di tuuti ku nekk di tuti sa morom gune yi di ko xool di ko gis biñ dee gune soo demee xew ku neex ngi xool ku gën a am sanse bu seer kay gën a may xaalis ka gën a xeesal te xonq te musóor ga mel ni xaddab xaddab xaddab néeg kooka muy nu coowu sa kanam nag nit ña ñi noonu nit ña def ko muy nit ña ca def ñu def leen golo gune yi di ko gis ne ah ndeke communauté bi nii la ku xamul xalal te xeesal te xam ay or ak yooyu kenn du la gis kenn du la dem ngay nit kon de man suma magee danaa war a mel nii gune yi di ko gis gune yi gis ko am jëkkër te jëkkër ja xamul dara nit ña def ko muy xaj def ko moom jëkkëram ñuy xaj di leen tuutil di leen xas di leen gaaru xale xamu dara xamoo dara nangam nangam xala ko ka nga xam ne jëkkëram fa xam ay taax dugal ko ca ñu def ko muy nit def ko muy yàlla gune di ko gis doom aadama njaay bi nga xam ne xamul dara ñu def ko muy xaj just because xamul dara nothing else lim ñàkk rek gune di ko gis xam ne man de ndeke su ma magee mel nii nit ñi nii lañ may def kon nag chance doo leen wax sax nu ñuy xamee xalal doo leen jàngal nu ñuy xamee xalal doo leen dugal sax school doo leen may jàmmi àdduna bañ mën a xam suñ xamee suñ magee nu ñuy def ba xam xalal parce que nga leen di dóor di leen xas di leen tuutil di leen xas di leen dóor ba suñ magee xamee métit te duñ gëm seen bopp ndax ndax dóor loolu lay def ak xaste yu bëree dóor yëpp noonu lay def gune fay tax su magee du mën a gëm boppam fay xamee métit xanaa mu forcé jàpp si yàlla su dul loolu du gëm boppam te ku gëmul boppam du def jàmm du ko wax suy hur xalale du ko wut ci yoonu baax suy sax dana ko xam lu géem ba tilim tilim dana ci dugg fuñ koy tëj wala mu dee parce que faalewul boppam respectul boppam parce que gëmul boppam faalewul mu dee wala mu dem kaso wala mu feebar wala mu dee faalewu ko parce que xamut moom mooy kan te yow yaa ko def mu mel ni xaj bam du xeegu ne moo tax xamut moom moykan mhm. ba pare nag ñu ne la gaawal xam xalal mag nga fi ne nga ne waa ñu ne la gaawal xam xalal xolo kële xam na xalal xolo kële xam na xalal yow nga xalal ko gaawal xam xalal léegi nga jàkkaarloo àddina lo community bu bon bu bu sibbutu bile te gemuñ dara halal ji so gise ñu dila wax ne nga xam ko you know nangam nangam it's not like fañ bugg ka barké tëdd ci lal bu lek ci ceeb dédé fañ bugg ñom pour ñu feel good bala ñom pour ñu jëriñoo la bala <clears throat> ñom su dé yaay ji la wala baay ji nangam pour nit ñi wax ne uu ñi seen doom barké na ñi seen doom ku baax la ku barke la ñoom fay sëyoon moo tax ñoom nit ñu baax lañ moo tax ñu am doom ju barke mhm. loolu moo tax ñu bu nga am waaye du ne pour yow nga tëdd ci lal bu nooy lekk ceeb moo tax déedéet faalewuñ la yow ak sa ceeb ba nga war a lekk mhm. pour yow nga am halal pour ñoom ñu jëriñu si ak pour ñoom ñu taxaw yëkkati mbagg ne waaw gisoo suñ doom yi barke nañ nit ñu baax lañ moo tax you know yeah diw saa noonu sama doom la yes man la maa yaay Sadio Mané yeah maa ko fi sëy looloo tax ñuy bugg nga def ko mhm pour ñoom du pour yow nga xam ceeb ñu no tëdd ci kët gu ne lal bu nooy déedéet communauté bi noonu la mel yow yëgoo ko communauté bii boo xamul jikkoom fa lay tëjlu raylu la tax nga gëmadi sa bopp tax nga dem ci ay sëriñ ak dugg ci yu bon yu bari sëriñ ci gën a tuuti bi fan naa fekk te gëmut boppam soxot am <laughs> sorry but lii mooy dëgg <laughs> community bi <laughs> ah community bi ñi nga xam soxotuñ ci bëriwul woy danaa semaine sama sax xaaral dem xaaral ma end bi te dem sama nago ndox may naan moo tax gi nga community man suma sañoon duma ñëw fi day naan community fañ soxot no <laughs> i don't mean like the whole community dafa soxot no <laughs> but like community bi <laughs> soo gisee mu bëri nit ñu soxot te simbutu te gëmani seen bopp te jos soxot te simbutu te xeeb seen bopp xeeb community bi taxaw di wax seen doom yi sax naan bul sëy ak nit ñi nit ñi jógee ci community bul leen def xarit bul sëy ak ñoom bu leen def xarit ñoom ci seen bopp ñuy ragal ragal a sëy ak nit ñi ne ci community bi and you know just going crazy man suma doom yi bu leen bu leen foog ne man maa xeeb community bi moo tax wax nii de suma doom yi du ma leen ne bu leen takk nit ci community duma leen ko yenn vidéo yi may wax ni sax suma doom yi fañ fi du ne suñ fi toogoon du may rus sax di wax ni may wexe naa community fañ soxor fañ lii xamoo loolu te maa xam ne suma doom yi dañuy seetaan sama vidéo yi nii kon sax may rus ñu dégg ñuy di wax lii xamoo loolu suma doom dama leen di woon community bi de good side of it loolu mooy dëgg gi waaye xam nañ community bi xam na yeneen jikko yu because xam nañ seen yaay lu mu dund wala danañuy dégg yenn yi may wax te dégg nañ xolof waaye du ne man suma community may def suma doom yi ñu xeeb ko te bañ ko te daw ko non I love it te suma doom yi noonu laa leen yaree mosuma leen di wax ne bul sëy ak nit ku ñuul ak wala nangam wala nangam duñ koy dégg si man sax waaye xam na nit ku nit ñu koy def toog jàkkaarloo seen doom bi naan bul sëy ak nit ku ñuul bul sëy gàmbeen gambien wala sénégalais wala nàngam communauté bi ñun gëmuñ suñ bopp moo waral xeesal bu bëri bi ak jaale gu bëri gi ñu nit ñuy suuli ñi ñu ne ci communauté bi nit ñi soo gisee ñu soxota xañaanta bonta mën a tuuti nit kuñ gis xeeb yu noo jos lu baax lu ne ñu xeeb ku xam jëkkër ñaari fan nga xeeb ko ku am jabar ñaari fan nga xeeb ko ku xarit ñaari fan nga xeeb ko lu ne nga xeeb lu ne nga tuuti xeeb is because nit ñi dañ xam métit satisfaction bi ñuy wut soo xamee métit satisfaction bi ngay wut fekk sa métit jàngoo noo koy fajee doo ma sa satisfy loo xam rek du la satisfy parce que nga xam ne métit te métit wii mooy childhood trauma métit wii lu si bëri métit borom ba mu doxee gune dundu métit moo koy waral te borom su fajut métit woowu wala mu wax ak expert yi nga xam ne loolu mooy seen liggéey borom du mës sa happy si àdduna du mës a satisfy ci àdduna lu mu xam du ko doy fay bugg leneen parce que du wut ne lu mu xam mooy problème bi métit yu mu xamee mooy problème bi waaye fay foog ne lu mu xam mooy problème fay foog fa war a xam dara pour moom mu happy wala mu satisfy te fekk du loolu métit yu nga xam ne moo tax mënta happy mënta satisfy te métit wii bu nga doxee gune lañ la koy def di la duur di la ngàdd di la xët lu ñàkk fay dañu timpa la xët la bimax la xas la kiik la xam ne ñoo xam ne fa ñuy dóor gune ba di ko kiik gune goo xamul juróomi at fukki at dóor ko ba di ko kiik ni kuy xeex ponkal seen ponkali ennemi community bi problème dafa sérieux de ku dee gis su magee si mitit góob ak toroxtaande góob du mën a gëm àdduna du mën a gëm boppam du mën a gëm nit ñi fay xam ne nit ñi nit ñi soxot lañ kaarama oytu fa la gëma di sa bopp gi di tàmbalee moo tax sëriñ yi xam ci yow yoon lii yëpp soo gisee ma di ko breakdown one by one pour ngeen understand suñ problème moo tax duut pour ngeen ree rek jooj de gannaaw bu ngeen ma reexee jooj ma ba pare ngeen déglu li ma leen di wax te ngeen oytu pour yeneen gune yi ngeen di yar nii buñ dund lii moo tax may wax du pour ñun ñu ko dundoo pare ñun xas nañ ba yàqu ba mel ni soow mu xaj day ñun ñoo war a xam ne ni ñuy fajee suñ bopp gune yi laay oytu laa bëgg ñu oytu pour proven leen moytu leen pour programme leen pour suñ magee buñ repeat coono bii soo gisee soo magee nga gëm sëriñ xoolu xadi nit ñi lu la sëriñ wax nga gëm ko is bi ko nit ñi métit buñ la jox bi nga doxee gune moo tax yow ngaa teel a gis ci àdduna ngaa teel a gis ne ndeke nit ñi nit ñi soxot lañ nga koo teel a gis teel koo dund moo tax nga gëm ko mu kare sa xol bi moo tax sëriñ bu la nee boo takkut jaaro bii ngay dee walla nga def nga ne ko wax nga dëgg kay nit ñi xam naa seen jikko sëriñ ba ne la soo sangoo hut lii takkoo lii ngay dee wala nga dox sa liggéey kaay wala sa mbokk yi nii wala sa xarit yi dañ la dox la wala nit ñi lay seetaan wala nangam nga ne ko wax nga dëgg kay nit ñi xam naa seen jikko xam naa niñ liñ ma def xam naa métit yiñ ma def te xam naa ne nit ku mën a def loolu nit mën naa def lu raw loolu kon xaarama gaaw kaar sama boobu wax nga dëgg gëm sëriñ gi fii la commencé ci ñun mooy métit yi ñuy def buñ duxee gune daaraak école ak kër gaag gune yi ñuy métital buñ doxee gune ci place yi yëpp muy daara muy école muy kër fala gune yi jëlee ragalam nit mi ak ñàkk xóolu xaddi nit mi waaye xam nga luy problème bi ñun feebar bi fa ñu man ba booy wax suba ba ngoon ba sa bu bi métti duñ la faale mu ngi lëndëm palanteer bi laay yuus mu ngi lëndëm bugguma taxal may dem fa daw yaram ñu bari fi ne ñu ngi taxaw jàkkaarloog man nii xam nañ ni Ami Diop lu muy wax nii day dëgg la méeg na sens waaye duñ ko gëm duñ ko faale te duñ ko def ba tey fa ñuy déglu vidéo ba pare jël gune yi mbéj leen ngàdd leen xët leen bi max leen kik leen fa ñuy déglu li may wax ree ma jooj ma ba pare oytu déedéet fañ koy repeat mais ni newut Ami Diop lañ doon déglu te ñoo gën a tay ne Ami Diop li wax ni day dëgg la ndax méeg na sens xam nga nit boo wétee lu méeg sens boo ko déggee nga koy xam xawal ma taxal làmp yi fa lëndëm boog sama téléphone bay caaj daane naa caméra ba yëpp ah lii moo taxoon bugguma woon a jug miin naa daane téléphone anyway daane téléphone suma suma suma lifin la suma mbir la hmm. ku may seetaan ku ne xam na loolu sorry so it's like community bi man lu ma ko bugg bugg te xéene ko jàmm te su ma sañoon kenn du ci dundu métit wala continuer di ko dundu walla gune yi su ma sañoon kenn du leen kiréetal métit ak coono ak fitna te su ma sañoon ñu gëm seen bopp développe seen bopp ñu nekk mag ñu barke ñi ñu war a dox ak gune yu barke yu war a dox xam sëy yu xam jàmm xam kër yu xam jàmm xam life yu xam jàmm sëy onot gëm seen bopp lu ma ko xéene xéene communauté bi communauté bi su parewut pour dund ko du ko xam communauté bi su ko xéenewut boppam du ko xam xanaa ñenn ñenn ñi ko pare pour dund rek ñoo koy am communauté bi liggéeyam pour mu barke pour mu xam jàmm pour coono yi wàññeeku nit ñi xam jàmm du du benn fan du sëriñ bu lay jox saafara nga tëb sangoo ko rek ne fetek non liggéey boo xam ne la sa xel mi ngay xalaat wecc ni ngay xalaatee wecc ni ngay jëfee te gune yi is very important ñu focus si ñoom tabax leen bil leen ba ñoom suñ magee duñ repeat coono bii duñ xam pour nekk di wecci xel yi ak wecci xalaat yi ak def yu bari yu noo xam nga lu ma wax comme ñun ni liñ war a def te tey pour ñu xam xadduna gune yi at least ñoom seen xaduna dina dina dina already du xam métit woo nga xam ne ñun xam nañ ko ba tax ñu war a def liggéey bii yëpp are you guys getting me wala ngeen di seetaan nii rek yéen a ngi dégg understand wala ngeen di seetaan nii rek bi ko man lu ma bugg-bugg suma communauté bi su ma sonnee may commencé di wax àngale soo gisee may daw àngale yi maa xam ne suma commune dootuma waxateeg yéen te man suma xam bi ma xam suma communauté bi laa ko xéenee ci suma xol bi la ne ma ko suma communauté bi moo tax ma di ko wax si xolof waaye su ma ko doon wax si àngale xat yi yëpp nu xam naa nit ñu bari di ma seetaan ñoo xam ne danañ ko jëriñoo te sooy wax danañ comment ne maa ngi dégg li ngay wax wala li ngay wax dëgg la wala nàngamte danañ like danañ séddoo duñ taxaw di la déglu di jooj rek di ree te booy wax lu xam lu xam lu ñàkk fayda ngeen ñëw di ko séddoo tey su ma commencé woon di saaga ndey rek yéen ñëpp ngeen séddoo ko siya ko da di ma ree di ma jooj naan Ami Jóob daf laa faala ko waaye bi ko maa ngi wax lu am fayda yéen ñëpp yéen a ngi ne teg kenn du like kenn du seddoo kenn du siya what is this ñun lu ñu dal lum do ñu nit ku ñuul lii fa daw yaram ñun suñ communauté bi dañuy yàq gone yi ba gune yi suñ magee suñ wetut danañ nekk di tux di naan di cagatu def lu bon ba nga di leen ree di leen xas waaye su nit ñëwee ne nangam bi suñ ko oytoo gune yi suñ magee duñ def lii nga toog di xas borom it di ko ree di ko xas ba tey ne lu tax mu wax loolu ngeen fa ne man li may wax nii man kenn maa ko xam si communauté bi déedéet xam na ñeneen ñi ko xam waaye xam nga lu tax génnuñ wax parce que ngeen leen di def nu ngeen may def moo tax ñu ida bañ a génn wax mbala ñu génn di wax leneen lu ñàkk fayda lu ñu war ta wax et puis dafa laalanteeg wax yu bon bi ko suñu waxee lu am fayda lii ngeen leen di woyee dof te ngeen leen di seetaan du ngeen ko seddoo du ngeen ko like du ngeen ko share du ngeen leen faale tuuti leen xeeb leen man su ma dëgërutoon bopp du ma fi toog tey juróomi at yàlla di leen wax benn kàddu bi konoon banaa leen bu yàgg gedd leen war ngeen a xam loolu war ngeen a ne Ami Jóob dëgër na bopp te li muy wax nii jaral na ko ay xat ami juba ngi ne ngatt rek di wax li benn kàddu gi war ngeen a xam loolu ma toon bopp te xéene suma communauté bi jàmm ji ma leen xéene te gis suma communauté bi seen problème te bañ yeneen gune yi dund ko bañ communauté bi kenn conti kenn continuer di ko dund konoon gedd naa leen bu yàgg bala maa ngi wax àngale ne li may wax ni sama ko no wax si hàngale xat yi followers yu bëri ñoo xane dañ ma respect te dañ pare pour faju ak fajj sen community te saw mu ñewé on da nga gis gaay di séddoo vidéo yi e diko like di sia siya bu geer gi mo bugg sama community bi motax ma xéene ko sama community ma ne ci xat yeb lolo tax waaye dara jottuma dofuma dara jottuma de ma sama community bi li te li moy suñu problème leer na ma mën naa koo waat ci kaamil ni ñun lii rek mooy suñ problème suñ ko baxoon rek gay mi jàpp ñu suñ wàññiwoon yenn soxot yi ñuy def gune gi may gune yi jàmm tuuti ba gune suñ magee mën a xam jàmm mën a bugg àdduna mën a bugg seen bopp duñ màgg ak métit ba pare ñun ci suñ bopp ñu seet suñ jikko yi seet jikko yi nga xam ne gëma di suñ bopp moo tax ñi di ko def te gëma di sa bopp gi métit bi moo koy waral métit bi nga dund bi nga doyee gone te continuer di ko dund ba tey mooy tax doo gëm sa bopp métit noonu lay def boo ko fajut doo gëm sa bopp te doo gëm àdduna te doo bugg àdduna sa bugg àdduna bi yëpp féeg lay nekk parce que danga dee gis ne àdduna bi dafa bëri métit bari coono you know musuma xam jàmm ma doyee gone tey noo koy buggee come on let's just be moo tax nit ñu bari bugguñ àdduna moo tax ñuy féeg duñ mën a bugg seen bopp duñ mën a bugg si xàdduna duñ mën respect haduna. moo tax duñ mën a bugg nit ñi te duñ mën respect haduna si te duñ mën a respect nit ñi xàdduna soo ko bugg ko respect haduna soo ko respectu doo respect nit ñi ci ne te doo ko bugg te soo xeexoo sax doo sant yàlla xool xàdduna si xool asamaan si sant yàlla ngay xeew rek jos lan commencé di fëññi fëññi doo sant yàlla yu noo te fàttaliku ne ah xeexu naa jant bi génn na nangam nangam sa alhamdulilah sa yoon néew si mhm. te bi ko respecté àdduna si lu bon lu ne sa yoon nga koy def sa yoon néew si buñ lay rey buñ lay tëj wala nga rey nit wala nga tëj ko wala nangam sa yoon néew si you just don't care te nit ñi ne ci àdduna surtout gune yi doo leen respect ba di leen yërëm bay xalaat seen ëllëg lu ciy sa yoon te doo xalaat ne gune yi la ñooy xamee àdduna si di ko doxal tabax ay néeg wala nekk ay président wala nangam wala ay jek jëkkër ak jabar sa yoon newu si because you just don't care about àdduna you like who cares hello I'm feeling much better masha alhamdulillah loolu yëpp li ko waral mooy toroxtaane gi african di toroxal gune loolu xeet yi yëpp xam nañ ko Chinese yi yëpp xam nañ ko ne ñun luy suñ problème mooy li ñuy toroxal gune te gune gi su magee du mën a gëm boppam nim ko war a gëmee du mën a gëm nit ñi fay xóolu xadi nit ñi te nit boo ko xóolu xadee sa xadduna yàqu na ba pare doomu aadama njaay yi nga xam ne foo wicc ñu ngi fa xóolu xóoleen allo foo wicc génn ñi te xóolu xóo nit ñi nit ñi boo leen xoolul doo leen mën a bugg jënu windi sa buggeel si ñoom du dëggu parce que yaa ngi leen ragal foog ne fañ lay rey wala fañ lay lekk wala fañ lay dofloo ngay tiit te soo tiitee xooluxoo nit ñi xooluxoo àdduna bi jikko yu bon yu bëree bëree bëree bëri la lay def loo allo hi fine thank you Nine. Oh my God. wanyi ko kon looy wàññi waaye nag yaa ngi amee xaalis nga fay ko am la delloo. waaw waaw ah tàngoor ne yóbbu nga ko sa teg bi de xam nga xam nga sa affaire yóbbu waaye fay ko de naa la naa la yónnee lu si des. xaalis bi du ko mu waaw wax leen ne sa seet naa ko fay ok de after nga text ma ñaata la dégg nga naa ko dugal incha allah ok thank you Ndoura thank you. Mm. sorry suma bagage yi lañ may pose from Gambia company bi léegi niñ seere company bi ma dee use nii so noonu la maa ngi dem community bi man suma ko toppee danaa wax ba dee loolu mooy dëgg parce que community bi problème man ma koo xam ci suma deret ji la ne ndax xat yi yëpp suma koy wax jo su koy wax dëgg jooy moo may jàpp ndax xat yi yëpp maa ngi jàng communauté bi luy problème am di ko seetlu di ko jàng di ko baqeel ah di taxalaa ma làmp bële di ko xam boole kook man sama bopp li ma dund ci communauté bi ma di ko xam di ko seetlu di seet yeneen yi boole kook nit ñi may kool di wax seen problème xat yi yëpp may def vidéo te problème yi communauté bii because man maa ngi xame jàpp sama bopp xat yi yëpp te wéet naa xat yi yëpp waaye si wéetaay yi maa ngi ko def ci jàng jàng xam wut xam-xam yu ak xam problème bi lu koy développe community bi lu koy développe may bind di xam di di déglu di read book fa tax bu problème yi community bi léegi yëpp suma digg loxo bi fii la ne man Amie Jobe lu ma la wax rek li ci des lu ma la waxut moo ko xëpp allo jërëjëf community bi problème nu ma ko xamee fa jéggi dayoo parce que réalité ma ko du mën a wax yépp rek su ma ñëwee ci benn vidéo yu noonu waaye communauté bi problème xaw ma yëpp de ndax kenn xamul yëpp waaye problème communauté bi nu ma ko xamee yëpp su ma ko mënoon a lifin put yëpp si benn vidéo and stuff you know just <laughs> ni konoon yow su fekkee laay gulóos ma mbir sax boo ko dégloo te nga nekk nit ku dëggu nga wax ne am yow lu mu wax dëgg hmm. because dofoo nga xam ne am yow de lu mu wax nii dëgg la suñ ko defee am jàmm hmm. so te ma community, héene communauté bi te xam ne loolu rek mooy suñ problème sëriñ bi suñ problème bañante gi ñuy def ni ak soxorante geeg against each other ak kenn gang kenn groupe bi hand di fight groupe bale loolu du suñ problème kaya kaya yu ñàkk fayda yëpp du suñ problème suñ problème mooy li ma lay wax nii mhm. Mhm. waaye yàlla baax na gannaaw léegi xam nañ problème bi suma maas yi xam nañ ko nañ ko xamee keneen xamee ko nu ko xamee ñun ñëpp nañ continuer di xam problème bi rek di continuer di gëm suñ bopp continé di moytu def yu bon continuer di moytu yu bëri te jàpp si yàlla te buñ rëy rëy mooy sa ennemi bul rëy hmm. yàlla baax na nañ jàpp foofu ma maa ngi dem ngeen xendu jàmm jëri ngeen jëf ah, dinaa leen gis beneen yow incha allah koo xam ne bugg ak man suma email baa ngi si kaw ami xolof at gmail dot com koo xam ne ngaa dund métit ba tax ngay dund yeneen façon ngi dund yooyu def te buggoo koo dund bind ma danaa la dimbale mhm. koo xam ne nekk si situation boo tax ngay def loo war ta di xam ne naqat ba doo mën a nelaw war a jos going mën naa la dimbale mhm. koo ne daal you know soxla nga ma email ma mhm. waaye ku may email waxi kaya kaya wala waxi ñàkk fayda duma la xëyu mbala su ma la ko xam ne ay waxi kaya kaya nga may email yi may ba mhm. waaye ku email ci fayda danaa la xiyu mhm. te su ma la waree jox suma whatsapp number dinaa la ko jox te su ma waree wax ak yow su dee lu ma la mën a dimbale la dinaa la wax ne mën naa laa dimbale su dee mënuma laa dimbale naa la laa dimbale ma wax la ne yàlla na la yàlla dimbale mhm. waaye lu si bëri dama la dee wax ne mënuma laa dimbale waaye defal nii defal nii you know maanaam dama dee fuu ko si yow nooy def ba xam jàmm manam ami holof challenge bi wala yenen yo xamne ne na la dimbalé dina la wax nga def loolu nga xalaat positif nga calm down nanga nanga you know yalla nañ yalla may jamm wa yalla nañ yalla may ñu gëm suñu bop ta xam luy suñu problème ta xam suñu xalaat yu wara wéci ak yenen xalaat yi nga xamne ni mom lañ wara yok ak yi wara dindi xam yenn xalaat yoo xam ne nga koy wecc xam yenn xalaat yu xees yoo xam ne nga koy yokk xam yenn xalaat yu màggal yoo xam ne nga ko war a dindi nit noonu la nekkul jos nangam bu ma xam nii te nangam bu su baaxut sax nga naan I don't care soo koy def doo développe te doo xam jàmm hmm. surtout su dee nangam boobu lu lay indil ay xàqala lu bon la te you know te it's not good da ko war a ba def sa bopp nit hmm yal nañu yàlla may ñu xam lool incha allah yàlla baax na yëpp dana baax nañ leen gëm suñu bopp rek te continuer si jàmm ji ak dëgg gi dëgg rek mooy mujj bu mu la tax def loo warta def xalal mu la tax def loo warta def yii yëpp is not what matter su dee xalal nga bëgg hutal yoon wu set wu lew nga jàpp sa te gëm ko yàlla dana ñëw xàdduna xamul kot di bëtt haduna si ni janax benn bés da nga bëtt fiit gën kan la kepp ak fiit moo lay jàpp àdduna fa am ay fiit yu bon a bon te ñàng kon nag bul bëtt àdduna si di def loo war ta def non nekkal ni ko këleen mhm. te gore eh, te gëm sa bopp te eh jombale eh sa bopp yu bëree bëri bëri bëri bëri àdduna ngay jombale sa bopp yu bëree bëri bëri bëri bëri numéro waaye ni ko xam ne jombalawut boppam dara numéro loo koy defee wax naa leen ko soxla na ma email su ma numéro bi dama dee bañ di ko taay bi ko yeneen góor yi dañ koy jël di ma ciis rek ak di ma sonnal di ma jéem mbaraan xori gaay mooy problème bi waaye ku sox ku ma soxla contact na ma email soo ma email yi nga wax ma li nga soxla waaye li problème bi yéen da ngeen ma dee email si français te duma ko dee mën a riit hmm, problème bu tax dama ko dee xam wala ñenn ñenn góor yi dañ ma di email naan jox ma sa numéro te dama leen dee ragal a jox suma numéro mhm. problème boobu danaa koy xam kon li ngay def mooy <clears throat> nga may bind si Instagram su dee góor nga soo demee Instagram Ami Olof su ma bindee foofu nga yónnee ma bokkal nga wax li nga soxla danaa ko déglu danaa xam. su warna war naa laa jox suma numéro maanaam ngaa bëgg ma liggéey ak yow ma dimbali la nga am stress wala nga soxla xalaat si nangam soxla ku la waxal xalaat danaa la dimbale su dee ngay ciise di wax ay waxi kaya kaya xalloo ami xolof ne dag maa neex nanga nanga yi si bëri dama lay igno parce que mënumaa nekk di wax ak góor ñi ñëpp loolu mooy problème bi waaw man na maa ngi dem xeendu leen jàmm jërë jëf jërë jëf yéen ñëpp Aminata jërëgeen jëf yéen ñëpp maa ngi dem jërëgeen jëf yéen ñiy follow sama page bi yëpp ak a like vidéo yo ko séddoo ko yéen ñëpp yéen ak mën a ànd ci community bii pour ñu dimbale community bi kii de fa ñëw yéen ñi nga xam ne ngeen a bugg a dimbale community bi yéen ak mën a xem moo tax ngeen di like sama vidéo di ko séddoo man ñu bari mënuñ maa like parce que su ma liggéey ci community bi du caaxaan allo ma bel dama laa bëgg dama lay seetaan TikTok macha allah <laughs> allo jërëjëf. sa fan su number one la. ah. waaw. jërëjëf waay yow foo ne noonu. kon ngi Sénégal may Dakar. oh thank you jërëjëf. na def yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm rek xanaa nekk suma vidéo yi du jeex yi ci communauté bi. noonu la chaque jour damay seetaan sa live nag mais du moom <laughs> change dugg. jërëjëf waay waa yéen ñi daf dee xaar pour yeneen nit ñi dugg. Mhm. waaw loolu. Oh. jërëjëf dama war a dem nii sax moo tax waaye xam naa beneen yoon incha allah. fa dagg jërëjëf maa ngi dem. maa ngi dem ba beneen yoon buñ give up ci suñ communauté bi. surtout ñun ñu ne bitim réew buñ give up di daw wuti yeneen xarit yeneen xeet dugalante yeneen nit soo waxee ñu ne man communauté bi waxuma si ñoom dara communauté bi ku ne xam na ne fa sikk waaye fa baax it yow boo xamee ne yow ngaa sikk waaye ngaa baax ndax nit ku mat kon xamal ne yeneen nit ñi it noonu lañ mel dafa nekk ne yow seen sikk si rek ngay gis te dooy gis baaxaay bi loolu mooy dëgg waaye nit ku sikk ku ne xam na jikko ju baax it te na yeneen yu baax kon nag lu communauté bi sikk-sikk nañ xam ne ñun ñoo ko sikkal wala suñu waajur yee ko sikkal wala ñun ñoo ko yàq daal ñun communauté bi kon nañ taxaw ñu defar ko waaye buñ ko gedd daw loolu mooy dëgg gi di ko daw ak wax suñ doom yi ne ñu daw ko loolu du ñu dimbali de nit fi nga jógee nga koy fonk te nga koy toppatoo boo gisee mu tilim nga fax takk sa ndigg defar ko waaye di ko gën a yàq aka di ko daw aka give up di wax ne community bi dafa yàqu ko man tam ma def mu yàqu rek parce que community bi dafa yàqu ba mel ni soo mu xaj day non kon yow yaa community bi yàqu bi yow yaa ko yàq yaa ñi ko yàq xem soo gisee ne community bi fa yàqu nga koy yërëm te seet li koy dimbali nga di ko def bala nga ba te bul wax sa doom yi wala wala yeneen nit ñi you know pour ñu ragal community bi you know and just get away from it and just leave it <laughs> loolu du ñu dimbale ñun suñ doom yi dañ leen war a def ñu gëm community bi ba tey bugg ko xëllëg kisi bi buñ barkee ñu dimbale community bi indi seen barke bi ci community bi dimbale ko mhm. waaye soo leen waxee ñu daw community bi just xeexanda yeneen xeet maanaam ñun ñu ne bitim réew fii that's not good kenn xamul gune yooyu suñ magee lu ñuy def te mën nañoo xam beneen xam-xam sax ak beneen beneen lifin su fekkee gune yooyu bugg nañ communauté for exemple xalaatal man lu ma mel ni su gune gu juddoo fii laa te xam danaa mën a xam plan boo xam ne dina dimbale communauté bi xam nga li may wax ni indi ko ci communauté bi parce que man niti xalaatkat laa ak plan bu indi jàmm xam naa ko waaye maa jàngutoon moo dikkee gune rek for exemple waaye su fekkee woon nga sax gune yi ne communauté bi baaxu daw leen gune yi su amee xam-xam dañ koy yuti beneen xeet dem ca xeet ba you know fàtte communauté bu le so ñun communauté bi lu métti métti nañ def suñ gune yi ñu bugg communauté bi def suñ gune yi ñu gëm communauté bi mhm. waaye du tere ñu wax yi nga xam ne moo moo you moo moo moo ne ci communauté bi problème yi du tere ñu wax ko du tere ñu dimbale communauté bi waaye fa ñuy wax gune yi ñu loof ko ñu gëm ko te wax gune yi ne communauté bi is good is beautiful nangam ma nangam soo gisee muy xam ma ak ma ko waral gune yi dañuy wax ne ah wax ko yënga yoo kay nga ne leen waaw waaye nag nangam ak nangam suma maas yi for exemple man maa ngi so vidéo yi soo dama dee wax ne soo gisee may wax nangam ak nangam bi moo ko waral ñu ne waaw nga dëgg kay is good yu tokka loolu lu baax la ma ne leen waa tamit community bi I love it because community dafa baax te beautiful ñu ne waaw waaw soo ñoom it ñu xam loof boobu waaye soo dawee community bi xuti ay xariti Chinese ak tubaab ak naar ak Nigeria nag yu kenn xamul di dugalante yeneen xeet yi ñu waxee nga ne man leen comme yeneen gambien yi ni ñuy def bugguma benn gambien man awma xarit yi gambien sax gambien yi bari affaire baaxuñ luñ la xamal wax ko and stuff man suma xarit yi ñàkk lañ ak tubaab di cenkel cenkel yi waa acca defal loolu waaye loolu du la dimbali te loolu du dimbale sa community te kon su boobaa yow yaa ngi yàq community bi parce que yow yaa ngi yàq bi ba tey parce que yow yaa ngi wax surtout boo xamee ay doom yaa ngi jàngal sa doom yi ne ñu xeeb bi te daw leen wuti beneen xeeb daw yàlla xam foo jëm de mhm. kon nag balaa caa nga jàpp si yàlla rek te jàkkaarloo community bi te bugg ko te focus si nooy def ba dimbale ko kenn ku ne mën naa dimbale community bi kenn ku ne soo deful vidéo sax ni koy dimbalee mooy yow nga def sa bopp nit di def jàmm di ko wax bul def loo xam ne su ko sa doom defoon wala doomi nit def ko lu la neex video or not soo defee loolu yaa ngi jàppale community bi te yaa ngi jàppale sa doomi bopp yi ak yeneen doomi nit ñi te bul nekk di daw community bi aka wax nit ñi ne daw leen community bi <laughs> man community bi lu ko mën a wax lu ma ko mën a yuuxu yëpp naan ko ngaa bonta soxor <laughs> du ko daw de <laughs> su ma ko yuuxoo ne ko ngaa bonta soxor ba pare may toog su may jooy sax jooy su ma paree fomp suma ronko ñi toog jàkkaarloo community bi <laughs> noonu laa dee de gisoo fu mu nekk nii fu mu jaar ma xamaat jëkkër ci community bi ci community bi laay xamaat jëkkër toogaat si community bi du ma ko daw de te su ma yàlla may jëkkër ju baax danaa toog séel ko ba màgga nit ñi ne wax ne kii du ami ci community bi <laughs> ñëw di ko tàgg di ko feccal bu bu set ni ñi ne wax ne kii du ami jóg su boobaa danaa gën a wax mën a wax jigéen ñi ñëpp ne ñëw leen ñu sëy aha leen suma jëkkër sax man nangam nangam nañ leen jàpp yàlla sëy danaa ko def su boobaa da nga ne kii du am jom community bi xam nañu baax waaye soo jàppul si yàlla doo taseet ñu baax mi soo ko dawee rek foog nga ñëpp a bonde ci féenu fële <laughs> daw yàlla xam koo jëm <laughs> bu ko daw jàppal si yàlla waaye soo tëbee dugg ci ay naar yi kenn xamul ah, xam na yeneen góor yu baax mbot ah, ak yeneen nit ñu baax mbot yeneen nit ñu bëri day just don't care bokkoo ak ñoom xeet that's the reality they don't care si commencement yi fañ lay bugg rek because sexe bi neex na and stuff but after they just don't mooy dëgg because duñ lay gisee comme seen bopp because bokk leen xeet hmm. moo tax yeneen xeet yi Chinese yeeg yooyu duñuy gaaw a dugg si beneen xeet parce que nit su bokkut ak yoo xeet du lay respect trop du ñëpp xam na ñoo mën nañ laa respect suñ bokkut ak yoo xeet ñëpp loolu mooy dëgg gi Mhm. kenn mënu koo weddi àdduna si fa am lu muy doxee noo xam ne mënoo koo weddi mhm. kon nag nañ def suñ bopp nit rek mhm. def suñ bopp nit nit ki sa gémmi xesoo sa sa doomi ndey la koy wax mën nañoo toog waxante dëgg wax suñ problème yi yuuxuwante waaye suñ paree ñu jàppante loolu laa si xam waaye di dawante ka def i cooda ka dawante ñu dimbale surtout ñu ñu ne bitim réew dañu war a jàppante parce que suñ doom yii mën ñëw mag barke kenn xamul lu ñuy dox suñ leen dimbalee loolu mooy réalité gi léegi su dee jàppante wuñ suñ doom yi defuñ leen ñu gëm Afrique suñ magee seen suñ barkee seen barke bi Afrique du ko jëriñoo mm-hmm. loolu dafa ma dee jaaxal su ma gisee Gambien yi di ko wax ak yeneen xeet yi waaye Gambien laa dee gën a di ko wax mm-hmm. naan man suma doom yi dama leen dee wax ne buñ sëy ak Gambien wala buñ dugalantee nit ku ñuul dama ko dee wax dama ko dee gis gambien di ko wax damay tiit xam na benn jigéeni gambien bu ko waxoon keroog ñu tasee si benn xew mu wax ko mu ne ko ah sista li ngay wax noonu de kenn du ko wax xanaa yow doo ti yow sa bopp ndax yow ngaa soxot tabal soo xamee ne yow gambien nga te yow baax nga xamal ne yeneen gambien yi gënoo leen mënoo ko gën gambien yi tout yow kenn nga nga seppeeku do gambien bu baax bi ñi ci des ñëpp bon that's not the reality askan woo dem xam na ñoo xam ne baax nañ loolu mooy dëgg gi te yow sa doom yi soo leen waxee ne daw leen suma askan wi suñ magee ëllëg di ko daw dana la naqat yi danga ko réccu ngay màggat ne tott boo deexu gis sa doom yi ëllëg surtout buñ barkee te jël seen barke bi sànni Afrique di ko def feneen dana la naqat yi looy def danga ko mën a wax ne ko demal dimbali Afrique boo ko ne demal dimbali Afrique mu ne la no Afrique is very bad ak nit ñi fañ soxot te bon bon du loolu nga ma waxoon ne naa stay away from dem léegi nga ne naa dem dimbale leen surtout soo nekkee di wax nit ñi naan gune yi naan nit ñi fañ lay liggéey nit ñi fañ lay dofloo fañ lay sëriñtu mbala yow sa bopp ngay yuus ay gàllaaj ay sëriñ ak di ko yuusal gune yi naan oytul de fañ lay liggéey nit ñi am ma porkaay ma protect la ngay def ragal góog ci gune yi ñu xalaat ni ah nit ñi nit ñu lëndëm te bon lañ te soxot xaaral ma randu leen wallaay ndax ma séef man de suma doom yi sant naa yàlla du may dugal yooyu seen bopp bi ak yëfi sëriñ ak staf gisuñ ma may def loolu gisuñ ma ma di leen sangaka raayaka takkaka def yëf dama leen di bring up normal rek natural te duma leen di wax ne suma communauté bi noonu la ñuy mi def nii la ñuy def naa la ñuy def tiital leen loolu yëpp boo ko def boo koy def gu nekk su magee fay ragal communauté bi loolu mooy dëgg gi te ñun ñu ne bitim réew fi mu ne fañ bëri ñun ñu fi xamee doom fi mu ne fañ bëri suñ dimbalee gune yooyu nduñ di len dur di len toroxal dimbalé len gune mag barke ñom ñëpp duñ xalaku lool moy dëgg gi légui suñ magé barke paré ta fekk rek jublu wuñ afrique biko yow tax nga ñu ragal afrique afrique fay continuer né torta di xalaku ta afrique dafa nit gune bitim réew yi xam xam-xam mëna plan business mëna plan développement mëna xam you know business idea ta xam kom kom ñu ñew jublu afrique lool moy dëgg gi Afrique ñoom kese rek duñ mas a barke ñun xaalis yi ñu leen di yónnee rek du mas a barke fa ñuy ne fàtt ca kermango yi di kool di fen ngay yónnee rek <laughs> ñuy ceeb fay stress xamuñ ni ñuy développé business bi ko fay stress ku stress noonu lay def doo xam doo am bi sos sa brain bi du wow léegi ngay nekk di toog di bari wax ni Ami Jobe Musibutu rek lu ñu la yónnee nga ceebee ko jëndee ko cuub rek sol ko rek ceebee ko xeesalee ko rek toog goor ñe loo leen yónnee ñu ñu ñu ñu takkee ko ñaareel leen ñu jox ko seen jànq yi toog that's the reality they're not gonna have ideas you know how to develop Africa wala how to develop lii wala nangam ñenn ñenn ñoo ko fay xam waaye gune bitim réew yi nga xam ne dañ dee jàng loolu jàng how to develop something jàng façon yooyu ba xam xam-xam bi for example surtout gune gi boo ko mayee jàmm néewoo di ko dóor di ko toroxal ba àddunaam yàqu su magee tam bugg Afrique mën naa indi comme come up with a new idea xaduna léegi yëpp technologie ak idea la boo xam ne ñoom ñëpp suñ boolantoo xam seen idea yi ñëw indi ko Afrique danañ def different what do you loolu de dama ko dee xalaat moo tax dama ko dee wax si vidéo yi léegoo léegi so loolu yëpp nañ ko baqeel rek waaye yàlla baax na incha allah yal nañu yàlla may jàmm yàlla développe ñu développe suñ mind développe suñ doom yi tamit ñu fa nu guddee wér yaram ñun ñëpp ñu fekkee incha allah so finally maa ngi dem léegi naa leen gis beneen yoon and bye ngeen xeendu jàmm jërëjëf